Música jërë ngeen jëf mbokk yi xaritu téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ci DTV la magie de la télé guddi gi dellu siwaat na comme ni ñu ci ànd ak yéen guddi gu jot di leen bégal ci ni ngeen ko bëggee moo xam ci waxtaan yi nga xamante ne dafay am solo lool ba tax na guddi gu jot bu ñu taxawee fii di ko waxtaanee ñu xam ne li ñuy waxtaanee dala leen amal njëriñ lool fi ngeen nekk di ñu bàyyi xel actuellement ci canal 12 bu TNT by Excaf waaye tamit ci canal 11 bu TV d'Orange di gërëm ñi nga xamante ne aussi ñu ngi ci réseaux sociaux yi moo xam ci DTV Sénégal ci Facebook bi ak ci YouTube bi ñu ngi leen di gërëm di kontaan ci yéen bu baax a baax a baax a baax guddi gaa ngi noonu tàmbaliwaat na di ci ànd ak yéen ak sunu ay invité tey nag ñu am ay invité yoo xamante ne. am naa ne bu ñu teewee fi ci plateau bi euh, di ngeen dégg dëgg waaye dañu waxtaanee li nga xamante ne aussi moom mooy xew-xewu jamono ak xew-xew réew mi guddi gàngoog di ci nuyu nag sunu xarit ya nga xamante ne ña nga ca Gambie di ñu bàyyi xel ñoom Modou seen ak Madiaw Diané di ko félicité ci tout tànk bi nga xamante ne am na ko donc bienvenue au bébé bi nga xamante ne macha allah sunu xarit boobu di euh, Madiaw Diané moo di baayam di ko ñaanal mu màgg lool ba teral ay wajuram di gëreum aussi Lamine cham champion le grand promoteur Nek foofu ca gambi ñu koy nuy bu baax a baax ñoom Makutu Konté ak toute la famille di len gëreum contane nañu guddigi tay euh Bigué la Linguère hein soxna Bigué la Linguère eh moo dellu si waat ngir and ak yeen ci guddigi ci ay waxtani am solo ngeen koy nam lool ah sa ngi ko gëj a ci plateau bi sax di nga mën ana Bigué ah ndax ay question mom mom day jam <laughs> waaw mom te bu jame bu dëbbee bu diiree day dal waaw kon nag képp kuy ñëw fii na ko xalaat <laughs> kontaan naa maa ngi lay nuyu. noonu maa ngi lay ziaral bu mm. baax a baax a baax di amaat mbégte ak euh, contentement mm-hmm. dellusiwaat ki nga xamante ne mooy di ci mm. euh, émission guddi gi émission bu am solo bi nga xamante ne fa tabaarikàlla macha allah heure bi mhm. commencé rek mhm. gars yi dañuy yeewu mhm. euh, jaay seen lal fas yéene jàkkaarloog ñun ñu ngi nuyu waa Sénégal waa àdduna nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ci diaspora bi ak partout dans le monde foo xamante ne rek nit ñu fay nekk du ñu bégee ñu ngi leen di nuyu di leen ziar du ma fàtte benn yoon waa Saint-Louis du Sénégal heure bu émission bi commencé ñoom dañ koy bàyyi xel lu ñuy def di seetaan di partager di aimer di capture et maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu nag sama papa Fojeka comme toujours kooku moom. Amadou waaw le bu ma sumbee rek day dëpp mu ngi noonu. di nit ku baax nit ku mm. yàlla baaxal nit ku am kóllëre. nit koo mm. xamante ne nag nee naa bu sama rangoon. Mm. sottikul mhm. fii ci Ndakaaru Ndiaye mhm. ah, moom la maa ngi a baax de passage mhm. ñoom Yacine ñoo macha allah ñu ngi leen di gërëm kontaan nañu sama turandoo de soxna Bigé du ma ko fàtte ah sunu yaay borom waañ bi waaw waañ bi ca Ndiassane waaw waaw waaw ah, di ci waale sunu baay bu baax bi bi nga xamante ne fàttewuñu benn yoon moo xam ci teraanga yi moo xam ci ñaan yi fàttewuñu benn yoon saa yi toogee rek mu ngi nemmee koy doomam di laaj ndax ñu ngi ci jàmm ah ma ne ko ñu ngi ci jàmm parce que ñun biñ la amee lañ nekk ci jàmm mhm. donc sunu papa sëñ ibrahima kunta ca mhm. njaasaan mhm. kooku mooy ambassadeuru cheikh abdou khadir jeylani moom mooy eh, ki nga xamante ne bëgg cheikh abdou khadir jeylani ba mu jeex ah te boolewu koog dara ba noppi nekk ca di def lu di wax lu baax ah sayu. événement xewé xel lépp fay dem ci mom ndax taxaway bu am solo bi nga xamantene amna ko foofu ci Ndiassane mu nek porte drapeau Ndiassane manam tay bo né Ndiassane da sa xel ci seigne Ibrahima kunte lay def ndax mom mooy drapeau bi te di représenter dignement te ken deg ko ci dara bu ngeen gisee photo sax man mako woné fi nga xam ko kon warul presse warul média waye nak ñun ku ñu ciof ah ñu cof la waaye ku ñu téye ñu téye la te moom daf ñoo téye mhm. waaw nit ñuy waa Gambie def waxoon naa leen ko daaw mhm. nit ñu jàppee tuddee ñu drapeau mhm. moo tax saa ñu toogee fee dañuy fàttaliku waa Gambie ah waaye sëñ Ibrahima Kunta moom daa xadd gi waaw moom moom nee ku jommi boo fa demee sa jommi jeex macha allah ah, kuy waaj a nërmeelu boo fa demee da nga taxawaat kuy waaj a boo fa demee di nga hmm? kuy waaj <laughs> <laughs> kuy waaj a téppar ñi boo fa demee sa xel mi dellu si hmm? ku fa dem ak xam nga euh, nit mhm. da nga waxal li nekk ca la waaw nit mhm. waxal ko li nga ko xamal waxal ko li nekk ca moom dëgg la ah ñun de mhm. saa ñu toogee ak moom dañuy dellu siwaat mais bu xel mi demoon sax dañuy dellu siwaat te xam nga nag nit nag euh, Sénégal euh, dañu ay neexu la waxee ak a neex waxal li nga xam waxal li am té nga wax li nga xam. Mhm. boko waxé rek da ngay noppaluku. te moom noonu la ñu def. macha ah, allah sunu bay bu baax ba. Mhm. motax ñun sunu sponsor officiel. ndaysane di aral sunu émission aar ñu. macha allah ko def. Mhm. donc ñu ngi lay gëreum kontaan nañu té duñ ni wa kër ga yépp té ndiasane ak sunu yaay soxna Biige. macha allah borom waa ñuy turandoo la ligère amna na mom euh fo nga am ah, fo dugg ak moom ci ruxu waaw. am pour am noo def ak moom koy seeti foog ma seeti sama turandoo macha allah liñ naan mag lu muy wax ba rangooñam mm-hmm. di toog wala mm-hmm. bëtam di xonk dëgg la mm-hmm. ci moom te nag euh, nit buy wax li nga xamante ne nii rek euh, ci xolam la ko tibbee à chaque fois kon doo ko wax tey bàyyi suba mais chaque jour Yves yaa ngi wax lu ni mel ndax yow moom macha allah yaa xanaa sa dëggu àdduna xam nañ ko donc jarul may toog fii di leen ko wax mhm. kon chaque jour yaa ngi bamtu di bamtuwaat seen baax mhm. donc lu ñu la woon la ak li nga xamante ne moom nga gis ci ñoom ndax yaakaar naa mhm. fii moom kenn tollatul bu foo naan kenn yàllaa ngi nii te gisoo ko te loolu gisul tamit ak lu la nit woon amoo jotu toog fii di ko wax ñu leen ñaanal rek yàlla bàyyi leen suñu kanam ñu allah macha allah kon nag yow bu yoboon na nga takk say baga te waajal ah, yoonu Njaasaan <laughs> pare ñoom ñu ngi waaj. waaw ñoom Ngone ngi waaj. ñëpp a ngi waaj. te yaa Njaasaan nga. <laughs> xam naa ne moom. Mhm. ñun suñu délégation rek. ñu war a ñu war a wàcc Njaasaan rek. bu ñu xam ne ah. am ngeen gan. bu ñu nee cëpp ba Njaasaan. Mhm. ngeen xam ne Njaasaan am na gan. sama turandoo am nga problème dem foofu tourné ko. rek ak ñu mu doyee <laughs> <laughs> dañu jël rek yobbu ko Ndiassane. yi boobaa kay mom du yomb moom. ñu ngi koy wajjal bu baax yalla ñu fi yalla yobbu jamm ak amin amin inshallah incha allah yow mi ba di ko tam xarit bi. sax jour nga dee waaw. man lolo jaaxal na ma on jour bobu nag deug yalla dama melni man ko ah, dama dama laalo li xalé ni la ñu ñun est-ce que dem tam xaritee fofu tamit. waaw waaw mu na nek de. ah jar na ko de. mu na nek de. Hmm. hein xamna dañ fay dem sama turundo rek bu ciéré ba bàyyi. yéé waxuma la ciéré waxuma la cere waaye. monsieur. Ya. dédé kay. lakk ga. man na yàlla dogal na moom du ma gis tubaab di wax ak naan ma gisee cere gis miche bi. <laughs> boo gisee cere gis miche bi booy tànn damay mujjee boo gisee cere gis miche bi ngay tànn. ah miche bi nag nañu waxante dëgg rek. Ah. nañ ko waxtaanee yàlla dëgg la bëgg. <laughs> yàlla dëggantaan la bëgg. <laughs> macha allah kontaan nañu. Ah. en tout cas ñu ngi leen di ziar bu baax. Mm-hmm. te di nuyu aussi ñi nga xamante ne mhm. ña nga ca bitim réew di ñu bàyyi xel mooy sunu xarit yooyu nga xamante ne ñoom tam guddi gu jot mhm. dañ ñuy bàyyi xel ku ci mel ni sunu grand mhm. moo Ndiaye l'homme social de New York nga xamante ne moom tam macha allah moom mooy chéri Mado chéri Matlen ah sunu xarit la sunu mag la ku am yéene ci ñun di ñu bàyyi xel guddi gu jot moom tamit ah, di encouragé ci liggéey bi donc moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu aussi Cheikh Moussa Soxna ma nga ba Kaolack muy ku baax ah, di kilifa. Kaolack yépp jox ko cër. bi ma ko seetee Kaolack. Mhm. macha allah. Mhm. jour boobu xam naa ne. man ki ma toogal kilifa la. mu teeru ma ah, mhm. moom tamit walla màggal ma. yëkkati teg ma ca kaw. ma xam ne eh, kilifa rek moo mat a doon waaw maanaam kilifa. dañ koy mat. moom mat na kilifa. donc Cheikh Moussa Soxna maa ngi lay yëpp. Ah, dem Kaolack mu ne ma faw nga ñëw fi ñu gisee donc maa ngi lay ziar kontaan nañu bu baax a baax mhm. di ziar aussi xalif général sunu xalif Cheikh May Ibrahima Niass ah. mhm. kooku moom moom kenn la moom mhm. nee naa moom mooy général boo xamante ne rendez-vous déedéet amul rendez-vous amul ay dem naan damaa bëgg gis xalif dinaa lay taa bàyyi ba gannaaw suba ak noonu moom da ngay dem ci mbaar ma nga koy fekk mu toog wéeru boo xool la mu sol Mhm. matul sax junni. ndeysaan. waaw kookoy sunu xalif ñu. waaw parce que moom. Mhm. moom dafa dégg jamono. macha allah comme ni baayam ba déggee woon jamono Baay Ñas. Mhm. noonu déggee jamono. ndeysaan ah jamono Baay moo waral ba muy tukki. ah mënul jëlee fi avion mu dem ba Gambie. avion militaire ko jëlee Gambie. yóbbu ko fu mu doon jëm. ñu ne ko fii amul foo toog de mu ne naa am fu ma toog rek. Mm-hmm. fa mu toog mooy fa ñuy denc balya loolu mooy dégg jamono loolu mooy sëriñ bu dégg jamono mm-hmm. parce que li ko tax jóg du woon avion ba mm-hmm. waaye la muy fekk la woon kon moom na dem rek waaw bi avion bi xawee jaxasoo ñu ñëw ne ko sëñ bi avion mun leen ñaara mën am egg fekk ña may ña may fekki wala génn adun dem àjjana est-ce que kookoo déggoon jamono moo tax ñu def ko suñu sëriñ tax ñun on est zen ñun on est free ñun amuñu problème ah. déedéet ñun taalibe baay amuñu problème yow est-ce que taalibe baay bu am problème bu diisal àdduna di dem nii yanu àdduna bi bëgg a daw ak moom <laughs> taalibe baay amuñu problème boobu. déedéet yow ba nga day taalibe baay rek ñu ne la ki rek mm-hmm. muy xoggali koog di mm-hmm. ngan ngandaloog di ñoddi doo ko gis. boo ko defee rek doonoo ko nitu yàlla ak sëriñ sax dadul benn sapedda ci noonu laay xuusee rek mhm. dem ba fi nga xamante ne mooy diwaanu Mbour Géej mhm. euh, di fa ziyaar nag euh, sëñ Omar Mbacke Amidoun mhm. Baye Fallou borom gaawaan boobu kooku mu ñëw Mbour fekk jeunes yi safaanoo ñi mel nii ñi mel ne mu ñëw boole leen def leen benn say def leen ay murit àqan maa ngi koy bu baax moom nag émission bi bu ko raté benn yoon heure bu ma fi nekkulee sax day seetaan naa maa la doon suivre léegi en direct fekk na ko dañ doon rediffuser maa ngi passage sëriñ Thierno daamale ca daaru mhm. mhm. macha allah ñu ngi koy euh, nuyu bu baax a baax mhm. di nuyu aussi Omar Cheva ah mon frère maa ngi lay bëggee kontaan nañu moom tam mu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax di nuyu aussi Cheikh Omar depuis Kër Massar jërëjëf frère moom ku bëgg émission bi la te mu ngi ñuy bàyyi xel di kontaan aussi ci sunu xarit yi nga xam ñu ñuy bàyyi xel ñëpp mais di nuyu sama candidat en 2024 kan la maître El Hadj Ousseynou Diouf ferme-moi maître <laughs> am nga problème sa candidat boobu non problème de. ah baax na nag dem rek. yeneen candidat yi ñoo am problème. man aw problème man man sama candidat amul problème mais yeneen candidat yi am problème. mais nangul waaf rek ndax moom bëgg nañ ko pare. bu ñu la sànnee nga waaf rek. moom bëgg nañ koo pare. Ah. <laughs> yow koo xamante ne. foo romb ci mbedd mi. ndeysaan dinañ taal caméra wax ak yow. xam moo ko am jamono jii nii bëgg la wala. bëgg la Sénégal na gis nga. c'est que dinañ saboté nii. non non da ngeen jaxase bëgg. dañ koo fan bëgg ak fan mais sénégalais dañ koo fan. amul fan mais fan bu yàgg bu yàgg bëgg la indi. tey moom cas bi bëri cas xam nga mën a sañse. waa dégg dégg sañse bu solee costume nga d' mm-hmm. te du sol ay costume mu cent mille costume cent cinquante mille mm-hmm. ay costume un million cinq cent lay sol grand boobu mooy borom saa ko solee nga kontaan bañ bañ da nga koy nangul gudd noppam ah, moom tabaarikaala macha allah dégg na dégg ah. nag moom mën na mën na englober lu bëri en tout dégg na daal man daal maa ngi nuyu suma candidat en 2024 muy maître El Hadji Diouf maa ko bëgg ku ma ci bëgg na nga bëggaale ma moom ku may bañ nga bañaale ma ak moom macha allah loolu maa ko wax te loolu lu ma lu ma gëm la mhm. ndeysaan parfois ma wax nit ñi jàpp ne sabotage la man saboté wu de ah. am ñoom dafa wax ñu lay ree quoi yow <laughs> parce que man am ñoo xamante ne tey ma ne ma mel ci Maître El Hadji noonu lañ mel ci man mhm. dañ lay bëgg xam nga fu ñu toll di courage la Sénégal moom kenn moomu ko waaw ñoom ñëpp boo xoolee seen carte d'identité boo dee xoolee nationalité sénégalais lañ ciy def donc am nañ plein droit ñu déposer pour ñëw téye seen réew loolu yëpp xër la boo xamante ne am nañ ko seen réew te man dama ko ko yéenee parce que xam naa ne ah ouais moom bu nekkee président Sénégal mhm. yu bëri dina réglé wu ci réew mi pour nga régler réew da ngay am fit. mais lan moo fi réglé wu nga yaakaar. dof-dof bi gars yi dof-dof di def leen neex ci mbedd beeg wax na ko keroog nee na bu ma nekkee président. Mm. am. Ah, moom loolu rek kasi ñor. sàmm gërëm tamit bu ah. ginaar waxaale soxlaam. looloo ko ñor day sàmmaale réew mi. ah, ah sàmmaale njabootam. boo xoon leneen sax bokk na ci programme am. mais taal. moom. <laughs> dañ koo taal bu nekkee président. taal rek kenn dootul taal gërëm. <laughs> te dina ñëw fii. nga gis sa eh, la bëgg. dina ñëw toog fii. <laughs> ah oui te waxtaan ak moom. Ah, mais dinañ ko xaar. bu ñëwee fii dinañ waxtaan ak moom. Hmm, parce que xalaat yi mu am ci réew mi. Hmm, hmm. ak li mu bëggal Sénégal. ak li mu bëggal boppam. non Sénégal moom Sénégal la ko ñor. Ah. moom bu doon boppam kese liggéeyam bi avocat bi doy ko am na xaalis mu ngi sant yàlla. mun na dem di def li muy def dem France avocat international la bu demee France def ay. Euh, def liggéeyam bu ñibbisee ñëw toog. mais soo gisee muy sonn di wax ci réew mi. Ah. nga xam ne kii dafa bëgg Sénégal. kenn gënu koo bëgg Sénégal. dëgg la c'est du Sénégal. la kenn gënu koo bëgg Sénégal. Ah. waaw c'est le meilleur avocat ah, baax na waaw. te profil bu baax bi ñu soxla 2024 maître El Hadj Diouf la. lan lañu soxla 2024 ban profil boo xam ne nii maître El Hadj. daf daf gi nekk ci réew mi yow lay réglé. mais moom est-ce <laughs> daf daf li gi <laughs> nekk ci réew mi. nangu dof dof lu ginne ki ci réew mi ku wax ñu saaga la ku wax ñu ñu message commentaire la yëpp da koy dindi moom de bu yéegee xam naa TikTok lay njëkk a tëj. naa damay dem TikTok moom yàqu na damay dem rek toog fa benn yoon. <laughs> en ñu ngi koy ñaanal parce que nag sunu. vraiment sunu sunu la. Mhm. te c'est la à à part. Euh, mhm. cëfër cëfër beeg. ci mhm. ci euh, liggéeyam. en tant avocat. mais boo waxee moom bu dul loolu da nga naan est-ce que kii moom la est-ce que kii la ñuy waxal mhm. ne mooy nekk tele bi de bëri cëfër cëfër donc loolu euh, mhm. Sénégal yëpp ko reconnaître moo ko laaj sax na kenn ku ci nekk sa client buy jongante dara mu gagné da ngay bëgg mu gagné voilà donc bu leen ko jàppee liggéeyam daa mel ni man tey fi ma taxaw di wax nii rek ngeen mhm. jàppee ma sama liggéey bu ngeen ma fekkee ci mbedd fekk gis ngeen beneen nit ngeen di gis donc loolu bokk na ci li nga xamante ne parfois dañ ciy tooñ nit te Sénégal lañ ci trompé wu. waaw personnage ak personnage la ñuy xàmmee wuñu ko des fois nga gis ku joué théâtre mhm. nga génn daje moom ci mbedd mi bëgg mu mhm. joué waat rôle bu mu doon joué ci théâtre ba. Mhm. mu taxaw di la xool nga mere ko. da ngay fàtte ni kii du moom. kee personnage bi la woon. kii personne bi la. waaw dafa dugg ci mu beneen nit. mel noonu. loolu dal na fay artistes yu bëri. après nga mere leen ah. ñoom fenn di leen. Eh, xam nga tooñ pour ñu yëngatoo ak yooyu mu toog ne teg mu toog nga ne kii ku soof la mm-hmm. naka de ku soof la mm-hmm. ah, te bu nekk ci film yi wala bu nekk ci kii di di yaa ngi koy tooñ mm-hmm. parce que dañ koo fay xaalis pour mu ne mam nii la war a mel te loolu muy def moom da koy jàngale waaw ah, nga bëgg nag mu nekk théâtre kat ci télé bi nekk théâtre kat ci mbedd mi munul nekk yaa ngi koy tooñ te dañoo gaaw ci kii daa soof waaw dañoo gaaw kii rek ñii la soofee dañ lay romb fekk la ci beneen humeur nekkee di ree ñu ne amul benn fulam dañ lay fekk ci beneen humeur sax ñu ne kii ku soof la mm-hmm. te fekk na boobu sa xel maa ngi feneen yaa ngi lijjanti leneen wala nga romb ñu bëgg la taxawloo par force mm-hmm. te xamuñu ci ban allure nga nekkoon te boo taxawee sax ñu ne amoo fulla aussi Sénégal mm-hmm. waaye il faut avoir la tête dure mental de fer rek boo bëggee dëkk da ngay dëgër da ngay woowle comme ñoom <laughs> boo dëgërul bopp tey nga dee tey xaa ndeysaan ma dugg ah. sama page Facebook gisu commenté benn affaire ma dugal sama benn affaire. waaw. gisu commenté ma lire commentaire bi après rocc la ndànk bloqué la. bloqué la parce doo am tontu mais c'est aussi doo xuloo doo xeex. xuloo nga wax may may wax ma lay tontu. waaw damay wax nga commenté ma liir damay lire commentaire bi nag su ma liree ba pare après rocc ci commentaire bi ndànk bloqué la. am na ñoo xam dañu juste pour perturber. comme ça. dootoo gis lu may dugal. mais nit boo ko bëggulee sax jarul nga koy suivre boo ko bëggulee déjà jarul nga koy suivre buy live romb ka nga dem sa yoon. bu dugalee dara bul commenté romb ko nga dem parce que loolu dafa bokk ci maandu. non duñ ko def am nga Sénégal am nga problème bi. ay sénégalais. sénégalais kaay ma xamal mhm. Mhm. Mhm. mooy dugg si sa wala dugg sa commentaire saaga la. waaw. xam nga des du duñu def seen tour normal. après dajeek yow le lendemain dajeek yow le lendemain di la bëggee waaw te moo la doon saaga démb bi nga def émission mhm. tey moo lay bëggee mais léegi loolu nga ko jàppee mooy naafeq mhm. mais hypocrisie mi nekk ci réew yooyu après sax mhm. pour rek ñoom li ngay dund bu mu leen échappé mais bëgguñu la duñu la like na ñoom nañ lay vu rek. pour xam ci xam ci li nga nekk. mais loolu am connexion la man boo ma neexulee. du ma ko dara boo defee ba ma lay paqueté ba nga jekk ma teg la ñu la gisee ci benn affaire bu xaw a ñaaw. loolu ñu bëgg. sa commentaire yi. Mhm. waaye bloqué rek. te boo defee lu rafet nag. <laughs> duñ ko commenté. waaw ah. non non non duñ commenté loolu moom loolu ça c'est sénégalais. ñu baax ñooy bëggante. jantalmeen yee bëggante jongoma yee bëggante. est-ce que xam nga. Mhm. lan motax ma bëgg wa Gambie. su ma doon judduwaat. da nga len buga ñu ne ma ban nationalité ngay jël nationalité gambienne lay jël. xam nga lan moo tax. Mhm. Gambien bu la bëgge bëgg na la bu la bëggul bëggul la. c'est-à-dire mhm. man daf ma neex ci ñoom. mais lool moy nit. ñoom bu ñu gisee seen ku ñu bëgg. Mhm. sen star wala sen idole wala yoy bu ñu la gisé dañ ñëw ba ci yow. wala la ñoom dañ la bëgg. té dañ lay sétane dañ la dañ la sopp. mais sénégalais moo lay gis bëgg la. Mhm. bay jooy. Mhm. bu toogee di la seetaan. Mhm. nga dajeek moom ci bërëb. mu yóbbu kanam gi Washington toog mel ni ku la xamul. léegi bu fa toogee. di la ko présenté. xam nga wax ah kii ki mu nekk télé bi. <laughs> te billahi. ñoo la gën a xam chaque guddi yow day seetaan chaque jour dañu lay suivre c'est ça. daf maa dal. sama benn boutique copain maa ngi koo fekk. xam nga ki mu ne kii fu mu nekk ban teel la nekk loolu xaw ma kii bu ne ko ma ko seeraan. Hmm. émission guddi de gisuma ko du seetaan. ma gis ne koy seetaan ñëpp sax xalaatuma woon ne sax ñoom dañ koy seetaan. ay kilifa ma taxaw di ko ree rek. Mhm. ma xam li ma xam na rek bëri na ci morom. Mhm. mais duñ la ko wax. donc loolu. ça c'est le sénégalais quoi. Mhm. moom mooy bëgg ne ba pare denc ko du ko ko wax mais gambien. bu buñ la bëggee. Ah, dañ lay wan ne bëgg nañ la nag Sénégal la ëpp de. xoolal li ñu defal daaw mm-hmm. ma nekk ci réew mi di def sama liggéey ah, nekk ci li ma nekk rek. boole ma dara gi wax. Mm-hmm. waa Gambey jógee seen dëkk dawal oto ñoo seet si ma fii. tuddee ma drapeau indir ma drapeau. invité ma Gambie. da ngay seet loolu te ma nekk fi juddoo ci réew mi. Mm-hmm. de 2004 ba te maa ngi ci média. mu mel ni man def ma dara Sénégal waa Gambie reconnaître man li ma doon Sénégal moo tax man su ma doon judduwaat Gambien laay doon. waaye nag ko jàppee de c'est que loolu ñoom mënuñu ma doon judduwaat Gambien laay doon bugguma américain bugguma français bugguma euh, allemand bugguma dara Gambie la kii lay dem juddoo fa. macha allah parce que ñoom dañoo baax. Gàmbi dañoo baax. Mhm. loolu ma fu ma toog dinaa ko wax. Gàmbi yéen a baax waa Gàmbi rek a baax. yéen a baax ñun ñoo bon dañ nangu <laughs> waa ñoom ñoo baax. ñun ñoo bon yéen a baax yéen a gore waa Gàmbi <laughs> alors Mouhamed. Euh, le temps nga ñu indil café gi. waaw euh, dafa mel ni seen naa fi sunu benn invité. Mhm. Euh, mu ngi waaj a ñëw ci plateau bi laata ñuy am beneen invité bi. Mhm. ci plateau bi su ko defee li ñuy waxtaanee tey dina bokk ci li nga xamante ne réew mi dañu ko waxtaanee diggante démb ak tey. Mhm. bokk na ci xale yi nga xamante ne dañu doon jël mbëkk mi. di jëm ñi ne. Barça Barsax la am ñu naan beneen côté la parce que mhm. enquête bi quand même comme euh, pare guñu ci mënaguñ ci wax lu ñu leer mhm. mais ñu ngi massawwaat ñi nga xamante ne ñoo des ci ci géej gi mhm. ñi nga xamante ne aussi gisaguñ leen ah, ak ñi nga xamante ne aussi bi ñuy bi ñu leen indiwaatee dañoo sonn ah, parce que xam nga gaal gu gu dëpp moom wala gaal gu toj ci biir géej euh, pour nga mucc ci day jafe lool en tout cas ñu ngi leen di xalaat waa Wakaam ak doom yi nga xamante ne ñoo ci bokk yëpp doomu Sénégal doomu réew mi parce que lu metti la quand même c'est un peu partout dans le monde mm-hmm. parce que affaire yi moom mm-hmm. du ren ji du semaine bi mm-hmm. du parce que affaire bi dafa nekk loo xamante ni il est temps que nag état taxaw ci ñu jël ci ay mesures parce que xale yi ni ñuy deewee nii nii nii mel ni ay jën ku ne naqariwu la rek waaleykum salaam alaaji sëriñ Cissé mu baax mi mu sëriñ Babacar Sy toujours élégant mën a sañsee comme sa waaja sëriñ Mansour Sy waaw mm. soxna biigee ngoog alhamdulilah macha allah mu ngi noonu nag mm-hmm. mu nekk loo xamante ne état mu nekk nii war na fi tax ñu def ci taxaw seetlu nag mm-hmm. ñu xool cause bi d'abord mm-hmm. parce que lu am rek am na lu ko waral bu ñu xoolee cause bi nag ba pare conséquence moom jaratul ñu koy wone parce que conséquence yi gis nañ ko fay parce que dee bi ay xale yoo xamante ni xale mooy réew nga toll sa diggu doole mhm. doo gis lu dul dem nañ ci géej gi mhm. teer nañ fa mhm. nombre de personnes boo xamante ne yow doo sax comprendre affaire yi nañu xool cause bi bu dee ay sacrifice la ñu xam parce que tamit nag nañu waxante dëgg nañ dul rek baaraam bu dee ay sacrifice la ñu xam bu dee xale yi dañoo sonn ba doyal Sénégal bu mënutuñ fi toog ba mu jaral leen lii ñu xam problème bi daal déjà ñu xool fan la nekk d'abord comme ça ñu mun a xool yan solution lañ ci indi ba pare ñu def ci nag ay solution yoo xamante ne nii day metti Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. kuñ ci jàpp ngay dem ci gaal parce que dee bi tam ñu sóoraale seen waajur yi déjà am na kuñ ci jàpp ñiy yóbbuwaate waaw am na kuñ ci jàpp surtout ñooñu nag ñi ñi ñu doon préparé pour yóbbu xale yi jàpp nañ kenn démb enquête bi ñu ngi ci vraiment gars yi dinañ régler seen problème comme que nag mu ngi ci yoon moom nañ mhm. yoon def li nga xamante ne mhm. ci ñàkk seen bakken mhm. ñu leen seen ay waajur di leen ma sow bu baax a baax vraiment deuil national Sénégal yëpp la voilà macha allah am na solo euh, donc ñu ngi nuyuwaat euh, ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy suñu kilifa yi mhm. sëñ Mamor Mbacke mhm. mu sëñ Abibu mhm. ah, mu sëñ Munu Mbe Xaabaan moom saa yu màggal gi teroo rek ah, dafay am yu am solo yoo xam ne daf koy def ci réew mi ah muy wàccaayu màggal gi te moom nee na ma màggal dong laa am moom at baat lay wax saa yu waxee màggal a jot te mu nekk sëtu sëriñ Touba. est di sëtu sëñ Munu Mbe Xaabaan te sëñ Munu Mbe Xaabaan Mm-hmm. addiya bi gënoon foor ci jamono jooju moo ko mm-hmm. joxoon Serigne Touba mm-hmm. maanaam junni ca jamono boobu moo ko njëkk a yëkkati jox ko Serigne Touba kooku mooy maamu sëñ Mamor Mbàkke mu Abibu donc ñu ngi koy ziar bu baax te di ko wax ne mhm. ñu ngi waajal suñu plateau spécial bi nga xamante ne dañuy waxtaane sëñ Abibu waxtaane sëñ Mënu Mbe Xaabaan ca mhm. Dendey mhm. loolu yëpp incha allah daañu ko waajal ci jamono bii nga xamante ne ñu ngi nekk ci wàccaay màggal bi di ko ziar bu baax moom tamit eh, ku ñu bëgg la eh, te ku am yéene ci ñun la màggal bu jot daf ñuy dalal këram Mhm. jox ñu ay xéewal mhm. ba nopi jox ñu ay teranga donc ñu koy ziar baaxa baax señ mamor mbakees mhm. mu señ abibu mu ah. señ munu mbé xaba ñu koy ziar ak wa touba yépp señ cissé mu señ babacar euh, ñu ngi lay nuyu contane nañu tay ci sa dellu ci ci guddigi comme ni koy waxee sa émission la ndax nak ba doga tambali ba ñepp né déet ya né waw ba nopi def ci ñaan bu am solo ñaan bobu topu ñu bobu légui motax ñun say lay dala ci émission bi day melni da nga ñëw rek sa émission émission waaye doo fi gan ñu ngi lay ziar bu baax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin santaan nañu yàlla julli nañ ca sangam ba sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di siyaara di baalu ak di baal ñëppit ak di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na nu yàlla boole baal nu fekkee di yoon yu bari te yàlla nangul nu ñu nu fajal nu aaju yi ci barkeb sëñ Babacar amiin DJ Yves ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaara mm-hmm. di la jox sa cër ak sa wàccuwaay bi la yàlla jox mm-hmm. ndax li nga wax dëgg la mm-hmm. fii bu ñu fiy ñëw dañ fiy ñëw ci xel mu dal buñ fiy ñëw dañ fiy ñëw ci personnalité buñ fiy ñëw dañ fiy ñëw ci dignité xam ne ñu ngi jëm ci sunu xarit ñu ngi jëm ci sunu kër ndax damay wax ne guddi gi képp ku ma fa séen damay sama sama fierté la ndax bi ñuy commencé defe naa man ak yaw la woon yàlla def ne fa a bu ku ne bëgg na ñëw guddi kon ku ma fi séen rek damay kon ñoo ngi nuyu mboolem koo xam ne mm-hmm. yaa ngi bàyyi xel émission bi mhm. waaye rawatina sunu xalifa mhm. Serigne Babacar Sy Mansour mhm. ñu ñaanal ko yàlla yàlla yàggal ko fi lool te ko ñaanal ko Cheikh Maye Niass ca ca ca ca Medina Baye di ko ñaanal yàlla defal ko euh, sutura defal ko fanu gudd wu ànd ak wér Serigne Mountakha Bassir ba ci sunu mbokk jàngu beeg sunu mbokk laay ni di siyaar ñëpp waaye duy profité occasion li nga wax rek di jaal ñi nga xam ne seeni ko ci lii nga xam na lool fa tabarakallah ñu leen di jaal di ñaan yalla ñi nga xamne ne ñoo fi bàyyi njaboot yàlla na yàlla ci ñom loxo ñi ñak seeni bak domit, yalla yalla may leen xolu muñ dara jey mustafa sallallahu alaihi wasallam ñu ngi bëgg lool it ci ci mm-hmm. invité bi sha allah contane mm-hmm. euh, nañu mm-hmm. euh, ñu ngi xaarandi benen invité bi moy euh, envoyé vocal ni xaar ma yëg lu muy wax ah d'accord wa wa wa wa wa wa wa jërëjëf wa wa xarit wa wa waaw <laughs> maa ngi am problème nag parce que jot naa beneen message am nga problème. Ah. <laughs> jot naa xaaral ma déglu beneen vocal bi lu muy wax. Ah. <laughs> ay sëñ bi am nga problème tey <laughs> tey am nga problème tey moom tey moom. tey moom am nga problème yow. yow li piège la de dañoo piégé nag xaw ma nu mu def noonu. eh America ñu ngi koy nuyu suñu frère. borom Washington. ah na ma Sénégal du dem lay Sénégal du dem. dem gi mu war a dem ba tey demu ko. ndax xol yi. Zal li ma doon wax sànq lu ma gëm la. dëgg tey su ma doon dellu siwaat ci jamono. Mhm. di gana jamono. Mhm. bu ma doon laaj nationalité bi ñu ma war a jox. bu gambi lay jël lolou luma gëm la dé ma du ma waxantu bu ñu waxee koo gën bëgg ci candidat yi Me El Hadji Diouf wax té luma yag gëm la mm. waye tam nationalité bi mo wara a gambi parce que Gambien yi seen xol yi dafa yaatu mo tax noonu la mbedd dëkk yi yaato mm. bo démé gambi gis nga mbedd yow mom kenn du la wax gambi ndax toj nga fa wàccee nga gambi tay tay lam mo la gëna marqué ci bax hmm bëgg nit mm-hmm. am yéene ju rafet ci doomu aadama mhm. daa ngay xam ne gambien boppam rek ko ñor mhm. lu moromam nekk mën na ko ca ba mhm. ngeen seq soxla yéen ñaar lim la wax bu manqué le am yaa koy manqué waaye gambien bi dina ko matale ci kàddu fonk kàddu ba nga koy xam nga leen fekki leen buñ la indilee tiranga da ngay tiit ndax tiranga ji na muy toll ci élection yi nga xam ne Amadou Ba Amadou Amadou euh, président bi Euh, euh, Adama Baro. Adama Baro. Mhm. yóbbu nañu fa. buñ mhm. ma indilee li nga xam ne moom laa mhm. war a jëfandikoo. man kenn nit laa damay tiit. ci loolu yàlla def ko ci ñoom. ñuy nit ñu bëgg nit nag. bëgg seen bopp waaye bëggit seen seen askan. te loolu euh, loolu mooy àdduna. di it gànne yi kenn gënul leen. man de ñi ma ci xam man. ci mu sëñ Babacar. ku leen man ci sama jëmm ji gisuma ko. ci bëgg boo xam ne ak bëgg dong la waaye jëf ji ñuy jëf bu ñu la ko jëfalee da nga naan la mhm. màkkan la mhm. te loolu xol bu yaatoo koy jëf dëgg la te jëf dëgg dëgg dëgg xol a koy def mhm. nit dana yéene te xolam du nangu dëgg la de nga am yéene waaye xol ba du dem xol ba du nangu dëgg la maanaam jëf nit dana am waaye xol ba du dem léeg nga yëkkati benn cinq mille jox ko Yves mhm. waaye jox ko ko wane ginnaaw mhm. xol ba di bañ xol ba di bañ dëgg la xol ba di bañ mhm. waaye Gambien yi dañuy jëflante yow yëkkati dara jox la ko waaye ak yéene yéene yi dolliwaat ca loola xam nañ ci dara ndax li ñuy jëflante ñoom bari na ci ay kilifa ci ay xale ki ñëpp kon Gambien yi fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla gën leen a li nga wax dëgg la nationalité boo koy def di ko rëcc mooy ka nga koy jëflante nga baaxul. dëgg la waaye yàlla def na ne gàmmee yàlla def na ñuy borom xol yu rafet di borom xol yu yaatu. du ñu mën a accueillir nit. kon fa tabaarakallaahu gambien yi daal mention mhm. spéciale mhm. jàmbaar la ñu nit ñu baax la mhm. ñu gëm seen bopp la te ñu liggéey la ñu te loolu la gëm sa bopp nangoo liggéey rek ñu ko baax incha allah te li nga ci war a wax yëpp sax waxoo ko ci ndax tey seen président bi fa nekk tey wax dëgg yàlla buñ nee tey ba bu nee ba dégg président da nga liggéey lu am solo wallaahi wallaahi moom da nga koy nëbb da moo koy fësal di wax <laughs> yow da nga da nga doon jàppale Adama bari di ko ñaanal ba mu nekkee président. waa xam nga xam nga àdduna. Mhm. Mhm. man baa ngay xam ne kenn ku yàlla dogal soog dogal ci li mu war a demee. Mhm. Ah, ah, ah Adama Baro yàlla dogal bi may déplacé def Gambie moom yëkkatiwul. ndeysaan. comme programme bi. Macky Sall ak Sonko toll nii noonu la woon. dëgg la. Sonko déplacé na ma. ma dem bi ma demee ñu waxtaan jéggoowuñu. Sonko. Sonko comme par exemple exemple bi laay joxe. exemple ok. ci ni nga xam ne noonu la ñu noonu la ñu xamee man ak Baro. Mhm. bi nu demee moo ma déplacé. Mhm. ma dem dal ci hôtel mu ñëw ñu xëy waxtaan. ndeysaan bi nu waxtaanee yàlla def déggoowuñu Baro nag am na benn waxtaan bu ma mosoon a def ci moom. Mhm. ci élection yi ne bu bëgg a réew mi nan la war a def. bi nu ko defee mu dégg waxtaan woowa bi mu déggee waxtaan woowa. yàlla defi nag mu woo yëg ne ñu ngi ci réew mi rek mu ñëw waxtaan ak ñun yàlla def ni bañ waxtaanee ñu déggoo. ci biir kàddu yi nag ba nu déggooyee ma ne ko yàlla dana def ne da nga jëlaat réew mi mu sëxanu juróomi minute yoo xam ne waxut ak man ndeysaan waaw fa laaw ba yàlla mi nga xam ne mooy nangu ak ñaan mhm. yàlla dogalin ñu bokk ca ña ko ba yàlla joxaat ko réew moom di Gàmbi mhm. kon fa tabaarakallaa Gàmbi sunu réew la mhm. moo xam ne lu ne lu ne def nañ ko fa ci lu baax nu ne jàppale nañ ko fa nit kon ah, moom mii euh, yàlla dimbal nañ ba bokk nañ ca ña ko bi woote yi jàlle sax gaa yi dañ ne nit ñu toll ni amuñu Gàmbi ci gañe bu gañe boo xam ne gañe bi fa tabaarakallaahu ni mu ni mu yéemee ci gañe bi ba dangaa woon nit ñi woo jinne <laughs> ah fa taba Gàmbi daal dafa xew euh, euh, loolu ñoom ña fa dëkk mm-hmm. population ba ñu ne li woote Gàmbi nit ñu toll noonu nekkul Gàmbi mm-hmm. loolu moom am na ci woote yi Gàmbi dégg naa ko am na beneen boo xamante ne du ko wax ba ba gars yi bañee nekkuñu gàmm mais dama koy laaj ndax dafa woo nit ñi woo jinne yi waaw loolu tam jar naa laaj de waaw parce que mm-hmm. nit ñi toll noonu bu ñu fa nekkulee waaw am na lu leen rax waaw xam nga ñaan bu nangoo manee na nu ne ñaan bu nangoo mhm. manee na nu ne mhm. kon euh, ñaan yàlla mu nangul nu mhm. lan ko waxee mu gëm ko topp ko moo waral yàlla defal ko lu toll noonu kon fa tabarakalaaw Gambie yi loo ci wax rek jëflante ak ñoom lu ko toll kon nanu ñaan yàlla rek yàlla yàlla di ñu may loola ndax euh, mel mag mu baax dana ma iif mu ne bu la yàlla defalee dara nga bëgg cee bàkku rek day xaw a compliqué waaye daal gàmmi moom loo wax ci ñoom rek am na loo bàyyi mhm. Mhm. ndax man jëflante naa ñoom ba jëflante ak seenu kilifa mhm. kon xam naa gàmmi yooyu dëgg la te na aussi jamono boo xamante ne coow yu bëri na ci Wally Seck ba mu waree ñëw mhm. ñu dana ko def ak du ko def dana mhm. am ak du ko am mhm. mu fekk la fa nga am loo jëflanteeg moom mu ñëw def la mu war a def ca jàmm ak salaam ñibbi soir Sénégal te boobu dañ jàppoon du am waaw xam waale sax damay wax ne léegi la coow yomb rek gars yi di coow ku nekk di coow naan maay ma maa koy defal ak maay naa maay naa waaye waale bi coow jafee bi samp jafee defe naa ne man maa ne quatorze cent yoo xam ne nii fi mu toll dana téye Miss Africaine dëgg la te lima wax ni dara du ko dindi te yalla lolo yalla ngi cee to ba legi def naan mu ngi mu ngi wey di yeugal ba bis yalla tey jii mm-hmm. Mm-hmm. fu mu demee soppee fekk ko fa mm-hmm. kon lolo luñ jëfoon la te turu yalla boko boko boo ci bërëb diko liggéey ba la ngay laaj yalla fek ci la da nga xam la nga jëf lan la te lolo ñu ko jëfé won ci gambi ci bis bo xamné suñu sunu bisu xarit euh, fa tabaarakallaahu yalla defal ko ci lo xamné ba legi ni sa su wootee gambi lolo yalla fekkale ko fa kon ba jamono tey ji ñun gambi liggéey nañ fa turu yalla wune liggéey nañ ko fa waaw turu yalla wune liggéey nañ ko ko fa ñun euh, Yves mhm. yàlla def na ne wax ji mën naa xorom waaye lu ñu la wax rek piréb mhm. yàlla bi la te tur la boo xam ne liggéey nañ ko ba yàlla gërëm Mm-hmm. waaw waaw macha allah Serigne si sama sëñ Babacar si. Mm-hmm. Euh, loolu dina bokk tey ci li ñuy waxtaanee mooy xew-xewu jamono. Mm-hmm. ak ni réew mi tëddee. ci li nga xamante ne biige Sénégal ñu ngi koy waxtaane <laughs> ah, ay ca biige. ay na <laughs> biige en ma déplacé la tuuti nga toog nii. comme ça li ngay wax. mu gën a ki ñëwal moom day ñëwee ne. waaw nii lay ñëwee rek. waaw comme ça nga gën a waaw nii baax na booy. très bien xew-xewu ah, jamono kay ak uh, li mu wax moom xàjj na mbiri <laughs> comme que uh-huh. moom uh, daa am yu baaxam mm-hmm. deplace wu yóbbu ko ba Gambie mm-hmm. te dëkk Sénégal gi mm-hmm. te mu gis ni Sénégal fi mu ne nii ci langue politique gi affaire yi jaxasoo na yaa ngi dégg Macky Sall ak i ñoñom coow li fi am barki démboo Ndiaye rek yaakaar naa ñëpp Maître El Hadj Diouf lay ñaanal man maa koy engagé pour loolu xam nga nag bàyyi sëñ ngay def moom balaa muy ñaan léegi na xaaj na na xaaj géew gi ba pare <laughs> keroog invité nañ fi macha allah ku baax ñu ngi koy ziar kan sëñ Baraka sëñ Baraka waaw sunu xarit Cheikh Baraka mu joxe ay tegtal yu am solo ci li nga mhm. xamante ne nii moom la ñu xalaat ne bu toogee ci réew mi na mhm. def dara mhm. moom tey jii ñu invité ko moom mu sëñ Babacar sëñ Cissé waaw sëñ Cissé mu sëñ Babacar mu wax wax ju am solo jëmale ko ci Gàmbi te yaakaar naa nag olof Njaay danaan booy wàlli yaan dafay fekk sa kër dafa tëggul mm-hmm. nga dëkk Sénégal ñu gis ne Sénégal depuis koor gi bala avant koor gi sax dañoo woor ci li nga xamante ni moom mooy ay tension mm-hmm. ñu pare ci yooyu dem ci diggante Sonko Macky sàll mm-hmm. yàlla dogal ci tënk rek Macky Sall nee na moom gaa déposé wul ci élection présidentielle yi li ñu jëm mais fallait que mu am ko mu tànn tànnagul nag coolu li macha allah xuloo bi xiiroo beek ŋaayoo bi nga taxaw ci rek daf benn taxaw seetlu bu gàtt rek mën a avancer waaw jaxasoo na buñ ne woon classement la ma ne la neexut a classé man nag yàlla daa dogal soxna si bokk ci sëriñ siy jëfandikoo bakkan maanaam wax loo xam ne ëllëg bu ma iif soxlaa ci palaato bi ci benn lu ñu war a waxtaanee maanaam c'est-à-dire dama koy moytu waaye li ma wét a wóor mooy comme que président moom nee na bokkatul am na ñu xel daj ku ne ne moom la waaye daal li ma wax mooy if mm-hmm. fañ foog ne foofu lay doon mm. fof du fa doon de mm. déedéet manam ki ñëpp xalaat ki ñëpp xalaat mm-hmm. du mom dafa am nak lu ma ko waxoon mm-hmm. ci sama benn waxtaan ne bu bañee wor am ca am na mala bu mu war a bu bari doole kan moy ki ñu xalaat ni kan ki ñu xalaat ki ñu xalaat muy Amadou Ba ñu xalaat ma ne bu fekkee ne bëgg na jiite parti bi ñuy wax APR. Mhm. pour nit ñi nangul ko. Mhm. am na mala bu mu war a génne te mala ba mala bu bëri doole la. Mhm. dëgg la bu loola amul. dama yëkkati sama loxo gëj ne billaahi la sii. laa ilaha illa huwa du jiite parti boobee. Ah parce que mala bi la war a génne. ndax loola dafa war a génn. sarax la daal. sarax la boo xam ne da koy war a génne ngir mu jiite. génnewu ko du jiite. da nga ko toog defal ko listixaar dama toog xam nga dama toog def ci gëstu yu wér a wér a mhm. gis loola mhm. Mhm. te loola bi ma koy wax semaine ba la ñu wan ginnaaw la mooy jamono bi Macky Sall la waxee rek ne du projet candidat coow li commencé jóg laa def gëstu ci yëfi Amadou Ba gis lii xam nga loola weesu na ñu duggaat ci semaine bii ñu weesu ma defaat gëstu gisaat leneen loo gis la ma gis nag. Mhm. dama ne dama koy ci keneen. ci keneen. Hmm. ku dul Amadou Ba. ci keneen ci leneen. Mhm. Mhm. loola nag bi ma ko gisee dama ne dama koy dencal sama waa ji if ba nu gisee. mu waxi kaw. yàlla dëgg la bëgg. fii lay leeree guddi gi fii. du waxi kaw. Ah, te loola ma lay wax if. danaa la ko wax. waaye Amadou moom. Mhm. bu bëggee am wàll ci APR nag laa wax ci APR. ci APR bëggee am wàll. Hmm, bokkul ak jiite réew mi. bokkul ak jiite réew mi am wàll ci APR. mais hmm. ak jiite réew mi du hmm. benn. jiite réew mi loolu leneen la. mais jiite APR nga wax yow. jiite APR. voilà maanaam su Macky Sall la ki koy remplacer. tab ka daal tab ka waaw ko ne toppal leen ma Amadou mii. pour mu am kàddu googu mu bàyyi ko ci làmmeñu Amadou Ba. lii ma la wax bu ko defu du ko dégg. mais lan lay génne. du ma ko wax sama secret la di. maanaam daal na nekk daal gatt daal kon daal ça veut mu ñëw ba ci yow. lii ma lay wax. Mhm. man la ak moom ma wax ko ko mu def ko. mais su jaare ci ku mu bokkal nag ku ko jégué mais bu dé mais mais bu dee sarax rek bu mu war génne nag wax dëgg si yàlla sëñ bi nañu waxante dëgg bu dé sarax dong la wax mu génné sarax bi xam nga teg nga ku ne fii waye ah. <laughs> waaye du ma ñëw non non non non sëñ bi dédé man moom d'accord du ma ñëw ñu non d'accord té li ma lay wax d'accord ma baa ngay xam ne lii ma lay wax mooy mooy li wér ci nga mhm. na président woote mhm. ah kon yow sëñ bi da nga bëgg treize woo la rek. non non non non ah mais nañu waxante dëgg. non non xam nga mais sarax rek sarax moom mën nga koo wax fii nag. déedéet ah sëñ bi déedéet nag yow tamit ah, ah. déedéet xanaa sarax bi daa am lu muy àndal. ah déedéet sarax bi kon am na lu ci laa xam nga bu dee ne dama naan la jëndal buy nga joxe ko. nañu waxante ah. dëgg mën naa la wax ne jëndal buy nga joxe ko. Mhm. waaye sarax ba mala la te mala ba lu bëri doole la. Mhm. loola loola loola code la. d'accord donc tey nit mën na génnee sarax. Mhm. mais nam ko war a génnee. ak la la génne ba di àndal Tak ni ma mhm. kan ni ma déggee parce que bu sarax bu mu war a génne rek. mën nga ne noonu génne dugub nga génne nangam jox ko. waaw 30 kilos dugub la. jënd ko nga jox ko. waaye bu ñu sarax ba nan def. soxna sarax dafa am heure bu ñu koy génne. am sarax bi bu jógee kat moo war nangu sarax bi. yow da ngay wuti. bëgg nga boo am. sarax bi buñ ko yëkkatee kan lañ ko war a jox. Mhm. point ya Mhm. comme nit ki faaw mu ne la carte téléphone nga ne ko nii ak nii nga koy defee. nga koy defee waaw mais loolu soxlawul mu naan la mu ngi nii. yow mu woo la téléphone yaa ngi jàkkaarloog sénégalais yi par exemple dama lay wax ne sénégalais ci bëree la ñu toll. Mhm. tey bu ma weeroon saraxu jàmbur. Mhm. nit mën na ko la dëgg léegi ci sarax. te gaa toog di seetaan de. te ñëppay bàyyi xel rawatina Serigne Cissé mi. mais yéen nag seen langue gi dafa doy waa da ngeen di yàq mën naa comprendre. waxal bu wax ji. non man yéen yàqante loolu da ngeen di yàqante di dëppante ay affaire Cissé mën na toog wax dara keneen toog fee yàqu ko. waa xam ne loolu dafa lu wér la. maanaam tey Serigne Cissé dana ne ah suba dee. dana am lu xew. Mhm. am koo xam ne xew boobu ngay wax bëggul mu xew. Mhm. ndax danaan lii bu xewee mhm. moom kotam day yéeg man foog ne ne du ma am waaye am na ñoo xam ne loolu saful leen mhm. wala sëñ si dana mën na am ndam ci lii mën na am ndam ci lii mhm. loolu du leen neex ñoom buñ ko mënul li danañu woote ku ko man ngir mu wax leen sarax bu war a génn ngir fànq yi fi kooku ngir yàqal ko waaw léegi nag bu ko mënul boobu nag mooy affaire bi kon xam nga man tee maa woo Seydou c'est ma woo frère Amadou Ba xam naa xam naa ko <laughs> sama ko fee dama ko gëj a gis nag Yves taxawal defal ndànk <laughs> mhm. comme ni mu ko waxee nii est-ce que loolu tamit taxul ñoom bu ñu déggee mhm. sax ba am njortu ni nit ki mën na def lii mhm. dañ koy sax ragal a woo parce que naxaate ñu leen di def xam nga lu ma la wax man euh, soxna si Serigne wax du force de dëgg la gëmal wooteel mais da ko napp gëmoo non non non pas napp gëmal wooteel gëmu demal toog déedéet mais ku bëgg dara am na loo xam te ne boo ko waxee tamit du nelaw fi tam tamit ah, mais kooku weesu na boobu xam nga kooku fi mu toll mu ngi soixante maara yoo xam ne kenn ku nekk ci turam di ko liggéeyal dëgg la mais est ce wax nañ ko loolu ah. ah moo tax mu war koo ñam nag liggéey na ñamal sëñ bi ñam ma dafa am na ma ñam <laughs> na ko ñam man man man dama wax samay wax moom bu ko wax ji doyee rek na na na wax sama numéro ko doyut man du force mm-hmm. du force da nga ma laaj li mm-hmm. laaj ma xam ko wax ko mm-hmm. li ma xam-xam wax man ay politique yi sama yoon moom dina la moom moom moom bu la déggee dina la woo mais bu la woowee tamit nga génneloo ko gàtt bi mu génne ko mm-hmm. te li nga ko wax amul fii lañ koy leeralaatee ah te moom day leer moom daal fii moom bii plateau mais xam nga uh-huh. xam nga lu may fàttali xam nga lu may fàttali combat Eumeu mm-hmm. Bombardier mm-hmm. man man man man boobu ci laa génn ci yow. Ah te temps boobu xaw ma la. boobu miinante wu ñu musoo ñëw ci émission bi. <laughs> dama loon déglu rek léeg-léeg say waxtaan. Mm-hmm. bi nga toogee. Mm-hmm. ne roi des arènes day dugg Pikine. Mm-hmm. te ki ko fay dugal. Eumeu Sène la. man ma ma ne kii day caaxaan rek soo demee ci gaay la rek. Ah, daa bëgg dóor rek pour gaay yi ay Eumeu Sène woo koog yooyu rek. nag hmm? yow duñu gaaw a jubóo ah. loolu ñëpp a koy wax bàyyi bàyyi yooyu. léegi ba roi ba roi ñëw c'est-à-dire xam nga période boobu. tombe moo waral ay gaaf mën nga wax dara nii xëy mu tombe mhm. mais c'est parce que wax na ko tombe na rek nga bëgg taxaw moo tax eh. mais parfois nga wax dara mhm. yow kese nga wax ko mhm. ñeneen ñi wax leneen comme Irada Balla Gaye ak Gris ñépp taxaw ne Gris ne Gris day daan Balla Gaye Irada génn fële ne leen benn ndam moo ci am te Balla gay ko yóbbu rek ah boobu tam tandaas la. kon yow daal yi gars yi wax tandaas la. <laughs> tandaas la. <laughs> waaw bu bu bu invité bi ñëwee di nga xam ndax tandaas la wala du tandaas. <laughs> kii kan la. borom dëkk ban Amérique wala Sénégal. Hmm? kaay toog ni kaay toog ni dend ak dend ak dend ak sëñ te <laughs> lii de koy napp nii yow da nga jóge Amérique di nappe nii. sol sa Jordan nii ak sa euh, kii di nappe. maa ngi si waat na ngeen def. sant rek yéen looy nappe nii jëlee sa micro bi. sëñ sëñ mi ngi sant looy nappe nii. mais jëlee micro sa micro. daa ma looy nappe kan nga ñëw fii catu kii rek commencé di ko kii. nii laa ah. nga baax. nga jóge Amérique quoi bees nii leer nii. Ah. bàyyi fa ñaareel. Eh, <laughs> loolu da lay bañ ko ko tudd. bàyyi fa ñaareel di di ba nappe nii. Ah? mu ñëw mu gën a ñëw nii. d' accord jugal tuuti rek. jugal jugal tuuti rek. ma ma ma tooga. togal baxna bay len tak suuf eh. tak suuf baaxul. ku eh. da ngay tak ci kaw. kooku nag daa ah, parce que mëno wax sa wax ko ni après sénégalais japp né eh, wax ji dem na ni rek té amul lu leer ba légui d'accord ñu ngi lay nuyu liru jëlee sa micro ñu bay la nga ñëw téléspectateur yi. bu baax a baax Biige. Biige ah. maa lay fay liiru. di nuyu sama sëriñ sama xarit seen sixième mu sëñ Babacar ah. Mhm. koy nuyu baax di ko ziar wéer a wéer Ah, di nuyu fa ma jógee waa Géejawaay yi yëpp mm-hmm. ah bàyyiwuma kenn di nuyu sama waa ji Modou Dieye Sène mm-hmm. ah, grand champion Balla Gaye 2 mm-hmm. ñoom ñëpp waa Géejawaay bàyyiwuma kenn su ma nekkee lim dafay guddi ah waa États-Unis ah, sa xarit sa copain moo njaay directeur l'homme social directeur ah sëñ uh-huh. Madeleine ah uh-huh. di ko ziar bu wér di ko bégee bu baax a baax a baax a baax a baax ah di nuyu ñoom euh, Afia mhm. ñoom Mor Ndiaye waa Canal Grand Sam ñoom ñëpp ah, mhm. ah ak waa consul ah di nuyu ah, ah, kii euh, sama waa ji wa mhm. euh, waa Zesakop ñoom Bo Diop ñoom Racine ah ñoom Rama mëti ah ndeysaan jigéen mun ko animateur bu ah systématique waay c'est ma sœur ah di nuyu ñëpp di nuyu malik Fall malik Fall sama waa ji naar bi ah jigéenu daba xadiloo ah càmmeñu xadiloo ak ak Sarr Rama. Mhm. ah doomu nday Sangara Mbaye maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn ah di nuyu waa États-Unis waa 116 ñëpp. ñëpp ñëpp nga ma jóg ñëpp di ma bëggee maa ngi leen ziar bu wér a wér a wér ku ma tudd sa tur rek. Mhm. maa ngi jégalu bili sama boy bi maa ngi koy ziar bu wér a wér a wér a wér. di nuyu ñëpp léegi moom américain nga moom. Ah, non te yow ni nga miinee ni nga miinee géej waaye noonu nga miinee Amérique léegi. ndax la nga fay def dafa bëri. non xam nga benn affaire moo am bi mhm. baax rek am solo lu waaye di jaay loolu baax. Mm-hmm. wax ci woo. man su ma nee am rek damay mel ku nekk Guédiawaye. Mm-hmm. ñëpp mm-hmm. baax baax gis am na ñuy liggéey di nuyu booy fa nekk 116 ñëpp ñëpp ñëpp paaye ñëpp ah. ñëpp waa kër Baaw maa ngi nuyu ñëpp euh, ña fa nekk ñëpp. Ah, ah. maa ngi ma kenn su ma fi nekkee lim rek damay juum. te ñëpp la ah. dëgg la maa ngi nuyu bi bu baax a ñëpp maa ngi leen di ziar. macha allah kontaan nañu micro bi d'accord waa kontaan nañu bu baax a baax ci sa teewaay tey ci émission bi euh, comme ni ñu ko waxee sànq rek tey daañu waxtaanee réew mi ah daañu waxtaanee xew-xewu jamono xew-xew réew mi daañu waxtaane aussi mbirum takk gi pour mu leer tey. takk suuf bi deuxième femme bi ñuy wax ne da ko takk Amérique. Mhm. tey faw mu leer. Mhm. comme nag tunga ne du teew ñuy nataan te yaa ngi toog. Mhm. ki ko waxoon tamit annoncé ko. ma nga ba Amérique toog di seetaan. na envoyé na message léegi. Ah, <laughs> <laughs> ne ma damaa bëgg mu leer. li may wax. dama bëgg tey Sénégal yépp mu leer. jël micro bi waaw. xam ma doon ganale. Mhm. Mhm. waaye bi affaire bi dawee ba kii. Mhm. gaye la ga yàqu na. te samedi ba ganale ga daa yàqu. dëgg la dafa yàqu. waaw. Mhm. ndax xam nga tey. Mhm. jigéen boo gis rek am na xarit yoo xam ni mooy loo ay saytaane lañu. dëgg la sa jabar dafa am ay saytaan yu ko woo. ñu woo ko. Mhm. ñu envoyé ko vidéo bi. naa ko li may dégg na nii. ma gis mu commencé changé comportement bi. ma ne ko waa lu xew. man xamuma lu xew. ma daal di génn dem. après di ko woo naa ko maa ngi ñëw daa am fu ma nekk de maa ngi ne si ngéntal Babacar Ndiak maa ngi ñëw yooyu di ko xamaraan di ko woo di ko wax yooyu mm-hmm. ma gis comportement mm-hmm. ni mu waxee man mm-hmm. àggalwul sax ñaar benn moo ku mu coupé téléphone ah. te mosul def la ak yow après ñu jekk waaw waaw après ma jekki-jekki affaire bi rumeur bi commencé daw gars yi di ma envoyé vidéo naan non liiru félicitation félicité ma ne ko lu xew ba nga naan ma félicitation ñu ne ma da ngay daan mm-hmm, mm-hmm. man ma affaire bi jëlee ma kaw ah. mm-hmm. bi ma woo booy bi ci ci saase ko dal si kaw après saa yooyu sax laa lu ñu gisee man loolu tamit dama sa waay yow sooy takk jabar waaw man nag sama xarit nga moo tax ma wax la loolu waaw nga ne ma sooy ma non affaire bi métti ma ma kaw man bàyyi fàll laa man su may takk dama naan réel la ba ñëpp yëg ko lan mooy takk suuf jigéen bu nangu takk suuf sa da ngaa ñàkk fulla da ngaa ñàkk fayda lan mooy takk suuf jigéen bu nangu lool amoo fulla amoo fayda amoo kilifa sa diggu jamono war a wane sa bopp waaw xew waaw naan ay takk suuf ci maa bañ jigéen yooyu man waaw su may tak su dama nan réel la bën ñëpp yëg ko maa mhm. la wax nii mhm. voilà ma ngi nuyu sama ben boy ci amerique ablay sar mhm. di nuyu yaama sama jigen ba doomu nday coxo jaay ak ñom papi papi doomu nday khadafi ha ah. ma ngi ko nuyu ñu ah, Omar sar ñom ñepp ma leen nuyu wa amerique kep bayyi ma kenn sha allah señ Cissé euh, yow bi nga déggé nuyu takk jabar lu la def <laughs> ah, mané liru na bu no bopam ba kra <laughs> li du ko def euh? ma togat Lamine xam nga moom lu ci mën a xew dara moo wax. Mm-hmm. Lamine ma yëngal sa waa ji def. ma ne ma takk na amee jabar. ma ne ko lii biñ dawee waxtaan moom yàggut. Uh-huh. ñu ñeme na koo def duñ ko yëg. Uh-huh. Uh-huh. bu ko defee bu ñëwee ñoom ba ko def. à la fin mujj gi rek laa gis nga def benn vidéo. waaw xam ne saay saay fa jaar ngir bëgg a tas këru jàmbur. waaye comme que moom def na xam nga gars yi. Mm-hmm. nanu nanu am na loo xam ne de su ko caaxaanee. Mm-hmm. ndax nit ñi. bu ne yow ki nga nekk rek la amul problème. waaye dafa am ñoo xam ne ñi mën a gàncax nit. dëgg la woo la naan la yow kii noo noo ko mën a toogee di ko muñal mu dem fa def nii mm. nangam nangam ma ne eh, ba ba jaxase sam xel. Mm-hmm. ba boo gisee sa jëkkër mën nga ko rey bàyyi nit ñi di comprendre lu xew nag. man mm-hmm. nga fi indi problème. oui. Mm-hmm. da ngaa takk takk suuf. réew yëpp la nax. waa takk takk suuf. Eh. waa bëgg bële fi sa jabar. maa ngi nuyu kilifa ku tedd gi muy sëñ Cissé mu sëñ Babacar. waaw toogal ni sama xarit. ñaw. yàq nga yëpp bi ngeen di ñibbisi. Ah. takk takk kooku am na fa jabar yow takk nga fa jabar. sëñ Karim. luy leer kay leer na léegi. lu lu wànq di dox noor. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi. Mm-hmm. sant suma ñaari waajur. Mm-hmm. sant sëñ Muntaxa. Mm-hmm. Xaadimu Rasuul. yàlla na ko fi yàlla yàggal wér. sant suñu buntu ci sëñ Touba muy sëñ Modou Habib xalifa Daaru Rahman mm-hmm. sëñ Cheikh Mbacke Daaru Rahman yàlla yàlla yokk leeram taas ci barkeem di nuyu Pape Abdou Fall sama patron sama kilifa. Mhm. tey moom a génne ci bu xayartu. Mhm. sama doomu ndey sama patron américain. Dieye Sène boo ko fi tudd. Pape Fall américain. mu naan ay taw bee tax ñëwul. Eh, mooy patron mooy patron mooy patron mooy euh, patron. waaw la dugal ci yenn yi waaye. Eh, eh, déglu seen eh, dama ko invité fii mu may am ay taw beeg wis wisal yooyu mu ne am ay du ma war a ñëw émission. émission. bu doon bu doon Pape Abdou Fall du nit. barki si toog borom fiara. waaw taalibe seen sa bu xeetu. gis nga ma xamal la benn affaire. am na ñoo xam ne bàyyi mu nuyoo naa bàyyi mu nuyoo. am na ñoo xam ne du ma wax ak ñoom ndax ay saytaane la. ñan la. di nga jàkkaarloog man. yow laay waxal di nga jàkkaarloog man. barki si Fall la di ñu jàkkaarloo barki si Tuubaa Mbàkke. waaw di nga jàkkaarloog man barke sëñ Tuubaa daa jëlati day soox dafa lan jël day soox lu mu jël dafa yow bàyyi di wax ki day bole ak di suus loolu bàyyi ko bàyyi ko chaque jour nga koy wax day bole di suus bàyyi loolu bàyyi loolu tooñ nag baaxul da nga mën a tooñ tooñ baaxul fekke ma fekke lu tax nga naan ko da ngay bole lu tax nga naan ko da ngay na tekki feer yi ah na tekki feer yi am na lu mu laal na tekki feer yi kon fekkil ñu xool ay eh, verre eh, lu lu bu bees la rek. lii bëri lu bu bees la rek. bët yaa ngi weex tàll. lii bëri naa weex. dafa weex tàll. waaw waaw bëgg a day soox. lu ko def. soxla si nga takk da ngay soox parce que Fallu Mbàkke da ngay soox. kon takk bi dëgg la da jóg dox normal. nga def fan tekki tubéy. xaaral ma jóg léegi soox bi lan moo koy indi. xaaral ma jóg. ah diiru nag jógal. waaye doxantu bi waaw waaw ana sama caméra. waaw waaw doxal ñëw. ñëwal rek sa caméra. waaw waaw. Serigne Fallou Mbacké yow. ñaw. billahi boo xamoon li ma la góoxal. sëñ Cissé sëñ Cissé da neutre de. Hmm? yow li ma la góoxal xam nga ko sax. Hmm? sama jour sama jour jibile. Hmm? Ablaye Diop xaas jox ko avance jox ma avance. parce que Serigne Fallou Mbacké doom dina neex ndeyam. kon combat bi taxaw na. liiru da koy nëbbu sëñ Cissé. Ah. ah. jot na avance tey parce que sëñ Tuubaa Mbacké sëñ Cissé kii waxoon naa la kii xaalis ak jigéen amu ci ngor. loolu wax ni yow. <laughs> bokkal nañ ko bokkal ma. kaa bi non liiru kii nii jigéen amu ci ngor. Ah, liiru combat kii dama koo xam wala wala wala taxawul. Euh, sa tur dëgg-dëgg tey dinaa la ko wax tey. ñu xam ko. Mhm. ma xamal na ma may ma nuyoo. waaw d'accord xam nga su ma xamoon ni moom day ñëw. xaar ko mu daan ah? après nga xamoon moom day xam nga kan mooy su ma xam nga kan mooy su ma xam nga bokk ci invité yi. xam nga kan bokk ci invité xam nga kan mooy sama sponsor. Bougazelli bu Guédiawaye. Bouga Sall le la Kunta. mais eh, eh. Kunta. Eh, ah Kunta. c'est pas vrai. waxoo dëgg ñàkk fayda boobu nga de yow nga ñàkk fayda yow. ba ma ko waxatee ma duma la de. li ma wax yëpp. looloo am da ngay sox. da ngeen waxante rek da jugal dox jugal dox boo soxul ma génn sama waat. su ma taxawee di <laughs> waxante moom man damay bëgg ñàkk fulla sax. ah non damay bëgg a ñàkk de kuy volé wu du suus. <laughs> wax moom mais wax boobu dafa ñaaw nga koy wax. tout le temps yow sa yoon nekku ci képpel sa sama yoon fekk la fi képpel sa affaire. sama yoon fukk la saytaane nga. liiru képpel sa yoon nekku ci képpel sa dama la képpel sa affaire sa ma la ci. man ko di volé du suus te waxu la loolu. waaw waxuma ko de. ah, ah. ne dama ne maa ngi maa ngi nuyu bàyyi laat borom iraada maa ngi koy ziar bu du ko nuyu. saa sëñ Abdoulaye Xaar Baye borom Etaar sa waay sa xarit. di nuyu eh, Ablaye di nuyu Ablaye Diop Xaas. Eh, sànq ba léegi mu nuyoo na bàyyi kii mu nuyoo. di nuyu di nuyu Ablaye Diop Xaas tamit. wax dëgg yàlla Serigne Soumboulou di ko jaale. voilà nuyu Ablaye Diop Xaas. ñaan kat li mu def nii tey. Mhm. dafa rafet. waxoo ko sëñ Cissé waxoo ko sëñ Cissé combat bee taxaw. sànq nii léegi dañu am fu ne ko mu woo ma téléphone ñu daal di taxaw. Mhm. mu expliqué ma. Mhm. daal may wax ne ma combat bi dama koy tëkk Abdoulaye Diop xaas. waaw jour boobu nag laay bàyyi bëre laay tëkki sama ngem. ne ma ko mm-hmm. ne ma koy tëkk. Mm-hmm. Mm-hmm. comprendre nga daal may expliqué daal di wax. Ah, ñu wax ba jubóo. mu yëkkati am ne ma téere. Ah, ñëpp. xanaa boobu kon juste avant nga ñëw ci émission waaw mu ma kii bu fekkoon sëñ Cissé dina ko wax sëñ Cissé. ma dog ñëpp. te say xamoon naa sëñ Cissé dañuy rajo fi mu ne ma. xamoon naa moom nga invité. xam naa moom mii la kenn invité wu. mu jékki-jékki ñëw kër la. waaw xaarif xaarif waaw man dama lay wax waaw dama lay wax waaw dama lay expliqué man waxumaa yow. nuyu Pape Dufal sama patron waxumaa yow. maa ngi nuyu Modou Dieye Sène bu baax a baax. Pape Dufal ay patron sama patron sama xarit. gis nga yow affaire saytaane yi nga da nga war a bàyyi. diggante pa Abou Fall ak Dieng xajul ci chaque jour chaque bi. déglu ma rek waaw déglu ma rek. nuyu ma jee kooku mënu ma koo fàtte. kooku mënu ma koo fàtte. Mm-hmm. kooku sama patron waaye dimbali ma saytaane nga saytaane nga dimbali ma. ah man jee sama patron. man jéey sama patron looy liggéey ci jéey. nga ne man fekk nañ fi araab looy liggéey ci jéey. li may liggéey ci jéey xamoo. man fekk nañ fi araab Jii. Eh, hmm. waaw waaw yaa yaa géré lépp lu sécurité foofu. waaw wax wax man. Ah. mais wax ko yow moom du eh, eh. bureau laa yor. saako bi mu <laughs> waaw ginaar yaa koy yanu. waaw maa tey loolu nga fay liggéey waxal dëgg fay liggéey ah, waaw maa tey. booy la fa waaw maa tey. man nag Pape Fall damay teg ci buntu Fiara. waaw day gàddu ko. waaw kon nag bu nuyu nuyu tamit saa benn soo bureau. ma hmm. ubbil la sama bureau nga xool. sa bureau yow sa diggante ak yàlla hmm. yow Biro yow Lirou ah, Diane. sa diggante ak yàlla xamul non bett nga ma nag. ko xamul xamul. bett nga ma nag. ko xamul xamul nag drapeau bi nee nañ drapeau sa rakk la. ka lañ ko tuddee. rakkam ginnaaw buñ ko piis. waaw eh Balla Gaye. waaw ah bon. drapeau Balla Gaye nga war a bëreeg Lirou Diane. mbàkk sëñ Fall mbàkk drapeau bi caaro lay fanaan. Ah, baax na mais Balla Gaye sa xarit la. sama waaw kan ndax moom. Balla Gaye ko yekk Balla Gaye fii la yekk Balla Gaye. ah, ah man bi Sa Thiès daanee. rëg rëg man dem naa kër Balla Balla lu ma a ana Xaadim Njaay sa copain. sama loolu ma njëkk a laaj. gis nga xamal benn seytaane la rek gis nga moom mi. parce que Géejawaay seytaane la ma yàgg gërëm Bougazelli. su ma àq Bougazelli. su ko àq nit ñi su ko àq nit ñi dalee bëri Géejawaay Bougazelli su ko àq nit ñi li ko dal xam na ko. Mm. mu su ko àq mbër yi ak àqu Balla Gaye li la dal di nga yeex a di a wër Balla Gaye ko lu dul jàmm waaw non dama dama ne su la seen àq dalee laa wax li nga leen di wax wax ci ñaaw wax ci ñaaw yow yow lu ne yegg nga ko fi mbëri yow da nga mel ni yow yow ñii say rakk lan say rakk lan say doom rek lamb la woon non non non non non non lamb la woon rek dañ dañ doon déconné pour lamb ji ne ba gars lu mu fi waxul mbëri amul amul waaw dëgg la parce que Serigne Saliou Mbacké dina yekk lu mel ni ko def liñ ko def nag kuñ ko def nag li nga wax tous tam ko deful kii monument la comme yow di nga nekkee monument waay bu ñu ooyee Baboy war nañ ma faa wooye. bu ñu ooyee Baboy. war nañ ma faa wooye loolu rek la ah dañ ko war a woo. yow dimbali ma kii dem na pare nga mais yàlla dëgg la mais joxuñu ko cëram. cër biñ ko waroon ko jox. yow soo da ngay noppi waaye demul pale laaj ko. Hmm. mais joxuñu ko cëram. non bu lox loolu Yves bu lox ah. loolu. kii nee naa ko. Hmm. Euh, ku tukki ñu reer sa ginnaaw maa fi newu woon hmm. li mu doon yàq gars yi maa fi newu hmm. waaw léegi comme ci wax musiba wala moo ko dara man maa koy tontu man maa koy attaqué hmm. fii la jàpp Balla Gaye yaa ne Bada Deme Bada la xoolal bi wallaahi wa taalaahi cër bi mu ko jox respect bi mu ko jox di wax ci moom billaahi wallaahi da ko waxal lu baax fu mu toll mm-hmm. Mm-hmm. su jógee di yàq dara boobu bu ñaaw mm-hmm. di jéem ah lan laa ko maa ngi dégg benn jour maa ngi dégg mu naan borom verre yi di kii ak borom para yi moom rek takk ah, moom rek <laughs> takk foon ay verre takk foon ay verre waroon naa du loolu uh-huh. Sa Thiès. dafa at Balla Gaye dañu àndee pare ba ñu dajee pare bu ñu gisee dana Sa Thiès ba lan la wax Balla Gaye moom moo ko wax de. yëkkati nga jox ko. mais lu baax mais lu baax. waaw yaa ngi ni am combat. fan yii passé maa ngi dégg jox la woon jox la woon jox ko seen Cissé damaa dajeeg benn mbër. yaa ngi ni am combat joxoo ko seen Cissé. damaa dajeeg benn mbër ci autoroute bi. bu demoo xool. ma nga ñàkk tooy xippu hmm. kilim ba hmm. sax baaxul hmm. waxi ñàkk fayda bëri say rek la ku nekk defal na la tranga taxaw nga fii xas nga Balla Gaye ndax amat seen xas nga billaahi wallahi taala xas nga Balla Gaye ndax amat seen ne ba amat seen ku muy bëri yàlla ko yàlla may na ndax damaa daje moom ci autour mu yëkkati fukki junni may ma ah. tey ma ngay xasaat amat seen billaahi ah. wallahi ma ngay xas amat seen musuma dajeeg amat seen ah. mu yëkkati fukki junni may ma yaa ko wax moo ko wax moo ko wax ba pare taxaw di ko xas ah keroog bi Amat euh, euh, Sène xaw ma kan la doon bëree ba ma jiyee. bi mu daal Pape Sarr indi lu ko drapeau bi. Hmm. waaw. ah waaw keroog ñoo toog si kaw tribune rek taxaw mu daal di wàcc naa day koosu Eumeu Sène kon nag tey lañu koy xasee taxaw naa eh. fii taxaw naa fii man mu di ma ñaawal am hmm. na jabaru booy ñaabi hmm. ak mën a togg ceeb hmm. Eh, di ma ñaawal tey ma ngay xas booy ñaaw astafurlah ah astafurlah Serigne Saliou Mbacke da ngaa ñàkk fayda amoo fulla amoo fayda man faalewuma la combat bi lijjantiwuma la toppatoowuma la su ma la dóoru nga dee ah. su ma la dóoru nga seetu guy ah? lu waa Njaay raxasoo ma naan d'accord jërëjëf kontaan nañu sëñ Cissé. waaw damay nuyu sëñ Cissé ba pare. d' accord waaw. dafa mhm. dalal. Mhm. dégg nga mi ngi may jaxase ak sëñ Cissé. Mhm. ah yow taxaw fii xas ko. taxaw nga nit. woo nga nit taxaw. wax sëñ lu ne. dafa naan tudd keneen. man xam naa Lamine laa xaw ma bu fi ah. woo nga daal nit. xas sëñ Cissé xas la ba nga ràpp lu nekk wax la ko. <laughs> te yow kii yàgg naa la defal tranga. feebar nga fi. ndoxum si sonal la lool. nga jaaxle lool amoo foo jëm. nga am problème nga fa ko xaaju guddi seram yaram war naa daw yow amoo rusukaay yow ah. barki serigne Bamba Mbàkke amoo rusukaay legi nak yak nga jom lol yak ful la waaw xaadim waaw di jëy hmm? waxtaan wax deug ci la mm-hmm. man sama wala may tan da nga ne mo fo dajek man dimu ma duma Pa Abdou Fall loolu wax hmm? waaw foo man dimu ma duma ah, na neex xam nga léegi lu tax na neex xam nga lu tax duma waaye dimbali ma waaye yow loolu dara am nañ bés somman nga am nañ bés somman nga lépp ca bés balay lende xol de xoola mm-hmm. la fi ba nga da nga dam mm-hmm. yow rek ya waxo deug combat waxoo dëgg. combat guy gi waxoo dëgg. combat guy gi ak kii ma la ah, ma man nit. Uh-huh. seytaane damaa bëgg nit bu am personnalité. Mm. personnalité. Mm-hmm. damaa bëgg nit ku ko am. Mm-hmm. ndax dafa baax ci doomu aadama. Mm-hmm. yow man kii. dañoo bokk am na yoo xamee ni waru ko. ndax non non wax ju ñaaw baaxul. war sa téye mbëri bu nekk wala ko wax mhm. naan mbëri dañoo mhm. ëmër yi dañoo ëmër yi mhm. suñu toog dañuy wengalu loolu war na ko rus a wax war na jomba wax loolu ndax ku ci nekk am na fu mu jaar ak mbëri yi man xam naa ko ci koom du dara dóorkat la hmm? dóorkat bu mag a mag a mag a mag a mag a mag la mais lii nag yaa ngi ci forme de yaa ngi ñàkk rek mais ci forme de yow kii melanu ba ñu ñëw diw mag la da ngaa parce que Serigne Fallou Mbacké billaahi wallaahi wa taalaahi diw man tàngaay lu may dox di diw. dama ne mais en tout cas yaa ngi ñàkk de. tàngaay lan laay dox di meleem. di jëy d' accord léegi sëñ Cissé. di jëy euh, sa ñaari gaañ yi. tey nag sëñ Cissé am nga problème nag. bu mag problème bu mag nga mag a mag a mag nga am tey. parce que drapeau bii. DJ ak combat bi waaw. du mm. di nuyu sama rakk yi champion yi nekk Guédiawaye yëpp ñoom guy gi di leen ñaanal. Mm. yàlla may leen eh, combat di nuyu guy maa ngi jël nuyu. Ah, di nuyu ah, ah, di ko ci loxo saaku yi. mais mm, sama rakk yi di ko ñaanal yàlla may ko combat. moom it da woon am combat nee na ko jël da nga koo ragal. ñaaw ku ko jëlul da nga koo ragal. mbër la nag baas ndaanaan la ku la facilité. guy gi champion la ndaanaan la dafa war a am combat. war naa am combat comprendre nga. am na combat yàlla na ko yàlla may ndam. amiin Lac de Guiers rek comme Lac de Guiers suma rakk la. combat bi mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam. amiin Siteu yàlla na ko yàlla may ndam. d'accord su la neexee. Lac de Guiers yàlla na ko yàlla may ndam. Siteu yàlla na ko yàlla may ndam lu seddu bi sama doom la sama xarit. waaw man la d'accord léegi léegi ñu bàyyi mu eggali mu eggali nuyoo bi waaw. Ah. gis nga li muy wax ne affaire seytaane la bëgg a wax dinañ ci ah, ñëw may ma tuuti ba ñëw. mais moom Siteu Siteu diggante yëmbal ak caaro yi. d'accord waxuma la loolu. jàmm gën benn la. doomam xam nga xam nga yàlla leen yàlla nee na ma. benn jour dafa taxaw. mbaytin dafa war a bëri dimanche bi ñëw yàlla ko yàlla may ndam. mbaytin ak mbaytin junior ñoom ñaar ñëpp dañoo war a bëri dimanche dimanche bi di na yàlla may ndam. xale bu yaru tëkku bu maasu am na dem bi muy bëree xamul jëm ne na ko yàlla may ndam. am naa ma tey kon man tamit am ah, ma neexee la ah, dëgg am naa ci la droit fii laa hmm. ma ne ko ma ñaan dogu ne di ne ma hmm. mu am combat koor jot mu jox ma suukar. macha allah ne ma nag na yem ci suñu biir. dama ko mm. def rek ci yàlla tax. ma génn wax ko. Mm-hmm. mu yëg ko amul lu ci yàqul la déggee non la bërki démb sëñ Cissé ngi nii la déggee këram la déggee dugg ci mm-hmm. kii la jox ci mm-hmm. waaye waaye am la ma seq ak moom la ma seq ak sëñ bu ne defal nañu ko ma ak moom waaw jubóo lañu sama goro la yow saytaane nga affaire saytaane ah, nga dégg ma sëñ Ibrahima Kounta ah, sama papa la ah borom social sëñ Ibrahima sama papa la surtout yonent bi la di ko ñaanal yàlla ko dëgg kii nag moom day góor Bougazelli moom nga doomu géej way la man géej maa ngi doon mësoo koo tudd. waaw di nuyuwaale Lat Diop. Mm. waaw ay Lat Diop moom ñëpp a koy gërëm. Mm. a ji muy def ñëpp la koy defal yemalu ko géej waay. DG man mm. ma ñor ndax man amulul géej waay. waaw ah, di gërëm sama waa koy nuyu bu Baye Birane Diop. di nuyu capitaine ñoom Papa ñoom ñëpp maa ngi lay nuyu. ñoom Diaw nuyu Malick Gakko bu baax a a baax ak Ahmed Aidara ndax man amulul géej waay géej waay laay tiitaroo. ku jàppale géej ma jàppale la. d'accord léegi sëñ Cissé mm-hmm. euh, tey xam naa ne problème bi du neex a régler tey ci plateau bi mm-hmm. lii xam naa ne feneen lañ koy réglé. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. boo xoolee tey sa ñaari xarit yi toog. ba pare ñu am combat. kan sama xarit kii bëgguma man la bañ dama laa bañ. waaw da nga maa bañ loolu. yow rek laa bañ yow rek laa bañ man bëgguma man bëgguma la man bëgguma ma man bëgguma la. waaw léegi waaw léegi man bëgguma man tam bëgguma la. waaw léegi yow su ma la gisee comme mi ngi mel ni doo woon muuma këriñ. <laughs> noonu laa la bañee comme nga mel ni muuma këriñ. ah yow loolu métti na yow te dinaa la woon ni bañ naa la yow turki cap. léegi sëñ Cissé. wala jàppee nga xam lépp dëgg la. léegi sëñ Cissé la benn affaire sànq léegi léegi da doon wax ci benn affaire. Mm-hmm. barki sëñ yaa la de guerre kenn gënu maa réew. Mm-hmm. kenn gënu maa réew. damaa réew ay kilifa ñu seetaan nag damaa réew ba dof. Mm-hmm. lu ma waay wax mun naa la tontu tontu forox yu xeeñ. Ameth Deme moom muy wax génn. kooku du sa morom bàyyil jàmbur kooku du sa morom bàyyil jàmbur sama rek bàyyil jàmm bàyyil jàmm waaw barki Serigne Fallou Mbacké am nga dem bi sa morom bàyyil jàmm kooku vainqueur la guy gi daf maa woo kooku gladiateur la kooku bàyyil jàmm nga te sunu mag nga soo la soo nu ñaanee ñun suñu nekkati na nga ñaan dañuy bàyyi mhm. kon nag soo ñaanee rek mhm. da ngay bàyyi mhm. woo naa ko wax naa moom ma ne ko man tax man lan laa wax am naa droit ne jam céer yàlla ko yàlla may na su ma neexee maa tey su ma neexee waaye wax yi mu wax nii yëpp maa ko gën a réew téeméer yoon. gënoo ko réew wala ku doole moo la mën. bàyyi jàmbur kenn dàqu ma ko. na bàyyi jàmbur kooku doomu jàmbur. d'accord léegi li ma la si mën a gis ñu nag guy gi. taalibe Cheikh la kenn xam ne. léegi léegi léegi dinañ ci ñëwaat léegi sëñ Cissé maa ngi nuyu Baye Mandione ko ñaanal yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëf. sëñ Cissé ay ca maa daal man. léegi ñëw caare mënoo ñëw jaxase léegi ñu bàyyi caare suñu caare la mënoo ñëw jaxase. doo ko dégg wax mu wax wax bu ñaaw. doo léegi léegi liiru ñu sëñ Cissé ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay bàyyi nga régler problème bi parce que yow rek yaa mun régler seen problème aj sëñ Cissé saytaane bi sa bakkanam nag bi nga yor hmm. jaay <coughs> dugg nga ni dugg barke sëñ Tuubaa bu ma la dóoru nga dégg ci làmb ci barke sëñ Tuubaa waa Caaru Géej gën nañoo tuddee Jean Ndiaye d'accord sëñ Cissé ay ja yow sëñ Cissé yow sëñ Cissé tur bi sax mérito léegi nooy réglé problème bii man sa tur bi sax mérito sa tur bi yow mérito sëñ Cissé moom ni mu mel hmm. yàllaa ko ko melloo dafa baax torop yaatu tabe hmm. barke de moo njaay gerte woo ko nit di ko xas. Hmm. ba ba billaahi wallaahi wa taalaahi <laughs> fekkee li may wax amul yàlla bu ma àgg sama kër. waaw léegi d' accord léegi. voilà kooku waay léegi sëñ Cissé waaw yow ñii ñëpp say xarit lañu. dëgg la. nga yàgg séq ñoom teraanga bu ne. Hmm. tey combat moom signé nañ ko fii maanaam instant bi face to face bu njëkk bi lii la. Hmm. pour ñu xam ne ñii am nañu combat ñoom ñaar. dinañ ñëw après date bi ak ak kam mo tëgg combat bi yépp ngay jubilé d'accord dinañ ci ñëw señ Cissé ay hmm ah jërëjëf DJ kontaan nañu bu baax liru bi mbay ko Amérique ba légui defina hmm ñoo ngi nii soog a ba ci plateau bi lañu dajé hmm suma nit la suma xarit la suma wolléré la liru jaan man dama wax barki dembu ci ben waxtaan ne man nit lu mën a mel ci àdduna mm-hmm. na xol ba rafet rek mm-hmm. leneen la ca def Serigne Cissé du ko dee lijjanti mm-hmm. muy nit koo xam ne nag bi muy jël turu Serigne Cissé di ko wax ci àdduna ku ne ngi naan kenn mooy Serigne Cissé moom la présenté mu jàpp ci rek nekk Serigne Cissé guddi Serigne Cissé bëccëg loolu ma seedeel ko àdduna yëpp wax naa ko fépp ndax man sama Serigne Serigne Baba Kër si nee na asgor du jàpp di bàyyi dëgg la du tiit ba fen asgor du tiit ba sàcc ñett yi nag dafa bokk ne mel ni sëñ Babacar Sy waaye lii baxe nañu ko ci nañ koy jéem muy sama xarit di sama wóllëre di nit ku baax sëñ xaarim it kasaalika naka noonu laa jaxasoo moom muy sama nit di sama xarit ndax fekki naa ko ba caaro yi gis naa njabootam fa tabaarakallaahu ak waa ak waa caaro yëpp waaye ñoom ñaar dañ di nit ñoo xam ne lii ñuy def moo leen di may xaalis kon Euh, fa tabarakalaa mbégte rek laa ci am mhm. Mhm. te xam naa ne lii ñuy wax duhul lu ñu gëm ci seen xol yi dañuy mhm. soo rek ngir neexal mbir yi waaye duhul lu ñu gëm ci seen xol ndax man waxtaan naa ak ñoom ci biir waxtaan ak ñoom ci biti lii ñii seetaan rek dañ bëgg a seddal seeni i xol ndax suñ xaadim lii muy def euh, di ci seddal xol yi ñi si lay jël euh, di ci yóbbul njabootam ñuy dund liiru mi it kasaalika ay xarit lañu waaw jël micro bi sooy dem looy yóbbul sa njaboot. Mhm. nay wax ja de rafet. kàddu yaay nay rafet nay rafet. sëñ Cissé te bàyyi wax ju ñaaw fu mu xas tey. waaw gis nga Pape Mayel na Pape doom taxaw na fi xas na Pape sa diggante ak yow barki Serigne Saliou. mais tey laaj Diouf ñëw taxaw na ko fi. waxoo de xas na ko fi. yow mënoo bàyyi. yow koo laaj joxu la. bugaal jëli bugaal jëli mii nga xam ne moo njëkk jàppale mbëri caar géej waay waaw ak Malick Gakou ku ne xam ne ni Malick li mu def. dëgg la Malick la. ñooñu musu leen xale. ñooñu ay gor lañ. ay garmi lañ. yow yow xam nga loo nekk Guédiawaye. booy bu bëri daan nga dem mu jox la dara man dama laaj booy caaro yi maa tey dama leen dolli waaw am solo li am solo dama lay ñaan rek li am solo sama contrat ak yow su fekkee dóoru mën a nga tëdd sëñ Cissé yow na nga ci su fekkee dóoru mën a nga tëdd lu waa Njaay raxasoo ma barke Sëriñ Bamba Mbàkke waxoo bi ma lay intal yow d'accord ñu bàyyi ñu bàyyi sëñ Cissé egg ci seen combat bi sëñ Cissé jox naa ko cër sëñ Cissé eggal dinañ ñëw ci seen combat bi yaay saytaan bi yàkk fi naan dafa am benn mbër VIP nekk ci kaa ah, ah. nekk ci 4 bi oto bi ah. kilim ba ma nga ñàkk tooy xëpp mu xool ma ma xool ko ma ne ko xulli ñàkk <laughs> fayda ba bëgg a sa moroomu doom yi ngay nekk fii di sa moroomu mu yi sa moroomu jarbaat yi sa moroom rakk yi léegi liiru ci nekk seqal na trànga ñu bàyyi yëpp yi jàmm lan la yéene waaye yow baaxoo guddi baaxoo bëccëg sëñ eh, eh, hmm? Cissé waali Seck léegi léegi Wally Seck hmm? sama doom sama xarit Wally euh, Seck Wally Seck ñëpp la Wally Seck jaaga yàlla bu ñu seetal dara ci sa ginnaaw di gërëm Ndiago Woro uh-huh. capitaine xam nga d' accord ñoom ñëpp maa ngi leen di woo. moo gën ñoom ñëpp maa ngi leen di woo. d' accord fii waale fi ne. dinañu après rek ci woote bi nga ne. nga ne nga ne Seck Waly Seck rek lay topp. waaw Waly Seck fi ne. d' accord def leen ni ko yàlla def mu mm-hmm. noppal leen. su ngeen ko deful ni ko yàlla def mu sonal leen Waly Seck. waa léegi bëgg sëñ si sa eggale. may ma tuuti kenn mënu maa waaw barki démb fan la fan nga nekkoon. Waly Seck fan nga nekkoon. Baye Fall man Waly rek laay topp topp ma keneen. Ahmadou Bamba billahi kooku moom nga wax ko. Waly Seck nga ñàkk ko bañ a wax. boo ko tuddee day dem boo ko tuddul day dem. Mm-hmm. waaw ku yabu ne ko jàkk. bañ koo bañ koo piis. waaw waay moom ñëpp laa set ak gaal jàmm man aw ma fenn saas ngeen di. Waly laay topp Waly li may waxee Waly day lay waxee Pape Diouf. mais am naa ci droit topp ma kenn Waly laay topp Waly ngay topp man aw ma fenn saas moo gën. nit ku baax la. Ah, sa nit la ah. Malick Fall boobu fi ñëwoon kii nu mu tëdd. nuyu itam Malick Fall kooku doon wax ci moom Malick Fall Malick Fall. ah kii Girif Girif maa ngi koy nuyu. Girif maa ngi lay woo sama combat bi. ay moo gëj ak yooyu yëpp Girif a fi nekk. waaw fii Girif la ñu wax mais ku nekk am nga sa nit loolu moom man d'accord Girif la ñu wax Girif la ñu wax Girif sugu moom la ñu wax. Girif sugu moomu waaye comme moo gën pourtant man Girif sama xarit la Girif sama xarit la man. sa non Girif moom sa waay la. voilà yoo xamante ne Girif moom sa waay la. lu tax gërëmu ko lu tax gërëmu ko muy gërëm. saytaane la d'accord léegi léegi sëñ Cissé. ñu bàyyi la nga eggali ah, ah, dina ñëw ci seen combat bi yéen ñaar tamit daam seen. waaw ah. ndax ñoom ñaar fan yii damaa déggoon seen coow. te ñoom daam doon kaf daam doon kaf rek daam doon foo rek foo ba ëpp. waaw après waxtaan naa ku ci ne waxtaan naa ak yow. voilà am na. ay sëñ Cissé sëñ Cissé. sëñ Cissé yow déjà noo gisee noo gisee combat combat bii nii sax doon yàlla yàlla bu gërëm di gërëm di gërëm di gërëm gisuma la ca man de gisuma la sama maa nga foofu man de gisuma ku jàppoon ku jàppoon TFM gis nga xarit Cheikh Ahmadou Bamba ku jàppoon Sen TV gis nga xarit wallahi taala maa ngi foon ku jàpp yàlla ko yàlla xaara àjjana bàyyi sa fen yi man fen yi mu ngi foon foofu dafa bëri woon daa bëri woon nit man man waaw waaw léegi nañ bàyyi sëñ Cissé def léegi sëñ Cissé dina ko réglé léegi sëñ Cissé sëñ Cissé xanaa seen si téye sama loxo. mais sa kanam gi. Hmm. bu ci sama loxo daal yàlla ma gis. waaw bu tay du tay d'accord léegi sëñ Cissé. dinañ ci ñëwaat sëñ Cissé. maa ngi nuyu sama rakk ji grand champion. Balla Gaye de naanaa ku fan. sëñ Cissé yéen a ñëpp ah, jàpp yéenewul kenn lu bon. léegi rek rek rek kenn yéenewul kenn. ah déet yow mi na baaxoo guddi eh, baaxoo bëccëg. Eh, saa kees sama rakk ji yàlla ko yàlla dafa jàpp. léegi léegi mi ñaanal mar la combat. waaw dégg nga sëñ Cissé xanaa sëñ Cissé du seen sëriñ na. xanaa sëñ Cissé du seen sëriñ. doy na waat. dinaa wax ok su émission am la moom surprise lañ defal tey. non non ay affaire surprise. Hmm? accord sëñ Cissé. ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay li nga doon wax. ci diggante xaadim ak liiru jaan. waaw fi mu ma jëw. ah bon dem ba états ci ñëwaat waaw. fi liiru daanele rek laay jël. Hmm. ndax yéen ku leen tudd tudd ma ku leen tudd ci àdduna tudd ma mhm. ndax du ma xëy suba ba ngoon jot mhm. te nit woowul ma ci seen diggante yéen ñaar na ma sëriñ si seen ni ngay taxawee ci diggante liiwu ak xaadim mhm. yow xam nga man xam naa yàlla xam na léegoo-léeg ma am lu ma gis mu traversé ci internet bi ma yëkkati sama téléphone woo la nu waxtaan te yàlla rek tax te buñ waxtaanee mu nekk ni koo xam ne neex na digal ndax dama koy wax na ko sëñ xaadim mu ne naa ma ne ko boromu nga ndax ni ni la yalla def tur wi la yalla njëkk jox rek mo njëkk mag màgg sa njaboot it fi mu toll ta nanu te waaw ci ci ni ñuy man ak mom mu nangul mako ndax sëñ khadim mënoon na wax ni sëñ Cissé mi de rak la ci man kon duma ko deglu dëgg la ñu waxtaan ak mom ci façon yo xamne dara jaru Mm-hmm. yéen ñaar nag man ngeen di soo mm-hmm. waxtaan li ngeen bëgg a waxtaanee lépp mm-hmm. waaye bañ a dépassé ndax dafa ci am kilifa yu toog yoo xam ne sëñ Xaadim da leen di béggal liiru mi it kasaalika naka noonu man mi toog seen wetit kasaalika bu ma xasee ne damay dem ci télé toog mboolem waa Tiwaawan ak Tuubaa ngi jàpp télé bi di seetaan kon bu ko defee loolu il faut ñu koy bàyyi xel bu ñu demee nag ba dem ci wàllu signateur ngeen daje yéen ñaar fa ngeen ne. si yi leen def lu leen neex. ndax loolu mooy ngeen di dundalee seeni i waajur. waaye image yii image du dafa fort. maanaam kaddu. bu génnee dafa am lu muy doon ndax man sëñ xarit sama xarit nga. te xam naa fi ma teg. xam naa ni nga ma fonke xam naa ni nga ma bëggee. sëñ bi kii su <laughs> ah, man de fekkaay bi xaw ma ku ku am fit sax déglu. ngeen su la ah, jëw. de baaxul. jëw na la jëw moom baaxul moom. jëw na ko de dégg ah. yooyu rek bu ko defee ñu bàyyi wante ci xel. ndax sëñ Xaadim. bi may jox liiru mii xar mu nekk Amérique. Mm-hmm. dafa ànd ak Lamine ñëw sama kër. Mm-hmm. ma liiru sëñ xaari ma ngi toog la bi na nga toog ma ne ko ren laa koy dàq joxal ndax nekkut fi ndax bu melee ni daf fee nekkut ma jox ko kon day mel ni man image sama tax ma koy jox dëgg la dëgg la ndax liiru jëf na ci sama si man ci loo toll ni mhm. ma tabax sax ba mu yegg na ko liiru caabi jàngoo ma wax ko sëñ xaarim sëñ xaarim na ma mhm. liiru nekku fi waaye xarab maa ko koy maa koy nangu. macha allah waaw su ko kon lan la ma xewoon dama rek moo ne témoignage mu wax ci yow rek laay <laughs> ci li ma feebar moom dalay tooñ rek. <laughs> wax uh-huh. ah, mu wax Lamine a ngi toog. Mm-hmm. mu wax ko booba guddi na ay deux heures trois mm-hmm. mu wax ko. Mm-hmm. suur boobu bi mu paree. baa ngay xam ne sëñ xaal mii sofe nañ moog Lamine koo xam ne bu dootoon ak ñoom ñooy tey ji wàcc na liggéey. agresseur Hmm? ben agresseur genn fi ci almari bi di genn ben jigen di dox hmm. ñu koj ko hmm. ki rek ginaaw yalla mo ak Lamine ñoo mujj wacc seen taxi wut ay yet ndaw soosu fa tabarakalaaw ci yoy la motax yeen ñaar ay monument ngeen kaddu yi li liru wax na xajna adversaire nga xajna liru seigne khadim xajna lim la wax adversaire nga way wax na deug manam kaddu yi dema ci ba xel man mi yow sama xarit nga tey rek laa ko wax sax. dama ngay fen te dama koy regretté. waaw regretté ko. ay kilifa yu ñu seetaan. waaw bu dul dara moom dama ko jox cër. ndax yow boo seetee defal naa ko lu wax ma rek la wax xam lu wax diga tukkee dana ma neexu ba neex waaye liiru war na ñib si ndax kenn déggatul ma waaw a tool moo tax bi nga yegsee rek mu la xeer wax ci sa jëbi la kon moom namoon na la mhm. ndax tukki gi nga tukki yàgg nga mhm. moom gënalul ko mhm. ñëw gi nga ñëw baax na ci ndax fi mu toll bu ne Abdou Fall nga ne jéey seen yooyu yooyu neex moom dafa war a sant da nga war di jox àllarba fi moo war a jox àllarba signé ngeen ndax xamal da nga war maa jox àllarba comme que signé waaw teg leen dara ci table bi ah <laughs> waaw moom war na am moom combat bi nag dëgg yàlla Abdoulaye Diop Khass mosol na ko mosol ah. yow ñu ko joxe moom ko joxe xaas léegi ah. yóbbul. laajal xam nga combat bi nag dama ciy a lancé ah, mm-hmm. affaire. Mm-hmm. ci sama doom. d' accord léegi balaa balaa ñuy lancé appel yi après di ngeen am temps. Ah. lancé appel yëpp. Mm-hmm. mais bëggoon naa xam combat bi naka la taxawee. sëñ Cissé aussi dina ci ñëw. moog rakkam. waaw. moog rakkam. di naan bu leen ko piis dee leen ko. waaw waxal champion Balla Gaye 2 waxal Balla Gaye rek moo gën sama si waxal Balla Gaye 2. moo gën wax ju bari. waaw di Guédiawaye muy Balla Gaye 2. voilà soo soxla loolu nga ah nee na woo yaay dañoo complot seen complot. complot complot. ah loolu laa ko jàpp yow gars yi dina dimbali. Abdoulaye Diop Khass moo tëgg combat bi Abdoulaye Diop moo ko moo ko tëgg. Abdoulaye Diop Khass. moom Balla Gaye wala moom sama jour jubilé man. sa jour jubilé. waaw ok léegi nag. drapeau bi Ablaye Diop da koo jël tuddee ko Omar. Balla Gaye. waxal Balla Gaye 2. da ngay bul soxor bul soxor waxal Balla Gaye 2. da ngeen ko jël yóbbu ngeen ma ci yóbbu ngeen ma ci sëriñ. man xam naa ci ah, loolu waaye yow. waaye yaa tali loolu waaye. Hmm? xam nga li ma la wax yow. Hmm? yow yaa tal loolu xam nga li ma dañ ciy dañ ciy remercier Ablaye Diop xaas. Hmm. waaw waaw. dañ ko ciy remercier di ko ci ñaanal. ndax fay na ko lu ko jar fay na lu ko jar. xam nga lu baax la ko fay fay ma. waaw loolu moom jarul wax xaas moom wax dëgg yàlla moom loolu mu def sa si bopp mu def naa. maa ngi nii jot naa avance tey mais du ko def. Ah. kan ci kii day wor waaw même pareegul pareegul dina ko wax man kii. xam nga la laa seq. combat bi nag yoonam newu ci. kan ñaari nit ñëw yow nga taxaw di ko jëw. sa diggante jàmm barki Serigne Fallou Mbacke jëngu sëñ Cheikh loo ko waxul amul. eh junj na non taxawal taxawal junj na ah. nee na yow combat bi sa yoon nekk c'est-à-dire bul dem nga koy nga koy sot pour kii daan ko loolu la wax. Mhm. moom nee na sëñ Cissé combat bi yoonam nekku si ça veut na taxaw ñaari nitam ñooy bëre. ci digg bi ça veut dire bu mu ko sot gis nga kii kii jëw sëñ Cissé. waa moom mu jëkk a jëw. man lan laa jëwee. xool leen ko ci TikTok <laughs> dañoo toog Amérique nii place Mobal. Uh-huh. ñu toog nii Père Zora xam nga rek moom. Hmm. day fas day fo. man maa ne da ngaa waga man maa ko wax. Oh. man mii maa ko mm-hmm. da ngaa waga. persona mm-hmm. lan la wax. kan daa ree ah, yéen ñaar la doon wax non non man maa wax. persona eh. ah. man maa ne man maa ne ko dafa waga. yow a toog ci. Ah, ndax boobu ma métti li mu doon wax mbëri dañoo ëmëri. Mm-hmm. moo tax loolu ma métti may la dafa da fayul mbëri. ndax li mu wax mbëri. te ku ci nekk am na fu mu jaar ak yow. te ñëpp jàmmale ko yéen ay doom la ñii ay. ma yéene leen jàmm ma yéene leen jàmm waaye. Euh, noo gisee. man damay dellu si damay damay en arrière. fi may en mhm. arrière mooy. Mhm. comme que dañu nekk ci actualité am lu xew. Mhm. tout récemment te loolu noonu bi ko liiru di wax sa fait deux ans. que muy wax ni moom mi day participer si immigration clandestine bi xale yi di dem. ci gaal yi léegi nag waaw may ma waxul dëgg sóoru gaal la woon. waxul dëgg sóoru gaal la woon. su ma mayulee du mun tontu. d'accord ayca mën naa wax papa waaw léegi mu wax ni moom dafay coxeur gaa la au fait léegi nag ñu toll fi nga xamante ne nii xale yu bari suux nañ ci dox pour ñu lancer message est-ce ko continuer nekk ba léegi wala hmm. nit koo xamante ne bëgg na non taxawal nit koo xamante ne bëgg na <laughs> yow soo nee li nga xam ne coxeur gaa la mais je demande damay euh, laajte question la damay laajte maanaam ndax ndax ndax ndax ndax loolu da koy dëggal. waa dama da koy dëggal ndax day dëggal loolu. en plus dama ciy dolli est ce que mhm. koo xamante ne nii bëgg nga yow sa développement réew. loolu mhm. noonu di nga ci participer. Mhm. parce que liiru nee na moom ko soolu gaar la te li xew nii nii donc foog mu taxaw defal ñu ci. ay leeral tuuti ñu comprendre. dèjà xaadim xaadim loolu amul. Bigué waaw waaw Serigne Fallou Mbacké. li sama rakk yi jël gaal bi man la gën a ndax wax dëgg yàlla bu ñaanee xale yi nii léegi demee ci géej mhm. di ci gaañu te man may mool mhm. xam li ci géej dëkk ak ay mool ay capitaine ñoom Sambay Diop ñoom Njaw mhm. ñoom Baay Jawur ñoom Papa Ndoy ñoom Puy Mbaaw dëkk ak ay grande mool soo ñëwee sama buntu kër léegi di nga fa gis kër Sambay ña ngay yeew mbaal ñoom Baay Dooy kon nga xam ni tey bu fekkoon ne dañoo jàppale bi mool yi bañ a jaay géej bañ ko jaay bato yi billaahi bu géej gi doxul xale yi duñ def di bëkki gaal moom nag ci xalaatam mu ñaaw mhm. ak waxam ju ñaaw mhm. ndax loolu ku a xam na ko mhm. génn fii ci senegal gépp na xarit yaay ko sóoru gaal la day yóbbuwaat te yoon mu ngi enquête de yàlla dina ma àtte yow tay billah buma brigade recherche woon billah li nga def ndax dañu wax kan laa mës a encaissé pour yobou ko man loolu ma ko jotté xex ma jëk taxaw da waron da waron farce wala da waron farce bu doy waar la vraiment dafa doy waar liir waa da waron farce wala ñu ñaanal suñu rak yi suñu jarbaade yi ñaanal ci gaañ Sall da di génn xaare àjjana yalla na yalla xaare àjjana vraiment kër yaro ak soo gisee yi dem ndeysaan bu a tral seen wajur rek bu a tek rek nek na amerique gis boy di ñëw Nicaragua xanaa yoon Nicaragua yoon bu baax la mhm. problème de. yoon bu baax la. amul problème boo yaa ngi ñëw te vraiment ku mën a dem ne ah, demal. Mm-hmm. ah bon te bul waaw. ku mën a dem demal waaye bul dem jaar da ngay jaar ay. gaal da ngay jaar ci gaal bi waaw. waaw ah, parce que Nicaragua avion ngay jël wàcc après kii. immigration baax américain yi ñoo ubbi bunt bi sax. Mm-hmm. ñoo ubbi bunt ba pare américain yi dañoo nekk ku baax. Mm-hmm. dëgg la gis nga ma xamal la soo doogu ñëw. ñoo la jox fi nga dëkk. billaahi ba pare dina jox lekk la jox lekk ak yëpp Mm-hmm. wóor na yàlla billaahi. ba ba ngay am ku la jël si. voilà mais message bi nga bi mooy. mu a bu ñu jaar ci gaal yi. non non digalu ma kenn jaar ci gaal. Mm-hmm. waaye ku mën a dem Amérique. Mm-hmm. demal nga jaar yoon lu ko. ngi départ gi jooy foofu. waaw d'accord ku mën a dem. demal d'accord ndax tubaarikàlla macha allah. Amérique yaatu na. waaw. lu ku ne xaj na ci. nga wax que ni ko sóor da nga doon wax noonu rek pour la forme wala da nga ci am leer. waaw xam nga moom. Euh, kii lu ma ko wax léegi sama xol dafay jeex ci moom. barki Serigne Bamba Mbacke sama xol moo tax li bëggoo ma. ndax du ma léeg-léeg dama yimala duma fii ci Demba Diop la. moo moo des ci yow ba léegi dama yimala duma. Lac de Guiers numéro un moo la indi woon. Mm-hmm. ma duma la maa ngi koy nuyu bu ah. baax Lac de Guiers euh, ca Amérique. Mm-hmm. ku am jom am fulla am fayda grand bu am personnalité. dëgg la grand bu am personnalité. Mm-hmm. maa ngi koy ziar la de ca Amérique néegu hmm. Amérique maa koy ziar grand boobu am personnalité. léegi affaire am personnalité dafa laaj pour ak am personnalité booy hmm. kayre ku am personnalité am fulla am fayda hmm. doo ko dégg mukk ma wax la ñaaw zàlloo ngi nii doo ko dégg ma wax mu ñaaw te ay moroomam la lan zàlloo mosoo ko dégg ma wax mu ñaaw Moustapha Gueye de mosoo Moustapha Gueye ko dégg ma wax mu ñaaw ay waay ngir yàlla ak rasulillahi kii lan la na xool ñooñu ay nawleem lan ay naataangoom lan ah xool ci ñooñu bàyyi wax wax bu ñaaw la déggee da nga ko mos a dégg moo wax bu ñaaw suñ ko waxee rek moom mii moo leen ko wax loo ndax ah, moom lam na yooyu ñaaw waaye da nga koy comprendre sooy lallu bon sooy wax yéen i doo ko tay mais lan lay laal yow tamit bàyyi kii bi lan lay laal day volé du suus sérieux hmm. day volé suus xool ko mi suus d'accord léegi dinañ ci ñëwaat maa ngi nuyu sama waa ji Mbaye Diop borom America mhm. borom Italiano mhm. borom euh, Touba Mbaye Diop mhm. sama xarit la ku baax la vraiment ba <laughs> sànq dafa maa woo ndeysaan dafa seetaan vidéo nguur si woo am lu ma wax ndeysaan affaire bi metti ko lool li ma nguur si wax mu metti ko lool Mbaye Diop maa ngi koy ziar bu wér-wér di nuyu Guèye Ndiaye sama rakk ji borom feer yi maa ngi koy ziar bu wér Guèye Ndiaye maa ngi koy ziar ndax daal am na léeg-léeg suñu la waxalee loo xam newul ci yow. Mhm. ndeysaan say nit daf leen di metti d'accord léegi. maa ngi eh, nuyu Ibou tam ci année Ibou sama waaje ma xam ne moom a hébergé woon këram laa nekkoon d'accord dinañ ci ñëw léegi sëñ Cissé mm-hmm. euh, dama bëggoon ñu dellu siwaat tuuti ci actualité réew mi mm-hmm. comme ni nga koy defee jamono bu nekk mm-hmm. ñu gis mbirum Ousmane Sonko nga ci doon def ay sorties yu am solo bi ñu dindee démb euh, barricade yi barricade woon këram tey ban jàngat nga ci njëkk am parce que sànq ñu ngi wax ci mbirum ku war remplacer Macky Sall yooyu mais ñëwaguñu woon ci Sonko waaw Sonko loolu ñu def def nañ lu rafet mm-hmm. ndax gis nga àdduna mm-hmm. lépp lu mën a jur finne ci réew mm-hmm. dañ koy moytu te gis nga réew mi waaye ngi toog naan lii bu xewee danaa ci mucc mu xew nga dee dëgg la bi ma xëyee nag dégg ñu ne dindi nañ barricade yi foofee santaan naa yàlla yokkaat ca la ma doon ñaan ndax la waral loola mooy ne Ousmane Sonko citoyen la ci réew mi la dëkk te li muy woote am na droit pour woote ko ndax am njàng bu la ko sa baay di def loo bëgg ëllëg nga jëriñu moo tax mu la koy def loo kon dindi nañ barikateer ya xaw ma barikateer xaw ma dindi nañ daal yeeñ fa tegoon dindi nañ barrière ya def nañ lu rafet président Macky Sall comme nee na bokkatul mhm. na tëgg làmb ji baleen ñu dem bëree ji ku mën sa morom. ni ko gaa yi di waxee duma. Mm-hmm. muy Sonko na ko ba mu bokk. Mm-hmm. ku mën doon na ko ba mu bokk. Mm-hmm. waaye daal lépp luy jur fitna nañ ko moytu ci réew mi. ndax réew mi fitna xajut fi. te réew mi dafa xat yaatuwut. lii daal biñ ko defee def nañ lu baax di ci. ndax nit koo xam ne bari eh, eh, tëj nga ko waaye lu mu bëgg a waxee mu ngi koy wax. mu ngi koy wax dindil bant yee mu dem doxi soxlaam. li bëgg a jàllale ci ay message mu koy jàllale mhm. dindil barikatir yi mu doxi soxlaam mhm. dem ak njabootam mhm. bu ko defee jàmm ne ñooy bu élection jotee nga bokku mu bokk gis nga pale bi ki yàlla dogal ne dafay dem dafay dem de dafay dem de kon yii ñuy def ci réew mi puusante beeg ñoddante bi jaru ko Ousmane Sonko xale la mu ngi ci réew mi am na lu mu civilé ne la bëgg nañ ko ba mu doxal xeex bi doy mhm. na nit ñi sonn nañu mhm. te gis nga damay wax ne politiciens yi li ma gën a jaaxal ci ñoom mhm. mooy ne benn wëy la ñoom ñëpp di yor wëy wi ku bëgg a yéeg dang ne buñ ma falee ma tabaxal leen école ñu fal la nga yéeg doo tabax dara kon ku ci yàlla dogal ne yaay dem yaay dem waaye comme que usmaan la yàlla dogal ne coow li ci loxoom la ne dinañ barikatiir nañ ko baax nañ ko ba bu élection amee ku gagné ñoo xam ne moo gagné. Mhm. mu jeex. Mhm. lay si si xaadim waaw. Mhm. waaw loolu damay wax ni rek. gis nga bi ñu affaire bi amee sax ci la yàlla ji taw ba. wax dëgg yàlla ndox am ci réew mi. wax dëgg yàlla macha allah. xam ne jàmm rek ci la lépp xaj xam nga ne comme Macky bokk na te dama nekk si Abdou Diouf daan taxaw ne jàkka jàkka ku mën na noot ku mën na noot waaye ngeen ko ba tey kon Macky yàlla def na moom def na li ñu fi war a def te kon lii mu def nii. Mhm. ñëpp ko ci sat di ko gërëm. Mhm. ndax mhm. Euh, Sonko xale la. yàlla def ko nag lii mu ko def. li mu ko def. mu neex Xaadim. mu neex kii ngóor sii toog. yàlla da koy def li mu ko def rek. li ci am solo rek. mooy réew mi yëpp nekk ci jàmm. am dal. xam nga kii nag. su fekkee dama ko yéene ki ñaan wala lu bon. yàlla na ma dóor ma daal. suñu li may wax yëpp jàmm laa ko yéene. yéene woo ma jàmm de. xam nga yéene ma jàmm di ñaanal Ama Balde. di ko ñaanal muy patriote bu mag. di ñaanal tamit opposition bi yëpp. ñoom Sonko. Mm-hmm. ñoom mm-hmm. Maître El Hadj Diouf ak ñoom Boubacar. waaw ah, sama candidat. ak tam Maître El Hadj Diouf sama candidat. di leen ñaanal jàll muy nit ku baax. Maître El Hadj Diouf sama candidat waaw. di ñaanal Boubacar ak moo gën moo gën sama candidat waaw waaw kon yow mu ah, gën xam nga bële déedéet fatal foofu. fatal ma foofu. waaw moom xam nañ fa fatal foofu la tudd moom xam nañ fa. d'accord léegi Lirou yow tam ban message ngay joxe. ci événement bi waaw dama réew mi mag ñu baax la tëdd ñu baax fi jaar moo tax jàmm rek moo fi am jàmm rek moo fi am coow yi fi amoon yooyu yëpp li rek day mujj sedd ko yi kese ndax réew mi Senghor jaar na fi mm-hmm. Abdou Diouf jaar na fi mm-hmm. Ablaye Wade jaar na fi mm-hmm. comme ni ko waxee rek Abdou Diouf la ko jàkk jaam ku mën a noot noot Macky Sall def na li mu def toog ñaari mandat daal di taxaw ne bokkatuma tubaarikàlla macha allah loolu da ciy am woy wu rëy la jàpp mhm. mhm. loolu da ciy am woy wu rëy rëy rëy mhm. vraiment liggéey na gàcce ngalaama waaw ñoo koy ñaanal yàlla defal ko jàmm Ousmane Sonko président Ousmane Sonko Macky Sall Euh, kii nu mu tudd. Euh, Bougane hmm. Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye euh, Dany. Malick Gakou. Hmm. Malick Gakou Khalifa Sall Karim Wade. Hmm. ñoom ñëpp. tubaarikàlla macha allah réew mi leen ñor. réew mi leen intéressé. réew mi moo leen intéressé. ndax jàmm rek lañ bëgg ci réew mi. tey jii Sonko li mu am yàlla la. wallaay. yàlla la. ndax am na yenn yoo xam du yàlla la dañuy nangu ndogalu yàlla. yàlla moo ko dogal. man nag. aw ma fenn sens intérêt. ñëpp laa yemale. man daal réew mi jàmm laa fiy ñaan. Mhm. muy Sonko Bougane ak euh, Malick Gakou. Mhm. Euh, Macky Sall. Mhm. Euh, Karim Wade. ñoom ñëpp laa yemale. Khalifa Sall. ki gën ci réew mi daal yàlla fi yàlla teg. ki gën réew mi. yàlla na ko fi yàlla def. amiin man daal loolu laay. loolu moo jar a ñaan sax waaw ndax tey ji wax yu ñaaw yeeg. bu mhm. defante yeeg yooyu yëpp jaru ko. Mhm. Mhm. ku war a falu. bilaay di nga falu. kenn mënu ci dara mbindeef mënu ci dara. yàlla yàlla noppi na démb. yàlla noppi na démb kon nag nan ñaan ci réew mi jàmm. ndax réew mi. soo amee jàmm nit ñi am jàmm a mhm. mhm. jàmm ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm mhm. loolu daal laa ñaan yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñu dugg ci élection yi bisimilahi a génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina ñu bàyyi ñëpp dem voilà d'accord am na solo euh, bii nga fekk amoo question si si am naa question euh, damay wax que rek euh, ci jamono yee weesu dañu seetlu ne le président Macky Sall le président de tous les Sénégalais dafa oo ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbër yi ci biir loolu mu am ci ay détails yu sew mais oote boobu noonu dañuy seetlu ni après oote bi tuuti rek si la manifestation yi am ñu dugg tudd ci nervi yi ñu ci bëri mbëri yu bëri seen der yàqu ci oote boobu la ñu bëggoon xam juste rek considération la woon wala dañu leen doon oo pour peeg leen wala pour utilisation may ma Sénégal gis nga yow Amérique yow. waaw maa ngi woon Amérique. ma xamal la benn affaire. Mm-hmm. Ablaye Wade woo na fi mu bëri. Mm-hmm. audience. Mm-hmm. mais pas comme bii. waaw. mais ancienne gloire la ñëpp la dajale woon ñoo fa ëppoon am na ñoo xam ne ñoo ngi fi xeex foofu. moom mii ci la bokk. ndax xaalis bu ñu joxoon yoon ko séddale ci pale bi. mu ngi nii bu war a xeex foofu. am na mbër bu ñu fa dooroon tamit kii nu tudd. am na mbër bu ñu fa dooroon. parce que comprendre nga. bobu euh, ablay wat lewon mhm. mu joxone audience bu bëri. Mhm. tey Macky Sall su defee lii. Mhm. jarul coow. mooy président moom la fi yalla tek su woyé akhlu lam su woyé akhlu lam su woyé akhlu lam lol dafa rafet. audience lol dafa rafet. ah waye ku nek amna na si ñoo xame ni ñom ñoy influencer xalé yi. waaw paa yu ñàkk fay dem. gloire ah, yi ah dégg nga dégg nga di jéem man lay wax. comprendre eh, yow yow waxal moom moom waxal. ah bon waaw. moom laay waxal ñoom ñooy influence xale yi. Mhm. di leen wax loo. <laughs> te pourtant moom. Mhm. ba ñuy dem pale moom ma nga fa woon. Mhm. c'est xam nga leen moo ko metti daa toog ca ginnaaw. am <laughs> ñu toog sa kanam. looloo ko metti moo tax muy yàq der di wax wax bu ñaaw loolu baaxul. Mhm. suñu réew mi ñun ñoo ko moom. Mhm. xale yi champion yi suñuy rakk la ñii suñuy rakk la ñii suñuy moroom la. Mhm. comprendre nga. ñii suñuy jarbaat lan. am na yoo xam ne jaru ko fii. di effleat xale yi xale yi di wax lu nekk ku nekk gën sa làmmeñ di wax wax yu ñaaw loolu baaxul. te moom mii tey. naa ba ñuy joxe paas dégg naa moom aña encaissé si la bokk ñu dëkk encaissé si la bokk. ah. keroog encaissé jox ñu la paas. ca palem daw jox ñu la woon paas loolu am na yoo xam ne ñaaw dafa ñaaw yow xaalis dafa laa jaral lu ne. bàyyil wax bu ñaaw mais coow bi ci judd après. ak affaire ah, nervi yi judd ay nervi man mi sax Amérique la gisoo ñu ma doon tooñ naa ma sol sama benn numéro ndox. xaw ma waaye nervi nga woon yaa encaissé yaa kii nervi ba pare doog dem États-Unis ñun xam nañ lépp. man bi affaire bi xew. yaa cinq jours avant koor gi nga dem. waaw am na wala amul. waaw waaw yaa yaa yaa yaa recruté nervi yi. kan ma recruté nervi yi li ñu la jox ci nga paas dem Amérique mais xam nga ne yow bëriwoo fi wala liggéey fi la la jox paasu Amérique. nga xam xam nga nee ngeen ah, am nga sa rakk nee ngeen taxaw ngeen ne woon damay wut bureau jàmbur yi. am na dem lu mu la wax dëgg la lu muy waaj wax dëgg la. xam nga déggoo li ma la wax la. Mm-hmm. guy gee ma woo ñaan ma. Mm-hmm. ma bàyyi ndax nee na ma sooy sama mag. soo ma ñaanee déglu ma jox ko ko wàllam ci États-Unis. waaw déglu ma déglu ma sama rakk waaw déglu ma sama rakk. guy ak Abdou Diouf joxoon ngeen wàllam ci États-Unis. guy gi a mm-hmm. li ngay bàyyi nga war a def. ndax am na sama jikko ñoom sama rakk la maa leen yar xam nañ sama jikko mm. mu ñaan ma ne ma grand dimbali ma ngir yàlla rasulillahi bul tontu amet dem mm. ndax xamoon tax grand mm. suma grand nga te soo ñu moom su ma jàppee da nga may ñaan may bàyyi te na dëgg day jàpp ma ñaan ko bàyyi comprendre nga léegi moo wax ma loolu ma daal bu fekk mu nee na woon a amet dem ba wax ak moom looloo tax ma bàyyi waaye man euh, sa Cissé wax baax dem moom laa gis mbër moo xamante ci caara yi day lal walaanam basi walaanam mbalaanam wasi ko. Mhm. taalibe Cheikh. billaahi. waaw même bu nekkee taalibe Cheikh tamit waru tooñ. waaw Ahmed maa tooñ. ndax xamal tax tooñ. bii xamal tax tooñ. yow xamal tax tooñ bii xamal tax tooñ. bii xamal ma tooñ. bii gën yow bii gën billaahi yow yaay saytaan yow yaay saytaan. Ah, ah, yaa xam nga bi. yaa saytaan de bu saytaan boo waxee kii bu waxee moom yoonam nekk. voilà waru ko tontu. non non waru ko tontu. Bigué waaw Bigué man di waa léegi man aw ma droit man dem Thierry aw ma numéro am. Hmm. dem Thierry am naa droit ñaanal dem Thierry. léegi lan moo tax nga koy ñaanal. waaw dama ko mere moom. kan nga mere parce que problème bi yaa ngi di problème. daa taxawal saaga ma daa taxawal saaga Balla Gaye di bëreeg Boy Niang loolu moom du raison mm. nga Boy Niang xanaa tey man <laughs> ki dem jaaxas nga ko fi lu mel ni xamee. la ko fi yàgg lu mel dama dégg sax muy gërëm léegi kii bàyyi ma ñoon kan moo gërëm Baye Mandione. yow fi nga taxaw nga ne si simbi nga ko fekk yow. xanaa yow bu fekkee sax gis nga ndeysaan dama mhm. mu eh. eh, ma leeral d'accord Xaadim mu am lu mu leeral ci affaire u caaro bi parce que man toog naa toog naa fii ma ne Xaadim Njaay moom mooy magu caaro yi tey caaro yi tey bu buggoon suba suba mu nekk benn ci moom la dépendre tey te loolu xam naa ne lu yàgg dara sëñ Siise nii dina ci ànd ak yow liggéey ci parce que caaro yi moom il faut ngeen dajaloo yaa mhm. ko mhm. ah, mhm. tudd de yaa ko tudd de waaw d'accord léegi moo ko tudd de Pape da ko woo ne ko waxal bàyyi ma ñoon ji te booy léegi baax mu leer léegi baax mu leeral mu taxaw ne wa maa woo ma na dem entraîné yi muy def loolu baaxul yi da ngay defar léegi léegi léegi xaadim man de sama géej way dañ bëgg ñaan naa yëpp ñëpp dama bu ci daboon dóor sax ma bàyyi mu set léegi léegi xaadim sa diggante ak Abdou Diouf ak guy gi Abdou Diouf Abdou Diouf ñooy yarandoo Abdou Diouf dafa loolu ma ne moom amul léegi xaadim ñëwul ci affaire bàyyi ma la ñu bokk ten bi ñooy laxasoo affaire u caaro yi waaw dafa jaxasoo fa yi bàyyi ma joon mhm. su fekkee yéenu ma ko lu dul jàmm mhm. sama jàkkaar jàkkaarloo. yéen yéen a woo ko jàpp. ya ci barke si billaahi wallaahi wa taxaw na. wax ma bàyyi ma yàq sama ndey laa la. Hmm. billaahi wallaahi wa taalaahi yàlla naa génn oto dër ma. Hmm. oto dër dër. billaahi xam nga lu ma. Hmm. mu ne bàyyi ma njool. suy dem ci télé wala yooyu day day day couché. ba pare biceps. ba biceps yi taxaw. mu doog a dem. du contact. day weñ rek lay yëkkati. te couché dong lay def ak biceps. tànk darahnya dara def barki Serigne Bamba Mbacke wax même bu dul loolu sax wax na ni. dafa ñaaw te xam nga même bu la. sa war ko dafa ñaaw instant bi mu armo min agar mu. waaw waaw waaw xoolal waxu ñaaw yooyu. xoolal waxu ñaaw yooyu. xoolal waxu ñaaw yooyu. xoolal waxu ñaaw yooyu. waxu ñaaw mi ba ndax man damay damay yi nga ne yow su may ko sax du ma dend ak yow. rëccu naa sax li ma doon dend ak yow. yow mii yaay saytaane bu ma yow yaay saytaane bu léegi léegi liiru may ko mu leeral ci ci ci affaire Baye Mandione léegi léegi parce que Sénégal yëpp a ngi lay seetaan. ñii am am na ñoo xamante ne xaadim yow yow yow yow nekk mu leeral nekk mu leeral waaw day déglu nag day déglu waaw liir déglu ko mu leeral liiru xoolal da ngay déglu da ngay déglu ko mu leeral da ngay déglu ma yow sa jaxase yi hmm. su fekkee mu neex sa jaxase yi su fekkee mu neex su fekkee mu neex sa jaxase yi bàyyi ma ñor su doon daanu dix fois dina am hmm. ndax lan dafa saf làmb daa mën làmb léegi li yàlla nag mooy dogal natt fu ne lay jóge léegi bàyyi ko mu leeral loolu parce que Sénégal ñu bëri dañ ko mere te xëy na xamuñu lu xew xamul kan léegi léegi xaadim waaw dimbale ma léegi dama bëgg nga expliquer sa diggante Baye Mandione. man ku may meree ci dëgg nga may. waaw ci dëgg laay dox. waaw bàyyi ko mu leeral foofu ko bàyyiwuma eh, da nga koy bàyyi de da koy bàyyi. da doo ko bàyyi mu leer. bàyyiwuma ko ba bëgg a dee. sa peeru silmaxa yi nga. magam la mm-hmm. am naa droit wax ko lu ma neex. dëgg la sama rakk la. Mm. ñoo bokk suñu caaw. nga dem woo ko nga dem woo ko téléphone. su amee lu muy def mm-hmm. na na ko woo ko téléphone. mu woo ko téléphone mu mm-hmm. woo ko téléphone. su amee lu muy def. mu woo ko téléphone. su amee lu muy lu muy defal. Mm-hmm. na dem écurie Waalo defar ko ndax écurie Waalo la bokk bokkul écurie Lutte <laughs> Balla Gaye gis mhm. <laughs> na ma xamal benn bi dégg may déglu bokkul dégluwuma la dégluwuma la ma mi moom ma ko wax bu fekkee waxuma ko mhm. oto bi may yéeg yàlla na la wax ah. dégg moo mhm. def dégg ku deful moo tax ñu dégg waaw loolu moom da da koy wax yow Abdoulaye Diop xaas Abdoulaye Diop xaas nee na boo ko jëm wax ci moom Abdoulaye si say def Abdoulaye ku def ku dégg ah billahi moo ma ko. waaw loolu moom dafa ñàkk sama ndey. samay samay waajur bu ma leen ñaanal yàlla. mais ku def dégg ku def dégg man dara ci njoon. man ñoon. Mhm. géej waay. Mhm. samay rakk ngay seytaane. yow mi yaa seytaane tey bi nga taxawee keroog lay jóg parce que tàgg nga ko ba tey. kan nga ne. tàgg nga ko ba mu lay jox mais dafa def dafa dégg. waaw xaas dañoo yàgg dem këram mu di ñu teral hmm. billahi wallahi tallahi ndogal mhm. ñu rek ma salek suñuy kër commencé naa suus commencé naa suus commencé naa suus mais dégg suus na lay la dégg dootul xamante lu wax kii mhm. géejawaay guy gi mii dafa am guy gi sama rek la bu doon ma jaxasee guy gi mhm. mais man njoon mas ta bëre kenn may wax adversaire am njoon lu ma ko mën a wax caaru leer te fekk yéene naa ko ndax bàyyi ma njoon taxaw bëre naa Papa Sow man ak moom ñu taxaw stade Demba Diop billahi wallahi wataal su ma génnee yàlla yàlla bu ma àgg sama kër mu ne ma dañ koy daan gan moom. mu ne bàyyi ma ñor na koy daal ma ñàkk sama eh, nag sama baay billaa ah, wallaahi ma fekk la sama rak sama sama rak moo gaañu mais la ma fekk xam nga kan moo gaañu eh, eh. neen Touba la ma barki sëriñ combat ñor barki moo taxaw ma tax dama laaj ku mën a yàlla bind mhm. combat boobu mhm. sama rak moo gaañu muy man Thierno ma bokk ak moom benn baay mhm. maa nga Touba yow li nga wax nii. combat boobu jëm Papa Sow. man génne image eh. ba. combat boobu jëm mu taxaw. yow dimbali na waaye yow dimbali ma. yow naa fekk ko yow mosoo bëgg baabi ñëw yow mosoo bëgg baabi ñëw mosoo ko bëgg. d'accord baabi ñëw ndax xol bu rafet la léegi léegi sëñ Cissé. yoon yoon Issa laay. sëñ Cissé léegi léegi beneen problème bi nag. léegi liiru léegi liiru beneen problème dafa am. sëñ Cissé moom moo ëpp problème ñëpp moom tey ndax seen combat bii position gu mu war a taxaw man mooy sama problème sëñ Cissé ban position nga jël ah, ah, ci combat fu mu nekk nii. Ah, xam nga ko foog nga loolu ngay laajee loolu du question. du question la <laughs> yaa ngi dugal sëñ Cissé de. loolu du question. loolu du question xam naa ni. tey la lépp di leer. ñëpp a ngi koy wax. mais bu leen ko sot nag bu leen ko sot. foo jaar sëñ Cissé ndax sëñ Cissé ak liw na. Ah dañoo yàgg. Ah waaw <laughs> ah, kon baax na kon loolu seen yoon yoon la. waaw kon loolu normal la. normal la. waaw kon baax na kon kay dama sam papa sëñ Ibrahima Gunta. voilà jëpp si eh, eh, eh, voilà jëpp. dama sam papa sëñ Ibrahima Gunta kërëm laay ngeen boo. Ibrahima Kunta kërëm laay ngeen boo. ah cay Ibrahima Kunta cay cay hey. cay borom sëtu yonent bi eh? kenn du moom eh, ku ñu bëgg sa maamata eh, Cheikh Ibrahima aka baax aka baax xanaa tey borom xalima gi lu mu bindul baaxul ah. lu mu waxul baaxul ah. Cheikh Ibrahima ah. kenn du moom ah waay tam bàyyi laat borom iraada léegi bàyyi laat borom iraada léegi sëñ Cissé di remercier dama bëggoon nga waaw Aziz Ndiaye mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla mhm. defal ko jàmm moom amiin Ndiaye mhm. doo ma sa gis mu wax tudd leen tudd leen ba jeex tudd leen ay waay <laughs> kooku sama frère. ndax Aziz moom day nit kooku kooku sama frère. Eh. munoo maa tax ñoom Ndiaye man Ndiaye saytaane nga. Eh, ñu bokk géej waay nan laa sant kan. yow Ndiaye sax mérite woo ko yow Ndiaye sax mérite woo ko yow. man yaa may Ndiaye original. d'accord léegi am na ku am na ku war a dugg nii ah, am lu mu leeral. waaw ah, may ma tuuti ma ñëw. ATM maa ngi gërëm Alasine Ndiaye bu baax a baax a ñaanal papam yàlla ko yàlla xaar amiin yaa rabbal nga xam dem na fu miin papam papam nee ko mais fi ñu ko dem na fu miin papam yàlla fa defi taranga insha Allah ak Baye Ndiaye comprendre ak Kor Ndiak ñoom ñëpp Kor Ndiak borom ngénte barki démb bi mu Cheikh la fi lu la jël na da xam mu su demee kër su añee kër Matar ba reere ji kër Kéba. Euh, euh, taxaw fi yegg fi Kéba lu mel ne xamee Matar ba Matar ba invité ma conférence de presse. Matar ba ma daal di dem mu génn fi yegg fi Kéba lu mel ne xamee. Mm. naan Kéba dafa maa jënd jëf ko jënd. Mm. Kéba wooy ko woo ko trop. d'accord léegi xol ba daa rafet. léegi sëñ Cissé Kéba yëkkati jox ko mu tëj laa léegi dama bëggoon léegi sëñ Cissé wax ci combat bi sëñ Cissé yow. combat bi loo ci gis. Modou dégg naa ko li mu wax Modou saytaane. bàyyi jàmm yow mi yaay saytaane Modou du saytaane ku baax la yow mi yaay saytaane. dégg naa ko nag Modou du saytaane yow mi yaay saytaane. kurus gu mu yor gis nga sëñ Cissé dañoo wax la mu génne kurus gi. waaw xam nañ lépp. <laughs> waaw merci nga xam nañ ni moom. d'accord sëñ Cissé lan nga wax ci combat bi. sëñ Cissé moom yàllaa ma ko bëgg. xam nga am na ci sëriñ yàllaa ma ko bëgg. soo ko bëggoon doo ko ñëw soo ko bëggoon doo ko ñëw. dama ko bëgg tey soo ko bëggoon doo ko ñëw. léeg-léeg wuyul sëñ Cissé combat bi sax danaa ko yàq. <laughs> ah. combat bi danaa ko yàq du am. balaa ko yàq kenn du ko fi bëree ndax dafa am sëriñ soo xam ne uh-huh. liir di ay seytaane rek uh-huh. la combat bi ku ko bëgg a tëgg da nga war a jaar ci man ah, ma jox la ndigal nga ah, tëgg vraiment vraiment bi danaa ko yàq uh-huh. déet waay sëñ bi <laughs> waaw ah, Ibrahima day social yi muy def non kooku moom kenn moom. nee ma xaarim nee na ma xaarim tabaski bi tabaski bi ko ñaanal yàlla defal ko jàmm xaru 500000 la ma yónnee. yàgg na ci kooku loolu la xam du nit. loolu la xam loolu la xam. wàllu Kamal Kamal bi leer wallaay dégg na. Eh. moo la sponsorisé nit. moo la émission bi. Mhm. maa leen sponsorisé lépp lu fay xew maa ko fay def. man de sama wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla yow. Mm-hmm. Mm-hmm. Yves. sama mm-hmm. waa ji. maa ngi gërëm bu baax di ko ñaanal. kii xaaral ma fàttali dara kii yaa ma ko présenté. voilà maa la ko présenté. bu seen si amee bi ci émission bi. waaw yàllaa koy woo tax dëgg waaye dafa def loo xam ne dafa marqué nit xam na sa wareef. dëgg la xoolal nekkuma fi yow maa nga États-Unis. mu woo ne liiru woo ma ñëw. mu ne Abdou Fall noonu lay def ak man mm-hmm. dafa nice. waaw geste dafa marqué. dëgg la. est-ce que xam nga leen na. xam nga loolu. liiru wala mu jox na ko ma la dëggal liiru maam xaadim xaadim xaadim dina dina ñëw xaaral maa ngi mën a dëgëral. waaw Serigne Cissé rek mooy koo xamante ne fii ci ñaankatu yàlla. sañ naa ko woo. na ko maa ngi nit ñëw sa kër. dem toog fa. Mm. waxtaan ak moom naan fa boisson. wala naan fa café. ci koor gi. moom rek laa seeti ci sëriñ. dem jullee fa jumaa këram. moom du affaire émission. dëgg maanaam sama xarit la. ku baax parce que nit gis nga nit. invité naa fi Serigne bu ne. mais ni ma mel ak Serigne Cissé. Ah, melu ma ko benn Serigne bu ñëw ci plateau bi. te ba mu ñëwee ci émission bi moo ko taal. ndax boobu ñëw ñaan. ne ma émission bi ci kanam rek. Saalum la. ndéem maa ubbi émision bii nii ne ma ci kanam rek. donc moom. moom moom mooy borom guddi gi. waaw yow euh, xam nga moo tax it guddi gi tubaarkàlla maa sa international la. man mhm. damay nekk Amérique. Mhm. heure bi ñu commencé fii. Mhm. day fekk foofu ñu nekk. su waay 19 ba 18 heures yooyu waay. 17 heures 18 heures. waaw waaw waaw waaw ndeysaan. ndeysaan moo njaay ji tooñ rek moom mi ko fa ñaanal jabar. waa jabar ji moom. waaw kay léegi xaaral ma leeral la balaa ñu eggali. parce que loolu. jabar loo koy nëbb naan sama kër tas na dara ngaa takk jabar d'accord léegi ñu déglu ki nga xamante ne moom moo annoncé woon jabaru liiru bi muy ATM ATM ñu ngi lay euh, maa ngi lay ziar di ziar ñi nga xamante ni ñi ngi ci plateau bi mhm. ñëpp di wàcc mhm. ATM dañoo bëgg te wax ji leer. maa ngi toog wax ne liiru dafa takk deuxième femme. waaw waaw man man ATM man maa wax loolu avant loolu maa ngi nuyu Waly Seck dafa dox na si ay jéego yu man sëkk président Waly. Hmm. nee ko yow mën neen la jox réew mi tant ak ngërëm. ñeent ko ca kaw daa góor a nga noonu góor pire. doomu coon Seck jéeg jaajëf yàlla bu ñu séddale ñu déglu ñu déglu léegi. léegi léegi li may li may wax moom mooy que ni liiru liiru sama sama sama xarit la. Mhm. sama nit la sama wóllëre la man ak moom dañoo yàgg. Mhm. liiru coowal ñaareel du c'est la première du du fois. Mhm. ba ma ko njëkkee defal interview mu njëkk ñëw États-Unis d'Amérique laa ko njëkk laaj ñaareel ba muy xët ba gars naa ba commentaire naa waaye yow kii da lay rey. booba laa ko njëkk tuddal ñaareel. kon maanaam lu mu nekk sama nit. nekk sama xarit nekk sama frère moo tax ma am sañ-sañu di ko tooñ noonu naan ko dafa takk ñaareel ak yooyu la mm. loolu tooñ la mm. man du ma ko jéggulu moom man ko jéggulu man liiru du ma ko jéggulu man mm. soxnaam laay jéggulu man sama compagne maa ngi koy jéggulu di ko baalu àq bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mais DJ Yves waaw DJ Yves waaw sama compagne maa ngi koy jéggulu di ko ñaanal jàmm naan ko yàlla na yàlla ko génn barke Serigne Saliou mais mais DJ DJ ah, am naa plainte internationale bu ma def boo xamante ni bu liiru jaan tege tànkam ci buntu aéroport yi. très bien ça dañ koy jàpp. Malick Fall woo na ma. Euh. Malick Fall woo na ma di ma ñaan njekk. Euh. Mour Ndiaye directeur woo na ma di ma ñaan njekk. Euh. Sëñ Mbacke Ndiaye woo na ma di ma ñaan njekk. yow moomu sax doon nga ma woo di ma ñaan njekk may la dijji ma. vraiment vraiment waaw bul ñaan njekk daal di ko fay sama téléphone. vraiment. sama waa ji kenn du ko plainte États-Unis ma toog di ko xool plainte bi dugal naa ko ba pare. Euh. dugal naa plainte bi ba pare. nag lii moo tax mu daw ñu gis maa ngi nuyu seen Cissé. waaw di nuyu seen Xaadim. Euh. Euh, di nuyu soxna soosu sawet nee naa ko ku ne balaa baax day jonga ma saabu gisoo gis ginnaaw. <laughs> jërëjëf. wuy ma waaw wuy eh, ma. waaw international bee doon woote le meilleur de sa génération l'homme plus fort l'homme international. da ngaa bàyyi moo gën da ngaa bàyyi moo gën. kii bëgg naa ko waay. bis ni ki bëgg naa booy bi non ko dëgg yàlla. da nga bàyyi moo kii naa nekk président nga bàyyi ko. banaa ko moo la de. oui ma. waaw ma DJ. waaw lu mu war a ci àdduna yàlla na ko yàlla def. amiin man kay sekk banaa ko. nga moo officiellement. barke Serigne Saliou Mbacke. Hmm. laa yaakaar banaa ko bis ni ka tey banaa ko officiellement a ko ñëpp dégg. d'accord Xaadim Ndiaye Xaadim Ndiaye mu ne. li may ñaan daal mooy. Mhm. li may ñaan daal mooy Waly Seck Seck Mariasi may sa biige may sa biige maar. Mhm. li ma dégganteeg moom yëkkatiwul dërëm jox ma ko mais man xool bëgg ko. Mhm. di ko ñaanal suñu góom ko. defal ko jàmm gouvernement bu bees bii na ma ko xim <laughs> député. d'accord boole am Serigne yow laa jàpp. jàppale ci combat bi. ah. ah ETM nee lay jàppale ci combat bi. jërëjëf loolu la ah. waaw ñoo ah. Ah, eh, nga ne. ma ne xaadim lay jàppale ci combat bi xaadim Ndiaye. yow yow nee ko yow nee ñoo bokk président muy Waly Seck. nee na bokk président muy Waly Seck. Waly Seck Pape Fall rek laay topp. lañ bokk Waly Seck lañ bokk ñoo bokk président bi dinaa la boole sept sëriñ. sept waaw set sëriñ laa lay booleel te jàppan ni waaye Seck dina jàpp ci combat bi. léegi léegi en attendant léegi en attendant. waaw yónneel dara nii nii nii. yónneel dara nii nii nii en direct nii nii nii fi nga taxaw nii comme ça mu commencé ci entraînement yi comme da ngay jàppale Xaadim Ndiaye. waaw. entraînement yi commencé xaadim Ndiaye xaadim Ndiaye xaadim na ko liiru jox sama numéro na ma jox turam ak léppam barki Serigne Saliou dinaa ko yónnee dara ci combat bi dinaa si jàpp. jeex na jërëjëf yow yaa ko yónnee di yéeg. Mhm. maa ko yónnee numéro bi léegi nii en direct. wuyu ma. Mhm. yàlla gis nga ma xamal la benn affaire. Mhm. waali ku baax la. waaw ah, taalibe la. waaw ma kaw. waaye ko waxee ko man ah, xam nga man maa nekk nit koo xam. weñ nga fu tooy nga toog nga tax. man bëgguma mhm. mhm. mhm. sama waay la. Matar suba teel. sama waay la. ponkal baa nga euro la. njëkk euro. man samay waay la man aw ma fenn sax ñëpp samay xarit la ndax xam nga moo ko waral loolu sama baax te du ma jëw damaa direct bëgguma ko wet yow man damaa teg comprendre nga. ma ko daal wéb bu dëgër la ma yónnee tabaski bi. non non ku baax la tabaski bi wéb bu dëgër la ma yónnee. Dembo Ndiaye. Ah. te feeñu ci sax nit ak keneen a ma woo. dañu doon defal Pape Diouf hmm. anniversaire. waaw anniversaire waaw naa Pape Diouf trop. waaw non ñoom anniversaire. lu toll ni anniversaire Pape Diouf ci ndax man damaa ñëw ci ngénteel euh, kon njaag bi laa nekk. Hmm. après euh, boucher ne ma. Hmm. kaay ñu ànd fii Pape Diouf la gars yi defal anniversaire waaye affaire dañ koy bett. comprendre nga yëgu ko sax moom. ñu la affaire bi demee wax dëgg yàlla le grand super si. gën a ñaaxare ñëw. le sénabeur. ñaaxare ñëw gis nga affaire saytaane yi Ah, waaw ñaaw du weñ fu tooy mu tak liggéeyam lay def teg ko ci yoon kan moo kenn dégg ko muy wax leen lu ñaaw waaw kan moo mu ngi topp liggéey kan moo kan mooy kan mooy laa wax mu ngi topp liggéeyam mm-hmm. ñaa ku baax la waaw d'accord ñaa ku baax la vraiment man xam nga yii muy def yëpp affaire saytaan lay def mm-hmm. Mm-hmm. ndax booba léegi mi ngi taxaw naan ah fu tooy mu dal man déggul la nee la. da nga am problème ak ñaar. kan non. ñaar sama frère. ñaar yi ko bokkal ñaar yi ko bokkal. ñaar yi ko bokkal. mais yow yaa ngi sa ay nga ne moom du gërëm ay nitam. waat moom ñi muy tudd ñëpp man samay waay. man ñëpp Amadou Badiane. le grand musique Amadou Badiane. man Mouhamed Pape Alioune. man aw fenn sens interdit. d' accord léegi su wax am na day ak ñaar. dara dara. Bombardier. Mhm. dafa def geste bu garaaw. Hmm. ci la dëkk billaahi wallaahi tàllaahi. Hmm. comprendre nga. Hmm. Euh, ba soirée bi jeexee. mu ngëbal ma. xaalis bu bari. ngëbal ko baabu ci la kooku loolu la xam ñeneen. kooku loolu la xam comprendre nga maa nga foon. comprendre nga moo tax kon Baye Fall gi ñuy wax mi dëgg. Baye Fall la ah, ah. d' accord léegi léegi liiru man ñëpp laa seqal jàmm. dama bëgg ñu ñëw ci combat combat bi ni mu ni mu taxawee. waaw ba daan jot su da ngaa wax ci moom loolu. te yak na koo def am na benn tabaski bo xam du ko fàtte bu mukk ndeysaan da daawaata djeg la yaakaar naa maa ngi taxaw gis ko géttu xar muy yeew cay jagawru cay euro vraiment euro dama ko mom benen affaire voilà vraiment moo tax léegi avant tabaski bi sax avant tabaski bi dafa wo Fallou sec Torino en Fallou ay lay jaay mu jël ñaari valise ne Fallou sec valise yi dama nga yobul mako Yves mu tan lu ko neex ma fay Matar waaw moom moom moom sama xarit la avant ay ay yii nii moom depuis yàgg na waaye moom sama xarit la maa ngi nuyu jabaram tam ca états-unis nga xam ne maa bëgg man rek maa koy daaneel jabaram yaay Mohamed bii la yaay Mohamed mhm. man maa koy daaneel mhm. ah soxna ay dara suñu jigéen bu baax bi ay soxna ay dara ñu koy <laughs> ñaanal yàlla defal ko jàmm ndeysaan soxna ay dara baax la baax la kooku sëtu yoon soxna ay dara la ilaha illallah sëtu waaye boo nga wax kooku ñàkk bu ñàkk kooku ñëpp bi la waaw ñëpp ko xam sëriñ la waaw waaw yow xanaa moo gën daa moom la defal ah, moo ma jaaxal man de man na ah waaw am nañu benn droit. waaw booy borom parti fatal foofu fatal foofu. d' accord léegi bëggoon naa ñu ñëw nag ci ci taxawaayu combat bi. mais damay wax Abdoulaye Diop xaas li mu def nii. ren dama gis lu yéeme. oui li mu def ren ci billaahi wallaahi xanaa min na lool maa ngi ñaanal jaaga rek yàlla bu séddale dara sa ak ñoom Mohamed Waly Seck Waly jox xaru tabaski mais loolu min na ko fekkee naa ba taay mu def ko loolu na ko waaw tabaski bi moom tabaski bi moom sëñ Ibrahima Kounde sama pap jooju moom oh. moom ngeen bu moo tax ma jal avance bi. moo tax ma jël avance bi. jokkoo nañ moo tax ma jël sa avancé. waaw eh, yow nag yow sa sëriñ te bàyyi. waaw non non waaye. saytaane nga ma. kooku kooku kooku gis uh-huh. uh-huh. xam nga loolu. bu uh-huh. baax la. waaw loolu mooy ñaareelu turam. mooy bon xale bi sama sponsor. mais bu siif ay sëriñ ñëpp. waaye siifu ma man bëgg naa man sëriñ ñëpp bëgg man ñëpp bëgg ñu ànd fa. Serif Tambédou tam maa ngi koy. bëgg naa ñu ànd fa. Serif Ndiassane moom daa moom Ndiassane. man mm-hmm. daje fa. dara dem. <laughs> Ndiassane nga xam ne ndeysaan sama waa jaama fu miinal boo yàqu ma laxat mm-hmm. laat. Mm-hmm. ab laxat Ndiaye. nga xam ne gàmm ak Ndiassane ndeysaan këram la ñuy nekk. macha allah mu def lu rëy ab laxat njaay léegi léegi Khadim. Euh, il faut aussi ñu taxaw ci Ablaye Diop Khass ci expérience. wala boog inspiration bu mu def. muy nit baax ba mën a taxawal seen combat yéen ñaar. loolu si lu rëy la. parce que seen combat pour tëggoon ko yombul woon. wax dëgg yàlla ko bëggoon bëri na waaw ñi ko bëggoon bëri na parce que defe naa ça fait deux ans ay indi añ ciy topp pour dëggu ko li ci mhm. mhm. oo naa ci sëñ Ibrahima Kounté mhm. Ablaye Ablaye naa ko ci maa ngi woo sëñ Cissé mu sëñ Babacar waaw di woo Ibrahima Kounta borom Ndiassane di woo Ablaye Diop xaas mi tëgg làmb ji di woo Serif Tambédou bàyyi laat borom iraada. sama waaja. d'accord léegi léegi léegi léegi Fadim waaw. di woo sama yaay ji soxna Nat Fallou Fall. soxna Nat Fallou Fall. Hmm. Hmm. Hmm. moom rek nga am sa di sama pare. kan la sama patron. sama xarit. ak sama ak uh, yow doog moomoo ko. Ah. Waly Baye Fall la. yow donc moom moo Wally Seck dimbali ma yow donc moom moo Wally Seck Wally Seck Wally Seck fu mu ko joxee dina ma jox mais Lirou bëggoon naa xam combat bi nu mu taxawee ah, combat bi lan moo taxawal moom moo gën di wax waxam yu eh, ñaaw moom moo dem moo dem ci Ablaye Diop hmm. kan moom lañ njëkk a jox avance donc non non hmm. xaaral ma expliqué hmm. ndeysaan maa ngi koy def maa ngi koy jaale <laughs> dégg ne damay tëgg combat muy dox ci suuf naan day eh, da nga bëggoon tëgg combat bi ndax gis na ma woo ñii sama kër mu xam ne dama bëgg a taxaw mu jaar xam na ma combat taxawaat na nag suba lu mu dégg ci internet lii mu def tegu ko fenn waaw waaw la sëñ si bu loolu bëggoon naa mu leer yow da nga doon dox combat bi pour tëgg pour tëgg ko am na ay nit yi ma war a def yëpp pour ba liiru ñëw ma mais kan moo kan moo jaar ci suuf wax ko xaw ma nu xaas def dem tëggi combat bi dina dina dina mais ku jaar wax ko xaw non non xaar ma xaadim xaadim mii ko yow ma woon tudd ma billahi wax a sa diggante yàlla tey. del wax dëgg del wax dëgg waxal dëgg. maa ngi jaale Balla Gaye baax na jaale waaw man moo ma jaaxal. sëñ di nga yëgee combat bi dafa mel ne. tey tey tey gi mu def tey dafa maa jaaxal moom. mosu koo def. wuyu ma. la demee. billahi wallahi waaw da ngay déglu moom la Balla Gaye dë di ñaanal sunu yaay yaay buri bàcc li yàlla ko yàlla xaare ko àjjana tey la woon juróom-ñetti fan yàlla ko yàlla xaare àjjana ñu nekkoon fa tey nekkoon fa muy meer bu baax euh, Balla Gaye sumbul ah, ak jabaru xaas mm-hmm. ak comprendre nga ñun ñëpp ñu nekkoon fa mm-hmm. après fekk xaas di wax naan combat bi moom wax dëgg yàlla mm-hmm. dama ko war a tëgg ndax ndax dégg naa li Xaadim Njaay sax daf maa mere mhm. ndax maa ngi dégg keroog mi toog wal faji di ma sànni xam nga noonu la mel day yàq dëgg xaas bi su ma koo mere yow yaa toog wal faji loo ko yekkul amul toogal ngóor soosu euh, Sadio loo ko yekkul amul d'accord léegi léegi léegi xaas xaas di waxtaanee loolu waaw nii mhm. loolu indi combat bi ma dégg après mu woo ko mhm. mu d'accord ñu daal di wax ñu juboo ci biir mu yëkkati jox ma ne ma téel ma dog ñëpp mais sëñ Cissé yow mos waxtaan ak ñii ci kombaa bi pour tëgg ko. xaas depuis mu gis ma woote ñii sama kër. Mhm. jël enveloppe jox leen. Mhm. mayun ma jàmm ci ñii ñaar yëg naa lépp. Mhm. daf ko dafa dafa bëgg nangu ñii ci yaw lii ci moo ne ci ay tànkam. bëgg nangu bu dafa leen bëgg nangu. lii rek ay tànkam bu xëyee bu ngoonee liiru nag teewoon na ko defoon na fi sëñ xaadim bi lu tax sëñ xaadim baxoon ko man ay sëñ xaadim ñaar yow yaa ñeme yàlla di daan ko yow nga sama jàmm waaye. sëñ bi na la xaalis sax dellu si la fay fay ko nii. ñaar ñii yàlla. mais ci ci ci ci ci ban combat ko bëgg dugal wala seen combat spécial la ñaar.

liiru ñoom Matar Diop suba teel ak ñoom Pape Diouf ak. maa leen di woo. liiru Cat Seck sama rak sëñ Cissé nee na waaw na ko lu rëy lu mu bëggoon de parce que combat bi bu fekkoon moom moo ko tëgg drapeau patriote la ko bëggoon tuddee. kon xaas yàqal na lu rëy drapeau patriote yi laa ko doon waxtaan naa ci dina ma neex loolu de loolu dina ma neex loolu sax ne ci dëj lu muy tëggi combat. <laughs> moo jaaxal nag. ci dëj <laughs> xaas nag tooñ nga ñu nag. man Lamine bu fekkee ni lii da koy yëg bàyyi yëg ci euh, biir. Euh. suba danañu dégg maag moom. xaaral man xaas xaas si boppam laay woo. am na beneen si boppam laay woo. parce que xaas mi li mu def li ma def sama xarit bi sëñ Cissé tamit war koo ko def. moom mi xam na lépp yëg na lépp moom yëpp yëg nga ko. danaa am ko ma woo léegi may de ndax combat bi ni mu ko defee ba métti. déedéet CNC laay woote direct. ah ah pour le. dama ko dama ko woo Lamine Seck boo man jour boobu. ci laay def sama anniversaire ci laay. génn da ngay jubilé. muy sama jubilé. Mhm. di ci fekkee yaa maa ngi lay woo jël téléphone bi ñu réglé problème bi. Mhm. waaw. <laughs> beneen combat la beneen combat beneen combat na <laughs> nga bëgg jubilé ci combat bii nii benn yoon. benn yoon waaw ok. Mhm. di ci woo sa jubilé moom xaas euh, Khadim warul yomb. warul yomb parce que wax dëgg yàlla li nga def ci làmb yëpp. booy jubilé moom. su commencé commencé bu rafet mu jugo ñaaw nag. non la def lu ñaaw def ah, dara non xam nga xaadim Njaay liiru xaadim day neexal làmb xam nga yéen làmb làmb rëg-rëg ak Sa Thiès yéen a ko neexal bu dul woon yéen làmb ji kenn du ko yëg yéen a ko neexal di jëy mhm. maa ngi ci woo ki fi ci Sénégal mhm. sëñ Muntaxa Bachir muy Mbàkke yu fay ah, ah jëwriñ Mbàkke yu fay kooku sunu papa la ah. nit ku baax la sunu baay la moo laa moo gét mm-hmm. kooku sunu baay la mm-hmm. li muy wax ci Mbàkke yu fay mm-hmm. nga xam ne Mbàkke yu fay kilifa la du moroomam sax du moroomam sa doom buy xew ka ka takk sa doom am na droit oo ku ko neex ci xewam pour ñu bégal. maanaam mbàkk yu fay li mu def droit am la ay doomam la doon maye. yaa ngi dégg doom yi ne Wally Seck lañ bëgg mu ñëw. mu ñëw fekkee ko teral leen. loolu kese la def. loolu loolu dafa loolu dafa am lu ci ne. dara da cee ne. Wally Seck moom la noonu am mbàkk. ku nekk ñaan nga yàlla. ku ne ñaan nga nga ñëw fekkee sax jour jour mbégte bi. vraiment loolu mbégte la. bu fekkoon mu génn àdduna nag. li muy topp di wax. yàlla kenn dégluwu ko xam nga ndax Mbacke Faye. ñooñu moom jaruñu jaruñu sax est-ce que nit ku baax la yàlla baaxal la nit ku yàlla baaxal la. ah mooy sëñ Touba fii ci Dakar wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ah, vraiment. kon Mbacke Faye. Mhm. loolu yëpp ak sa ginnaaw. ni mhm. la fi sëñ bi tegee noonu lañ toppee sa ginnaaw. Mhm. sa sëy bii nga maye sa ñaari doom yi. yàlla sëy bi barkeel. yàlla bokk sëy yi ñu takk si aras. Mbacke Faye dañ la koy ñaanal. man maa ngi lay woon ak sama bis bii. ma am ak ngóor sii ndax xam naa ne lii pexe la moo xamante dañ koo laal pour bu maa toroxal. kan moo kan a kan a ko laal moo rakkam Balla Gaye waaw. Balla sama rakk la waaye damaa mere mere sekk. <laughs> xam nga yow kon li nga wax nii yow la yaakaar ni ni nga mel noonu la ñëpp mel. <laughs> yow Balla Gaye loo ko mënta waxal wax la ko dara. xaas. Ah. xaas ñoo bokk fi ñu jëlee jàpp. ñoo bokk fi ñu jëlee ñoom ñaar. jël drapeau bi tuddee ko Balla Gaye mooy nar nañ lu doy waar ci xaadim <laughs> xaadim ah. mais bu la am looy ragal Ndiassane nga jëm Ndiassane laa jëm. yow am lay ragal yow préparé woo sax. yow Yves yaay bëgg a nekk seytaane de. Yves yaay bëgg a nekk seytaane ah, yow Ndiassane. yow defe naa sama doom jóge na Italie defe naa de. kan waaw defe naa jóge na Italie jóge na normalement tey la waroon ñëw de su ma juumul tey wala démb waaw waaw fatt na Italie ba mu ba mu fatt dem na Brescia fatt non non ñibbiseegul non ñibbiseegul def na le 29 Firenze ah, day tëggaat day tëggaat le 29 Firenze samedi bi boobu sax waroon naa dem macha allah jubóom ak promoteur bi garaaw war maa ko waroon présenté ji mais jubóowul garaaw ma ne dàll yi rek dàll ko dàll Wally Seck yi rek defar na concert waaw di gën njëkk ay waay njëkk njëkk njëkk aywa ngir yàlla la. Eh. gis nga ma xamal la mhm. euh, mag mu saytaane gën a bon. Mhm. lu baax wax lu eh, mhm. li mu def ci làmb ji loolu la bëgg a ñëw. indi man tasuma làmb ji si di gërëm waa si si moom. yëpp rek yëpp nga taxaw fii de waa CNG seen ay jeex nañ fi jóge. waaw maa maa tey. waroo wax waaw maa maa tey. maa ko wax waaw maa kontaanoo ci CNG ni ni doxalee. kan ci yow. man. CNG ñu ngi doxal normal. des na lan lan moo des. di ñaanal di ñaanal di ñaanal doomu père ba Mansour. Mhm. combat yii mu jëm. lan moo des yàlla dugg ak bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin. waaw muy muy nit baax waaye bi la. Mansour kii moo kii lay bëri ambulance bu kees. ak kii Garga ak Garga. ak Garga 2 Garga 2. ok moo tes lay bëre. Uh-huh. ak kii moo jabu yoof moo jabu yoof. ok ak Dame Sène. ok ak Dame Sène naar Sokas lay bëre. Eh, loolu neex na de at booy bi dëkk at booy bi dëkk jàmm nga Liss Ndiago. Liss Ndiago sama booy bi am ci ñaari mhm. waa Géejawaay. Mhm. Euh, Mbaytin. Mbaytin waaw da ciy bëri. Mhm. mbaytin junior mhm. mbaytin deux mhm. da ciy bëre mhm. orca da ciy bëre moom it di leen ñaanal su bis ñoom yàlla na yàlla may bi ndax promoteur bi ki tëgg làmb ji dafa nekk xale bu yaru bu baax doom père ba ndax euh, dafa def fii geste boo xam ne man du ko fàtte mukk te man na lu ndaw laay jàppee doomu aadama geste man geste laay jàppee dalaa bokkal dalaa bokkal ndax gis nga ba mu tëggee combat franc ak kii nu mu tudd soq da koo tëgg ba pare daa ñuy mm. woo. Mm. barke Sëriñ Saliou Mbacké mm. loolu sax la. waaw waaw. dama enveloppe. la mën a mel da ku baax la père ba waaw ñëw la bu wér di ko bëgg di ko ñaanal dafa demoon màkk a a wér a wér a wér mm-hmm. moo ci naqari lu ñu deful lu mat lu matalawu waaw xam nga CNG comme ni exemple mm-hmm. euh, ñoom euh, affaire u waaw metti na ma metti na waaw. metti loolu moom mbir yaa ngi koy kaas. Eh, non dafa metti loolu ñëpp a ngi koy kaas dafa da ngay mu ndaw. Mm-hmm. ak affaire ku ma am ndey ku ma amul ndey. waaw père ba tamit bu doom Mansour bu tëggee combat bu mel nii. waaw mm-hmm. bëgg a de Guiers. dañ ko ko a nangul. Mm-hmm. ndax loolu a neexal lamb. scientifique mais loolu bu ñu ko ko mooy face to ya loolu commencé na yàq lamb ñàkk face to face amul amul ku mu am ndey ku mu am. dëgg la ndax Mansour xale la boo xamante day jël xaalis. ba pare ba pare te damaa dégg mu dafa def geste bu rafet ci tabaski bi mm-hmm. dégg naa mbëri yi mu tëgg yëpp dafa leen jox xar xaru tabaski loolu moom dégg naa ko dégg naa voilà mbëri yu bëri te loolu mm-hmm. te loolu bokkul ci avance bi ah, bokkul ci contrat bi loolu geste boobu dafa rafet moo tax nañ ko ñaanal xale la nit su ñëwee ci làmb mm-hmm. di nekk xale di jàppale ay moromu jeunesse am di jàppale jeunesse dañ ko war a dooleel waaye waruñu ko faxasal di ko néewal doole ah, ak kii tam Ibrahima Diop Ibrahima Diop bu baax Kajoor ku baax Ibrahima Diop ku ñu war a ñaanal la. ku ñu war a ñaanal ah, ah, la vraiment sa goro. waaw non mu nekkee sa goro. yow dimbali ma nga am Ibrahima Diop sa rakk la ñoo koy ñaanal moom yàlla defal parce que ay cat moo ko jàpp bilaay ah. a ko jàpp waaw. yàlla na fi yem yàlla na naa pour ko ko de. ma ne ko. dama nga seet sëñ Cissé waxtaan ak moom. parce que munoo saa yoo tëggee làmb affaire am cet ku baax la vraiment. kii blessé wala kële blessé waaw. tamit sëñ Ibrahima Kounta tamit war na ko jàppale. ndax war a teg loxo la Ibrahima Diop. waaw ndax daaw ba ren muy dëgg muy. waaw vraiment Ibrahima Diop daal ku baax la daal maa ngi koy ñaanal yàlla. te ndeysaan mu ngi toog gëm yàlla rek non non ku gëm yàlla la. gëm yàlla la waaw ku gëm yàlla la ay millions. tabarki Serigne Ba ku gëm yàlla. kor la nag boobu léegi kenn ku mu wax. Mm. non non non vraiment mel noonu ku baax la. d'accord léegi euh, balaa ñu tàggoo euh, Serigne Cissé mm-hmm. combat bi moom loolu après beneen xeex la ci suuf. parce mhm. que xaas tam mënul bàyyi yow ba ngay waxtaanee sa làmb. Mhm. mu jaar ci suuf tëggu ko. nit oo na ma ne ma. sëñ Cissé mi ngi dox seen combat. waay daa am ci lu mu ne. mais bu mhm. ci jeex bu ko jeexalee. dina tëgg combat man loolu nit waxoon na. wax na ko yàgg na waaw ah, léegi lan moo tax waxu ko yow. la wooyee lan moo tax waxoo ko. lan moo tax ko ba pare nga taxaw di ko jëw. yow yaa si si ngeen umpale waaw. yéen ñaar dëgg la. waaw du ngeen déggoo li ma wax moom dafa ne man nekkuma fi woon. waaw hmm. mais du ngeen umpale. waaw dama lay wax dëgg la moom lan la wax dafa ne la man nekkuma fi woon la la wax. waaw hmm. waaw loolu la wax. waaw nekkuma fi woon su ñëwee. waaw day say gorog say mbokk say rak. Hmm. ñu jox la waxataan ak a avance. ko wax ne ma léegi dëkk bi bi micro bi micro bi. waaw doo ma waaw yow waaw yow mënoo dara waaw loolu mënoo ci dara. bi ko bi bi ko xaas di woo man maa ngi toog. Mhm. waaw kon kay jeex na. ko xaas di woo. Mhm. maa ngi toog. Mhm. Euh, bala ko xaas wax at la mu xaas yëpp dégg kon sa Cissé da ko doon dox mais waxu leen woon dara daa bëggoon mu sotti mu wax leen ko. waaw waxoon na ma ko ok day war ma koo te teew la day war xaalis di teew muy war day war léegi yow bi la xaalis wooyee pour la moo tax woowoo liiru ah, non non hmm. bëggoon na ko hmm. liiru itam bu demee ba xaas woo la da nga ko doon xaaral moo xaas seen Cissé non non déggoo wax bi de hmm. ci di bu ji tukki sax dama ci comprendre ñuy waxtaan man euh, après ñuy wax naan euh, fekk moom comme que moom taay day gën yàq der nit ñi rek. Hmm. sama gàcce ngeen bëgg man xam naa moo tax waaw <laughs> mu taxaw comme ni muy yàq der nit ñi. sama gàcce ngeen bëgg de waaye billahi yàlla dina ma teg yéen. ma daal taxaw léegi sa rak yëpp yaag sa rak ba liggéey de yëpp sama gàcce ngeen bëgg. <laughs> nee na bu laajee mu tukki sax dina tukki. bu laajee mu tukki sax bi lañ naan woyu giri bi lañ lay woyal de bi mooy sa dernier bi mooy sa dernier. fan lay def laaj ko ma fan lay tukki fan ngay def fan ngay préparé ko. xam bul xam foo koy préparé ji. moo njaay moo njaay lay woo directeur <laughs> li ma wax sëñ Cissé laa lay wax yooyu bu moo Ndiaye mu def ségrégation xaar ma wër moo jaay waaw moo Ndiaye xaar ma wër ko xaar ma wër ko. ñoom Prat ci ñëpp maa moo jaay moom mu duggee bu duggee léegi problème bi réglé ndax ñaari visa ak ñaari billet lay jël ne leen ñëw leen Amérique moom xam naa ko ci moom waaw waaw. moo Ndiaye moom bu duggee léegi problème bi jeex. daal ku ne ci bàyyi ba Ablaye Ablaye maa ngi koy soxna maa ngi leen woo ci combat bi ñoom ñëpp. vraiment vraiment Ablaye sama booy États-Unis ñëpp maa ngi leen nuyu Ablaye Fall. ñëpp moom la c' est ci moom mi mu war a wax États-Unis sama booy. dañuy gis nga ne ku nekk ci dëj. borom ay caaxaan nga ne ku nekk ci dëj. <laughs> waaye loo ko wax tooñ ko. moom mii sax bu ko bëre non non moom depuis ma recevoir ñii sama kër. moom mii lépp moom la yi muy def yëpp yëg naa <laughs>

ba suba ak jàmm. d' accord sëñ Cissé euh, lan ngay wax tey am naa ne li ñu des a bëreetul. lan ngay wax tey ci fii réew mi toll. ñaan yi nga xamante ne war nañ ko sàlloo rawatina nawet bi. Mhm. ndax bu nawet ñëwee moom. Mhm. dèjà gis nga nawet dafa dugg rek. Mhm. ñu ne gaal toj na. am ay xale yu ci génn. àdduna lan ngay wax tey ci en tant que ñaankatu yàlla. ci yu ñu war di moytu wala ay sarax wala ay ñaan yu ñu war a def. xam nga nawet da di mbir moo xam ne dafa diis lool. doon mbir mu compliqué nag mhm. moo xam ne bu mosaan di ñëw mhm. mag ñi dafa am yuñ ko daan tertoo mhm. xam nga nag fii ndakaaru la waaye bu doon ca dëkk ba nga yor sa njabootu bopp dañ naan taw bi njëkk a taw nga dikk ca ndox moom mi bind saafara am na saafara booy bind raxasee ko ko mbooleem koo xam ne sangu nga ca taw bu njëkk boobee diwén dina la fi fekk mhm. waaye tey ji tey boo toogoon fii ci ndakaaru mhm. da ko wax dañ naa la kii moom rab la xamee wala dafa dof mhm. waaye toll nañ ci jamono joo xam ne kenn ku ne war na ba xel boppam ci lan wuti kaaraange ci lan ndax kaaraange ci lu mën a xew mooy buñ ne woon ayib tey a xew fii ci ndakaaru muy ay jafe-jafe mhm. yow mi nga xam ne am nga kaaraange ci sa bopp mhm. da nga bokk ci a koy nettali mhm. waaye ci waxtu wi ñu toll tembe bu fekkee ne nag yow amula ak kaaraange gu mat sëkk rawatina ak fi jamono ji toll nga xam ne yu bon yi bari ci dëkk bi ci ay jinne seyaatiin yu fi ne te ay xam-xam yu bon yu nekk ci dëkk bi nga foog ne yii yëpp di am ci dëkk bi deexin bu ñaaw gi ci sénégalais yi nga foog ne asaar la du asaar ci loo xam ne ndax démb wax naa ko nit ñi ne leen bu fekkee ne dëkk gii ñuy dëkk fii ci ci pegg géej da ngeen foog ne asaar la du noonu ndax léegoo-léeg nit dox ba ci géej jël gaal jaw gaal ba ci digg géej am yoo fa sànni yow mi bëgg a traversé géej nag bu fekkee ne sa bopp woyof na mhm. doo yegg mhm. te ñaareel ba it moytul nga woo sëriñ mu seetal la seet goo xam ne naan la traversé ndox mi leer na mhm. mu ngay wax loo xamul mhm. tukki biñ koy def ci avion lañ koy def mhm. wala nga seet noo jaare ba dem waaye nii ñu bëgg ko def du moom kon nag dañoo toll ci période boo xam ne di ji période kaaraange la ndax réew mi tàng na jër te tàng gi nag ku ci moytu ci deeyu ñàkk xorom yi rek ngay dee kon danoo toll ci jamonoy kaaraange fexe mucc ndax sama sëriñ ba sëriñ Babacar Si daan na wax ne boo ñu ne ko si malik ban ak ban mu ne fexeel mucc ak mos mucc ak mos nag mooy mhm. fexeel bu ñu ne président Macky Sall am na lu muy joxe ca palais ba mhm. nga fexe ba bokk ca ñee am mhm. buñ ne am na luy xew suba ci ndakaaru ci ay ñaaw téef nga fexe ba mucc ci lii mooy àdduna kon bu ko defee yooyu ci nawet nag bu daan jub si dafa am lu ñu daan bind ci law anzalnaa haazaa qur'aanan alaa jabalin la ra'aytahu ba ilaa aaxiri am na saafara buñ cay bind buñ ko bindee jox la ko nga sangoo ko incha allah lu mën a xew ci atum nawet mi yow moom jàmm nga cay fekkee waaye doo fekkee musiba incha allah dem sob na lu yombal ay mbir. ay mbir. ngay uti dara mu dëgër comme nga ne xaar ma forcé dem uti dara mu dëgër. waaw loolu dafa am benn am na téere boo xam ne bu ñu la ko bindalee mhm. téere bu ñu la ko bindalee sa tànkum ndeyjoor bi nga koy def mhm. bu fekkee ne da doon doxi dara ngir bëgg mu sotti mhm. boo ko doxee ca loola dana dana dana dana sotti baat ba nag bu ñu ko doon bind mbind ma sax bariwut waaye boo paree ab téere nga koy def rek ko ci sa tànkum ndeyjoor fekkee ne dafa am looy doxi comme par exemple nga doon ñaani soxna ba ñu gantal la insha allah boo demee yàlla mën na koo sottil bu fekkee ne leneen ngay lijjanti ji it loo xam ne ni mënu koo tudd nga takk ko boo demee yàlla mën na la koo sotti waaye bu fekkee ne ci luy yombal ay xéwal lu mel ni wërsëg bu ubbeeku loola it dafa am waaye bu fexee doxi dara ngir bëgg mu sotti am na luñ cay bind ci sóoratu buroo yi la ñuy bind buñ ko bindee ab téere jox la nga takk ko ci sa tànkum ndeyjoor insha allah loo doxi yàlla mën na koo sottal ndem soob na yàlla ñii këyit soxla këyit tey mu dëgër ndax am ñoo xam ne yàgg nañu bitim réew mais pour ñu am këyit ba léegi jafe-jafe la gis naa ko fa def trente ans mm-hmm. trente ans mm-hmm. mënul am këyit trente ans Amérique ba tey mënul am kayit. sama sëriñ sëriñ Mansour borom daara yi. Mhm. bàyyi sëriñ maam Malick sama sëriñ daf ma waxoon ne ma. Mhm. adduna nag siise ma ne la mbay ko mu ne ma. bu fekkee ne nit dafa nekk ci réew bàyyeekoo na Sénégal dem na Espagne wala Amérique wala Canada. Mhm. dem na fa kayit yi ca dëkk ba bëgg na ko waaye mënagut koo am. def na mboole mboolemi effort mënagut koo am. sëriñ siise mënul tëb rek ne la di nga am kayit. ndax nit léegoo léeg am tooke yu nekk ci jëmmam. ba war a kon foofa la ñuy wax analise da cay am waxtaan wàll muy mbirum seet mm-hmm. day am wàll ca kooka mm-hmm. siru këyit nag bu ma ñemee fekk nit ku toog ma ne la mën naa la ñaanal nga am këyit mm-hmm. wax naa ko guddi wax ko bëccëg dama koo sante waa kër maam xalifa ñas muy lew na ñaseen ndax siru bu wér lañ ci am ci nit koo xam ne bu dee da nga am problème mu papier yoo xam ne dafa të ginnaaw buñ seetee sa yaram ba nga xam ne bu fekkee ndax euh, xam nga xëy rek wax nit ki ne ko di nga am këyit dafa doy waar la ndax bu fekkee ne nit ki yaramam setut mënul sax am xaalis nga da nga am këyit fa la ñeme yàlla toll fa la ay fen dalee mhm. kon bu ko defee da ngay seet aw yaramam bu amee na am na lu ca war a jiitu ci lu ñu war a dindi ñu mhm. dindi loola raxas ko ba pare raxas yaram ba mu set mhm. ndax ndab bu setee a neex a yekk dara te bu jekkee ñi ci tiim di lekk danañu kontaan kon yow mi nga xam ne bëgg nga këyit Serigne Cissé né boudé da nga am problème ci réew yi dañuy xol say mbir. ba paré buñ ko xolé ba paré ba gis né yow mi da am yu war ci mhm. yow. ñu def ko. Mhm. buñ ko défé yoyé tilim tilim yooyu bu dindé rek. Mhm. bo déposé won kay ñu yéx la tontu. keroog buy tilim tilim yooyu dëñ ci sa yaram rek. da ngay gis nga commencé dossier bi commencé avancer bala yag yalla jox sa kay inshallah allah mbirum télé bi aussi. mbiru télé. kattan nga xamante ne dañu am problème kattan <coughs> waaw. <laughs> feebaru gars <coughs> uh-huh. waaw. am ko ku mu sa Hmm. ah ku mos a feebar ku mos a tële. Hmm. ah kooku moom am naa témoin am naa. nga boole ko moom. ah mu faj ko. après. ah mu tane. Hmm. kooku la. ah xam ka ma xam na boppam. da ngay wax kay mu leer. ki amoon problème de moom. da ngay wax kan la ki amoon problème de xam na boppam. Ah, waaw ki amoon problème daa xam ne borom garab bi daal la ngay taxaw moom. amoon xam naa ne xam naa wax. ki amoon ndoxum siti. Hmm. xaaj na xaaj. ndoxum siti. am problème léegi mu mi ngi lay nuyu. Ah, <laughs> te <laughs> jàppale ci mbaalam. Hmm. d'accord ma bëggoon léegi sëñ si sa jeexal. Euh, ci ci ci mbirum ñaan yi. ndax nak mom mënul ñëw fi waxtaan ba paré té du baxé nit ñi li nga xamantene euh yalla daf ko ko may. barki Serigne Fallou mbacké may yaaka barki Serigne Fallou mbacké may yaaka ci mako gëna dëgër fëng. barki Cheikhul Khadim. billahi deux fois la la da d'accord te de day dëgër kecc. sa diggante ak yàlla sa taal bàmmeel daan deux fois. parce que ma. fan sama dama. Eh. sama baal ma benn loxo laa bëreeg moom. mais ku daan. ah benn loxo laa bëreeg yow. mais ku daan waaye benn loxo laa bëreeg yow. am dem mi bëri benn loxo gis nga ko démb. wóoruma de dara wóoruma. d'accord léegi ñu bàyyi sëñ Cissé jeexal foofu. comme ça après mu mu baaxee gars yi numéro bi comme ni mu koy defee. waaw euh, xam nga su ko defee euh, képp koo xamante ne soxla nga ko mu wala. dafa ci am ñoo xam ne. Mhm. man damay wax ne sëñ Cissé boo gisee foo ma woo ma mën a ñëwaat. Mhm. li mag ñu yoroon rek mission boobu laa wéy di ko continuer. Mhm. yokk ma ci wàññiwu ma ci. da nga daan gis mag mu am soixante-dix ans. muy ngénte gune mm-hmm. yi léegi mm-hmm. da ngay koo xam ne vingt ans lay am mënul ci jigéen dara mm-hmm. walla ñu jébbal ko war a takk soxna tey tey jii di woo sëriñ si ne boo ci jàpput làmbaay ñaaw bu fekkee ne nag yow danga nga am problème mu néewum kàttan dafa am bant yu ma ciy joxe man ay bant man nag joxewu ma sunguf joxewu ma ndox bant looloo tax ñu mag ñi daan jëfandikoo bant yooyu nag ay traitement ndax damay dégg nit ñi ne maanaam ngóor a faj ko dafa yomb yomb yombul yombul dafa am loo xam ne mhm. bu bëgg lu neex ni tax ba nga yombal ko wala bëgg xaalis ba mu tax nga toog naan dafa yomb eh, am na ñoo xam looloo tax ñu collé sëñ si sa rap nanguwuñ ko collé traitement bi mhm. ngay ñëw jël ko ci man mhm. boo koy jël bu soobee yàlla. Mhm. li des ci sa dund yow doo ci néewati kàttan. boo defee traitement normal li ma amul effet secondaire. ok ba ngay xam ne loola garab yu baax la bu fekkoon ne da nga lekk ñam bu ne ci sa biir. Mhm. Mhm. ngay jëfandikoo garab yi ma lay wax. benn dana génn ci ñaari façon. benn mën nga doon loo xam ne da nga koy wacc wala nga dem toilette. yaa ngi dégg te sëy di ta koy def bu fekkee ne da nga ami hémorroïde wala siti yooyu nag hémorroïde ak siti mag ak rakk lan ndax ci siti lay déparé mooy dem ba nekk hémorroïde léegi li nga gis koo xam ne yaramam day lakk di tàng yaram wi di karaas euh, bopp bi di karaas wala nga dem ba ci kam yaram bi di xolleeku gis nga nag ni muy lakkee sa yaram bi bu dee ku góor ki noonu lay toggee mën yoon lu góor di yëg nag mën na yëg bànneex daanu def lépp waaye doom du sos ok kooku nag bu fekkee garab yooyu ngay jëfandikoo mooy dem di raxas sa deret mhm. euh, sa sidit mhm. ni mu lee da ngay dit koo xam ne sama awra day delloog et cetera mhm. kooku nag la waral awra ba kenn yóbbul ko fenn mu ngi ci yow waaye sidit yi ñooy dem ba dellu dootuñ amati kàttan garab yooyu ngay naan nag ñoo lay dimbale may la force kon yow mi nga xam ne loolu sa problème la da ngay fexe rek jot sëriñ Cissé boo ma jotee jëlal traitement bu dee ku jigéen ki noonu lay d taxaw ci butitu njurukaayam dem ba yooyu yëpp ay la yoo xam ne dañ koy def ku mu yitteel rek nga fexe jot ñu mhm. ak yi wax yëpp ak yeneen yu dul yooya mhm. ku mu ci yitteel rek nga woote insha allah ñu wax la ko bu dem ci numéro téléphone yi 77 mhm. bi nga xam ne ku ci woote jot loo soxla te nu am ko la ndem soob na yàlla insha allah macha allah am na solo euh, lan ngay jeexalee balaa balaa woote pour seen combat bi waaw. combat bi nag moom neexul ma. ndax dëj ku ci ne da xam ne ci dëj nga ne. vraiment ak goro dafa foor. goro dafa foor ku yëkkati mbakkan jox la bu dee da ko war a mbakkal ba yooyu yëpp jàll leneen looy def nga def ko waaye bëgg coow tax na combat bi yaa koy tëgg danaa ko yàq réew mi yàlla na fi yàlla delloo si jàmm. damaa Abdoulaye wax yàlla yàlla tàppe xol yi. Mm-hmm. mbooleem saalum saalum yi toogoon di seetaan ñëpp ñëpp ñu ngi mm-hmm. leen di ñaanal yàlla mm-hmm. rawatina it nag waa diaspora bi nga xam ne <laughs> dañuy topp sëriñ si mu sëñ Babacar maa ngi ñaan yàlla ñoom ñi nga xam ne tukki lañ def am rek leen arrangé yàlla yàlla leen am ña amul kayit it yàlla may leen kayit mm-hmm. ña amul it euh, liggéey yàlla may leen liggéey ba ñu ñëw ci njaboot gi mm-hmm. bég naa ci liiru bég nañu suñu xol sedd mm-hmm. na yàlla taxawu la gën moom li ma lay wax yow du ma la sant dama lay ñaanal sa émission la waaw sama émission la te bokk nga ci samay fierté ndax émission bi ku ma mën a gis ma toog fi damay santaat yàlla gën a nawaat sama bopp kon fa tabaarakalaaw yàlla yàlla barkeel soxna si ñoo ngi lay bégee bu baax bonne continuation ndax mbir yi baax noonu nii la mhm. yàlla na a gën a barke rek ci barke sëñ Babacar suñu xol sedd na mhm. Mhm. jërëjëf di siyaara suñu sëriñu bopp sëriñ maam Abdou euh, euh, euh, si bu bu soxna Ndey Marème si bu sëriñ Mbay si Abdou bu maam Abdou ñoo ngi koy nuyu baax di ko siyaara xam nga di ñëw émission ànd ak sëb sëriñ daa neex dëgg la sëriñ bii ma fi déposé macha allah deretu alaaji Malick tey moo ma déposé moo tax mm, borom daara yi maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool wér mhm. naal yi bàyyam amoon ak yëpp yal na ko yàlla kàttanal ba mu def ko ci dara gi sëñ Babacar bég nañu amiin jërëjëf euh, lan ngay wax maa ngi nuyu Ablaye Diouf bu dip nekkoon dip dip sécurité Ablaye Diouf nekk ci Amérique di liggéey ndeysaan nekk fu am mhm. jom mhm. ak jum sama booy bi ak Ablaye Faye ñoom jum Ablaye Faye laat laat bàyyi la nga jeexalaat non non nga tàggatawaale non non ah, baax na <laughs> <laughs> nuyu sëñ Cissé mu sëñ Babacar mhm. nuyu sama jigéen mhm. di ko ñaanal yàlla nuyu sama adversaire di nuyu tamit man de nuyuma la. man de fayuma la. tey moo waral lii. Mm-hmm. di ko nuyu. Mm-hmm. di nuyu Pape Fall. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla. yàlla defal ko jàmm. amiin di nuyu sama doom Waly Seck fa mu nekk ci Italie ak groupe am yëpp. yàlla na leen yàlla defal jàmm. ñu ngi jàmm ñaanal yàlla. bu baax. sëñ Ibrahima Kunta. maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam. jàppalañ la amin combat bi nag si ibrahima mm-hmm. am na lu ñu waxtaane tey mm-hmm. lépp mi ngi sa loxo mm-hmm. ndax kii ma Ibrahim lool toroxal ma rek la bëgg fit waa ngi jom si Ibrahim sëñ ibrahima kunta de sëñ ibrahima kunta de ñëpp la fi nekk ñëpp la fi nekk yow sëñ ibrahima kunta moom moo man dinaa fa dem sëñ ibrahima kunta rek <laughs> kenn du moom ay sëñ ibrahima kunta sang la de ah, bu baax la sëñ ibrahima kunta ah, sama papa la ah? sama papa la sunu papa la sama papa la man sama papa la man sama papa la man sama papa la liiru bàyyi ma man bàyyiwuma la sunu papa la doogu féetoo yow donc sëñ Ibrahima Kunta. sunu papa sunu papa la. daam eh eh liir bàyyi ma sama papa. bàyyiwuma da da dafa am dafa am fu mu jaar seen waay kii eh. dafa am fu mu jaar seen waay kii daa fu mu jaar ak ñoo nekkoon ci guddi gu ba sekul. Hmm. sëñ bi génne leen ci ñoom xam ne. sëñ Ibrahima Kunta sunu papa la de. Hmm. sunu papa la de ah, ah. naa la ko dee. naa la ko dee. yaa ngi dégg ah, di nuyu population Thiaroye Géej yëpp di mm-hmm. nuyu samay doom mm-hmm. yëpp maa ngi leen nuyu mm-hmm. di nuyu population Thiaroye di o Kéba Kéba combat bi Pape Abdou Fall maa ngi lay woo Kéba Kanté frère xoolal ñi la doon xas démb at barki démb dina wax bu ñaaw tey suñu la tàggee am na lu ko waral ay <laughs> Kéba yaa baax yaa gore ay Kéba Kanté di nuyu As Ndaw borom Ndoukoumane. As Ndaw waay As Ndaw borom Ndoukoumane kooku Ndoukoumane transit. ndeysaan nangoo liggéey bàyyi joojo ndaw. Mhm. yàlla defal ko jàmm ak taw féex. amiin foo gis muy dem. bu mhm. laajte ci alxuraan rek lay dox bàyyi As Ndaw. Modou Dieye Sène mon ami mon frère. nga xam ne man samay patron ay Modou Dieye Sène son patron Modou Dieye Sène. Papa Abdou Fall. américain lañ jël ca kaw kan eh. macha allah. taaru <laughs> tabe. jëy seen de tubaarikàlla masàlla fàtt faalewul njool jëy euh. euh. euh. faalewul njool jëy faalewul njool de après liiru nga ñëw jëy na faalewul njool faalewul njool de leen naan gàtt saf yaay dina ko weccam njool mu tooy ay jëy Modou Jëy seen sa waaj kenn du moom hmm. kenn moo mënta digérer Pape Abdou Fall man mënoo maa jaxase Pape Abdou Fall yow saytaana nga yow mi yaay saytaana ndax yaa fi nekk naan Pape Abdou Fall nii Pape Abdou Fall naa naan dafa njool sa kaw waaw am naa droit na nag sama patron am naa droit nag ne ko gàtt saf. am naa droit ne ko gàtt saf. njool njool mu tooy. yee gàtt saf. yaay du ko wéccat njool mu tooy. Eh, eh. ay Modou Dieng seen ndaama yëgul njool. ay ah, ndaama yëgul njool de. Eh. d'accord ah, nga jeexal foofu. Ah, mhm. xam nga. di nuyu Samba Diop. Mhm. sama xarit. Hmm. capitaine u gaal la di nuyu Sambay ñuy ñoom Njaw hmm. di nuyu ñëpp képp hmm. kuy capitaine gaal nekk caari géej. maa ngi ñaanal yal na la yàlla defal jàmm. amiin amiin yaa xam li nga bëgg ci géej gi ko. yal na la ko yàlla defal. amiin sama rakk bëri yéeg ñëpp. maa ngi leen ñaanal yal na leen yàlla defal jàmm. ku fa am combat ku fa amul combat yal na la yàlla may combat yàlla may la ndam. di wax ne bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk. mais mhm. dañuy réeroo dañuy àndal. njoon mhm. mhm. c'est mon frère. yéen a woo ko jàmm de. barki de mooy Ndiaye. am nga ak Lac de problème. Lac de Guiers suma rakk la la Lac su ma neexee. yow Lac de Guiers suma rakk la maa ko maa ko la dëgg su ma rek maa ko yar comprendre su defee li mu am loo xam ne mu def ko neexuma am naa droit wax ko ñoo nag loolu la def moo ko sëñ Cissé wax lu am solo mu ne la communication boobu ma gis ci yéen ñaar ak moom mi moo ko dëkkee yoon mu sa def lu ñaaw moom mi moo ko dëkkee déglu naa communication waaye si xaarim yow fi mu toll caaro yaa leen téye ñoom ñëpp xamoon pour xale yi ndaw yi que montre nga xam sa dooma ko war a takk ngay takk montre yi ci li nga sol dafa ànd ak montre bi lii jiin la àndal ak t-shirt montre yi dégg nga aywaay wala ma may la montre bi. may ka ka waaw. may ka ka may ka ka. ah indiloo ko cadeau ci Amérique bi. moom fii la jógee États-Unis. pourtant xoolal yoon wu njëkk bi pourtant ndeysaan ay dàll la ma digoon. ba léegi indilu ma ko. waaye joxuma la xaalis ba ndaje aéroport. joxoo ma jërëjëf sa diggante ak yàlla laajal la amul sekk. maa yëkkati ne ko puusal bagage. Hmm. ma joxo booy bi filmé mu naan bul filmé. <laughs> d' accord léegi sëñ Cissé yaa ngi doon communiqué lu am solo. Ah. te loolu man maa la ciy gunge incha allah. Hmm. xam nga xam nga sëñ Karim li liiru wax nii mhm. sans nag bu caaxaan jeexee dëgg des mhm. yow caaro yi ñoom ñëpp yaa leen war a nekk sa kanam gi sëñ yaa ngi dégg mhm. jiital leen bàyyi ma njoon nit ku baax la mooy deuxième turam ah, nit ku yaru la tasaaroowul te yow lii ma lay wax yaa ma gën a xam ndax yaa leen yar kon caaro yi waaw waaw ñoom naa xam naa leen bu dee rëg-rëg xam naa ko ñoom ñëpp xam naa leen waaye li ma bëgg mooy ne bàyyi ma njoon combat xam bii nang ko dar yóbbu ko stade yaa ngi may dégg nang ko dar yóbbu ko stade yàlla dimbale ko mu xam ndam ko defee ci sa ginnaaw jàppale la sagal la ci lii rek laa bëgg man bëgguma leneen te yow suma nit nga te bëgguma génn kàddu goo xam ne dana déborder di ñu ne bàyyi ma ñoo euh, ne lii wala suñ xaari ma ne lii nga wuuf leen say rakk lañ say doom lañu bàyyi yenn kàddu yi li ma lay wax tout le temps rek nga sédd ci cër sa doom ji ñu doon maye ki démb ay kilifa kese ñëw dar ko maye ko nga sédd ko cër ca loola bu ko defee nga dar leen say rakk jiital leen dimbali leen ndax yaay seen bàyyi mm-hmm. bu ñu la gisee leneen lay def ci ñoom ndax boo ko defee rek defe naa ne ndam la lay jural waaye du la jural leneen lu dul loola te man loolu laa bëgg waaw macha allah liiru lan ngay jeexale waaw maa ngi gërëm waa Géejawaay gépp gépp bàyyiwuma kenn sama Bougazelli mooy sama sponsor ci combat Bougazelli yàlla na ko yàlla defal jàmm d'accord taalibe Serigne Touba boobu taalibe Serigne Saliou bu bëgg Serigne Touba mooy Bougazelli Bougazelli yàlla na la yàlla defal jàmm yàgg ngaa jëf ci Géejawaay ñuy suul jëf suurkatu jëf yi ngeen doon yàgg naa dimbale waa bëri géej waaye dañuy wax suurkatu jëf bugaatali gërëm waa géej way gépp mhm. géej autorité yi nekk géej way gépp mhm. ku ci mel ni Lat Diop mhm. maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaar gis naa ni muy taxawoo xale yi Aliou Sall gis naa fi mu nekkoon ni mu doon defaree xale yi ba ñu nekkee euh, noonu la fi di jàppale xale yi gu dëgg ci ku am combat bi ngay jàppale Malick Gakko yàlla na ko yàlla dafa jàmm Ahmed Aidara moo fa maire yàlla na fa yàlla teg maa ngi koy ñaan mu ci ciy xalé yi te koy def. Mhm. ñom rasim talat ñom Fouta euh, mhm. sama mhm. euh, pam Mama Fall. sama frère douanier bu mag bi ah. waaw pam Mama sama frère. comprendre nga. Euh, Anaw Moussa Fall. bu ah. er, borom RTS. yow dama ne man ko yow sama di nuyu. di Euh, ah, ñoom ab Ndiaye. Mhm. Euh, dégg nga euh, kii nu mu sama waa ji. Dieng Sène. non kooku suma patron la. Mhm. Modou Dieng Sène. Mhm. kooku suma patron la. suma xarit la Abdou Fall lépp la Modou Dieng Sène. maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax. di gërëm Guèye Ndiaye sama rakk sama xarit. borom feer yi Guèye Ndiaye. waaw maa ngi koy gërëm bu baax. ak Mbaye Diop borom Touba. Amérique borom Italiano maa ngi gërëm bu baax a baax ñoom kii nu mu tënati Abdou Aziz Ah, euh, euh, Andaw. Hmm. Ah, kii ruptu Masata. grand hmm. Masata. Hmm. vraiment grand Masata maa ngi koy gërëm baax di ko ñaanal. ah kon Ndiak. sama frère ah barki Demba Ndiaye borom ngéntal rëy ndeysaan. maa ngi koy ñaanal. Ah, euh, sunu doom jooju ñu doon ngénte yàlla na dund ba ñuy dem ban koy ñaanal jabar ndeysaan mu dubbee ko papaam. amiin bàyyi ah yàlla na dem man koy ñaanal li soxna ah, ñoom Baye Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen gërëm bàyyi ma mm-hmm. kenn mm-hmm. képp ku nekk autorité Guédiawaye rakk yi champion yi nekk Guédiawaye yëpp mm-hmm. Balla Gaye ak Lac de Guiers ñoom saa Thiès ak sama doom ji Jackson dafa am combat yàlla na ko yàlla may ndam Jackson naanaan boobu waaw yàlla na ko yàlla may Marley waxi nopp xale am combat ak géej way gépp di ñaanal sama dom ju papa. Mhm. vraiment sëñ Seye dégg na leen ci wax bu ko waxee loolu sama xol dafa mhm. papa boy jinné jinne man bëgguma koy tutal de. xalé bu yarul xalé bu yarul la ko yàlla jàppale booy papa mhm. sama dom la sama dom la c'est mon fils. maa ngi koy xaar ba xam ak combat rek. mu am jabar ju baax. barke Serigne Bamba. man nit sama jabar ju baax. voilà ba papa mi bu fekkoon ne. moom ak Ndeye Gueye. yàlla def na doom juddu ci. doom ji mën naa ne nitu yàlla lay doon. ma ne ko lu mu ne ma Ndeye Gueye suturaal na papa. bëgg na ko fonk na ko. wax ko ca kaw wax ko ca kaw. bu fekkee ne ki la yàlla boole ak ku mën a doon. téye nga ko suturaal ko. sëñ Cissé du bëgg nga am defet te nit ñi dem nañ ba topp Ndeye Gueye ak wax ju ñaaw ba Ndeye Gueye génn réew mi. dëgg la gor pire. day wax wax ju rafet. nit ñi naw la. waaye diggante bu war ko yàq hmm. kenn waru koo yàq. diggante dañ ciy wax kàddu yu rafet. Hmm. kàddu yu baax. Hmm. te gis nga kilifa lenn rek lañ koy nawee mhm. mooy kàddu yu baax dëgg waaye kàddu yu dagg diggante kilifa du ko wax mhm. bi ma ko déggee nag mhm. man mbokk maak ñu bari ndax man lim yéeg-yéeg si laay dem la bi ma ko déggee it ak wax ji ni mu demee si laa jël samay engagement wu bopp ne kerek bu ko yàlla mayee ci combat dinaa ci jël samay responsabilité ba yàlla may ko ndam envoyé vidéo kon jeex envoyé xool sama xol bi def séddu ndax oh, ah, ah. uh, papa suma doom la man suma rak la ñëw waxoo ci ci amérique ñëw ba fi doo ko wax amérique xoolal xoolal xoolal ko yow rek nga sa ful ko papa suma doom la ma koy ñaanal yàlla defal ko jàmm li ra wax waxal aratan waxal aratan ñu naan waaw jox ma kaas bi waaw aratan waaw su amaatee benn combat yàlla ko yàlla may ndam lii rek cat la rek <laughs> ko la ko la rek fi yem lay fi fi di ñaanal sama rek yi amawul góor combat géej way ñoom gi ñoo yàlla na yàlla may combat Alioune Seye combat bi mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam Jackson ñoom Marley mbaytin mi war a bëri dimanche mm. a ah, ah, ah, mbaytin junior mm. ñoom ñëpp yàlla na yàlla may ndam Baye Ndiaye am na combat mm. xale yi am ñoom Bou Siteu xale yi am combat géejoo yëpp yàlla na yàlla may ndam yàlla na yàlla may ndam bu Siteu xamatuma euh, jamaykee moo ko tëgg. kii bi bëri am na xam naa ne daal biir géej waay yàlla fa jàmm sax. <laughs> problème gu rëy. <laughs> non c'est vrai problème gu rëy. géej waay gépp euh. yàlla na nu yàlla jàppale musal ñu ci cet ak làmmiñ nit ñoo bokk ndey bàyyi kenn mënu ñoo jaxase kenn mënu ñoo jaxase sambay waaw ginnaaw ko day lay doog ñëw sax amiin naa Malick Fall maa ngi koy ziar bu wér a wér a wér ah, Malick Fall ñëw sax ci ah. càmmeñu xadiloo ak rama ah. d'accord sama jigéen ba mati mhm. ah euh, ñoom yaama mhm. ah ñoom ñëpp waa mhm. Amérique waa consul ba waa 116 bàyyiwuma kenn kenn mhm. sama booy ñoom Ablaye Sarr ñëpp maa ngi leen di gërëm den sax ku ma tudd sa tur rek maa ngi jégalu di nuyu petit hmm, doomu ndey xadaaf yi di ko gërëm baax di gërëm ñëpp daal d'accord soo fi lim na da ngay juum jërëjëf d'accord léegi léegi prochain am naa combat nag prochain face to face bi maa ngi wax naa ñëpp am naa combat Ablaye Diop xaas bu fekkee sëñ si jugul ci yow ba combat bi yàqu baax na maa ngi leen koy wax nag xaas xam na ma dofu jinne jàpp ko xam na ma jinne jàpp ko xam na kim ko seet il est connaît xam na ma bu baax. ah bon. daal man moom su ma sañoon yaay tëgg combat wax dëgg yàlla. li ma ci man yow laa ko yéene de. li ma ci man mënu léegi beneen face to face bi maanaam plateau bi ñu war a defaat comme léegi CNG ne amul face to face mais plateau bi ñu war a defaat spécial moom mu ñëw toog. ki ñu tuddee drapeau bi toog Xaadim Njaay ñoo toog sëñ si sa ñoo toog mu nekk ñaari combat ci biir combat. waaw waaw. may organisé lool sëñ Cissé ak Ablaye Diop xaas liiru ak Xaadim Njaay Balla Gaye ñoo toog borom drapeau bi. Balla man lay faral ndax Balla man la bëgg <laughs> Balla Gaye. Balla nit ku baax la man la bëgg. d'accord téléphone Balla drapeau bi ñu euh, ko sax neexut ko. <laughs> Balla de xaas la moom. Balla peccor goom bi sëñ si ne tuddee tëgg ko tuddee ko ko. moo ko gënal kii ko tuddee. te boo ma weddee wooteel en direct. Balla Gaye. wool Balla Gaye en direct. na ko combat bi ñu tëgg. ndax neex na la tëggu ko ndax neex na la wala neexul ndax dañ maa suufu. ay peccor go lañ de ñoom ñaar. ay peccor go lañ de. ay peccor go de. nit ñi war naa jaale si ngay ñëw fii naan da ngay tëgg combat di suufu ndax xam ne liiru ñëw na suba ma jublu ji lundi jàllagul mardi météo di nga dugg liiru mi parce que bu liiru defu dara xam naa ngóor si ngóor si la de. Mhm. moom la kooku doy waar. ki ci Malika yéen xam ngeen ki ci Malika ki ci Malika la. ko xam naa ko. sama naw la il est prêt be. kër Abdoulaye Diop nga ñu waxal. la waaw ku nekk dëgg luy tëgg ay. donc dëgg yi ku nekk ci dëgg sax. foo jëlee avance lii waxal. waxal joxagul daf ñoo jox comme ma solo la loo mais foo ko jëlee mottali daal mu seen noonu foo ko jëlee foo ko jëlee. mu delloo leen avance nga. wala ñaari xam nga lan mooy problème. nee la bi ndeysaan yal na ko yàlla xaaral. jërëjëf juróom-ñetti fan yi. juróom-ñetti fan yi. ñu ko doon ñaanal comprendre nga. ñu nekkoon foofu di wax. comprendre mu toy fi di wax di ma wax ñaaw xam nga. waaw sëñ Cissé da li mu wax li mu wax jar naa bàyyi xel. kuy waxtaane ay huitième jour. waaw huitième jour ngay ngay tëgg combat. non non comme ni exemple sa waay. pour ko fi daw toog rek muy wax ci man. Euh, mm-hmm. li mu doon wax ci man wax ju ñaar. Mm-hmm. naan fu ma ko jàpp dama koy ñuus. dama mm-hmm. koy dóor. xaaral comment. dama xaaral daa potoxlu ci yëf yi xam naa ko. ok. d' accord xaas xaas il faut mu ñëw fii. mais léeg-léeg fi mu jëlee ñu leeral affaire boobu noonu. foofu la ma ko joxee. fi mu taxawoon fan toogoon. fan foofu fan nekkoon. fan la foofu. ca koñ ba. déggoo li ma la. d' accord jërëjëf kontaan nañu Biége lan ngay lan ngay jeexale di remercier sunu ñaari. waxal li ma wax ku ne ci dëj du tëgg xol la. <laughs> waxal ci loolu. kaa bi nag moom dafa doy waar mais xaas. Ah. bu dee yan ngi gis li nga def nii ñaaw na trop. jërëjëf. <laughs> mais xaas deful dara su ma waa ji la dafa sikk doy waar kii. <laughs> yow saytaale nga. da nga sikk da nga doy waar. yow yaa baax moom moo bon. <laughs> maa ngi remercier Sénégalais yi ñu doon. gis nga ma xamal la benn affaire. waaw. da ngaa ngay waxal. kan. yow. yow àdduna xam na la yow. waaw dafa sikk de yow Saliou Mbacke Balla Dior sama waa ji maa ngi koy nuyu baax di ko. yow laa Mbacke Mbacke Balla di di non eh arrête man du ma sa morom la. luy morom man nga wax ba neel pat. silence yow yaa may silence la yow. waaw. yaa may silence la. daal ne ko ku ne ci dëj day ñaanal gorom ba ba 40 suuri mat. mu may sama tàggatoo wala ma sikka nangul ko sama bopp. maa neel pat laa neel nii. kon bandi nga yow. waaw bandi bandi la. ku ne jaar na gis na hmm? teer mais ñi fi doon jaar ak man oh, dimbali ma ñi fi doon jaar. doo dara doo dara. doo dara. yaa trahir waaj. bu la xaas joxoon avance te bu góor moom mii la dafa wax te leer na sama tonton bii bi da koo ko ci kaw mi ngi noonu maa ngi remercier ñi kontaan naa a baax ci li nga xamante ne moom mooy euh, jotaay bi ma envoyé tout maa ngi remercier sama yaay uh-huh. waa Ndar sang mhm. la si dex bi lenkal la si géej gi nga daan d'accord maa ngi sama maquilleuse bi nag mhm. macha allah depuis ma duggee Dakar ba léegi suma jongomaa wala ma belli rek mhm. moo fi jaar maam Fatou borom maam Ficha ah, waaw mu nekk ba xaar yàlla nga yóbbu fa madame comme ça bu kiiwee mu defal ko. sama xel dem na ca Mati. waaw d' accord ca très prochainement. merci jërëjëf merci. Lirou kontaan naa Khadim jërëjëf Serigne Cissé merci beaucoup. ñu ngi leen di gërëm téléspectateurs yëpp euh, rendez-vous bi incha allah suba ak beneen invité ci rek nañ ñu ko jégal. waaw xam waxu leen fi dara lu ñaaw yéen li ngeen def nii la Sénégal bëgg. Sénégal dañu bëgg foore parce que bu antenne bi fayee. Mhm. fii ngeen taxaw di waxtaanee ñaar. Mhm. Sénégalais nag xamuñu koy kaf. Mhm. ñoom lépp. dañu jàpp ne ay coow coow tey am bu ñu paree pare nañ gis nga lu ma gën a neex ci émission bi tey. ah ma di macha allah alors maa ngi nuyu aussi euh, Nene Diouf Nene Diouf maa ngi koy bégee maa nga fële ca yoof borom euh, meuble yu baax yi foofu ca boor via via di ko gërëm bu baax a baax ci euh, li nga xamante ne mu ngi koy def muy teraango yu am solo yi donc Nene jërëjëf ma nga fële ca yoof ca boor via via merci beaucoup di gërëmaat Serigne Ibrahima Kunta sunu papa sunu xarit borom Ndiassane ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom tamit euh, macha allah sunu sunu lépp la donc ñu ngi koy ziar di ko ñaanal gudd fan ak wér. jërëjëf Mamour merci euh, Malick ci son bi jërëjëf Mouhamed ci caayan beeg kafe bi jërëjëf suba incha allah ak beneen invité ci guddi gi ñu fanaan jàmm.